danañ ci lot te duñ ko man mukk xeewal yooyu nag bi ci gën a rëy di xeewalu lislaam mu def ñu nekk ay jullit ndax nit ki loo mën a yëngu ci kaw suuf ak lu mu bari bari lu mu rëy rëy ak lu nit ñi jortu ni lu baax la am ci njortu lu rafet te fekk ni yoo la nga nëbb ci biir sa biir xol la ca nekk mooy lu juyoog lislaam bi maanaa nekkoo ab jullit loola coono kese lay doon waaye borom bi subhaanahu wa taala du ko nangu boo nekkee ab jullit nag eh, di góor góorlu di moytu amaat na ngay def rëcc rëcc waaye borom bi ci yërmandeem mën na laa jéggal rëcc rëcc yooyu kon ñu sant ko bu baax ci xéewal gi ñu defal rawatina defaloon ñu ñu fekke daaw weeru màgg wii di weeru koor di marché tuyaaba di traite ci jullit ñi nga xam ni jullit bu ci yàlla defal tawfiq ba li ci borom bi digee mu màngo ko am ko kooko texe na waaye ku ci sàggan ba weeru koor wi jàll te góor-góorlu woo ci yiw yi ci xéewal yooyu ah, kooka ñàkk na ak lu mu mën a am ñàkk na ah, xam naa bala ñoo door rek <clears throat> ñuy jégalu tuuti ci tardement bi ak ñàkk euh, déggoo laa ko mën a tuddee ndax dañoo defoonoon Cheikh Mor ñëwagul ndekk ñëw na mi ngi woon fële di xaar euh, loolu moo waral ñu xaw a tardé nag buñ ko xamoon bu 11 jotee rek la ñuy daal di tàmbali kon ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax euh, ni ngeen ko xamee nag Cheikh Mor Kébé miin ngeen ko xam ngeen ko bu baax a baax ci barab bi ak ci yeneen barab du jël ñuy guddal temps bi di ci wax naan fii la jaar lii la def euh, bu waxee dangeen xam mooy kan ñun ñëpp rek ñu bokk ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq euh, ci mboolem wàll yëpp fi dunya wal surtout tomb bu am solo bi mu bëgg a leeral traité ko nekk tomb boo xam ni bu ama ama am solo la manees naa wax ni bu gënta am solo mbooleem tomb yi ñuy waxtaane ci diine ñi ci gën a am solo ci la bokk te ni ngeen ko xame mooy jullit ñi dañoo war a bennoo nekk benn kon lan moo tax ñuy tàqalikoo di juuyoo tàqalikoo googu xeet wi tàqalikoo lan moo koy sabab maanaam lu tax mu am ak yan yu feeñ ay phénomènes yi ñuy gis loo xam ne buñ ko gisee xam ne lii moo waral xeet wi tàqalikoo maanaam yan màndarga lañuy mën a gis xam ne lii eh, ci tàqalikoo xeet wi la su loolu amee ba noppi wan yoon la ñuy jaar pour mën koo saafara dafa naa ni tomb boobu tomb boo amaa am solo la kon ñu ñaanal ko borom bi subhaanahu wa taala defal ko tawfiq bu baax a baax te ñun ñi nga ni ne itam ñoo ciy déglu mu jariñ ñu euh, ñu am ak dégg man cee jariñu bu baax a baax a baax a baax baax borom bi subhaanahu wa taala dafa digal xeet wi yëpp ñu moy ci alquran ak sunna te bañ a tàqali ko waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu loolu la ñu digal waxaat ñu wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhaba riixukum bu ñu nekk di xëccoo di juuyoo loolu buñ ko defee day tax ñu yonjax day tax ñu ñàkk solo day tax dootuñu tekki dara ci kaw suuf bu ko defee nag dootuñu tekki dara dootuñu am doole dootuñu am kàttan bu ko defee nag noonu lislaam yi gën ñoo mën a jekku di ñu faagaagal ba duñ mën a dund suñ diine kon ni ngeen ko gisee tey ci jamono ji eh, kon daal xam naa ni ginnaaw xaw nañoo tardé tuuti ay minutes du jar ñu nekk fii di guddal ak di leeral dañuy bàyyi Cheikh Mor bu ko defee mu dugg ci eh, tomb bi ci waxtaan wi xam naa bala ñu koo bàyyi mu tàmbali ñu fàttali ñaari mbir rek benn bi mooy ñi ngi ñaan ñii enregistré portable yi bu fekkee mën nañ koo teg ci beneen côté parce que dañuy bañ muy sonné bu fekkee portable yi sone la wala yi di yàq dara ci waxtaan wi ñu bañ fee teg portable mooy li gën beneen bi e, suñ jaataa ne toog ci bunt bi li ñuy tudde iftaaru saim maanaam lu jëm ci wàllu ndogu yi dogal ñi nga xam ne dañoo woor programme boobu at yi yépp ñu ngi koy def fii ci jàkk ji kon képp koo xam ne rek am na loo mën a joxe ngir dogal sa mbokkum jullit na nga xam ni loola a xeeb lu mu lu mu rëy rëy jërta yéem waaye lu mu tuut tuut jërta xeeb borom bi xeebul yéemul te tuyaaba ju rëy rëy la ndax ki dogal sa mbokkum jullit yaa xam da nga koo jox lu mu lekk wala lu mu naan danga am tuyaaba ju toll ni jamu am te du wàññi ci tuyaabaam dara kon loolu ñu góor góorlu ci bu baax a baax bañ a xeeb dara lu ci waay am rek mu dem jox ko sëñ jaatame mu ngi ci bunt bi kon Cheikh Mor bismillah fal yatafaddal mashkura barakallahu fiik jazakallahu xayran bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal jazakallahu xayr ya Cheikh Mor li ñuy tàmbalee mooy sant borom bi subhanahu wa taala ak julli si yonentam bi alayhi afdalu salaati wa azka taslim mook njabootam ak waa këram ak képp ku soobu ci seen yoon ba yomal qiyaama comme lu mu nu mu ko waxee ni mu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi li nga xam ne moo ñu fi dajale yiw la insha allah mooy jël benn tomb ci suñu wàllu diine toog jàngat ko fàttalante ko mu dellu si lu yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ma maa jalasa qawmun fi beytin aw majtamaa qawmun fi beytin min buyuti illah yatluuna kitaab allahi wa tadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim sakina li yonente bi alayhi salatu salaam waxoon ci nit ñoo xam ne dañuy daje ci benn néeg ci néegi yàlla yi subhanahu wa muy bërëb bu mel nii jàkk ju mel nii di jàng téere yàlla bi subhanahu wa di ko fàttalante ci seen biir di ko jàngalante ci seen biir loolu dafay waral ci ñoom yërmandey seen boroom dafay waral ci ñoom yërmandey borom subhanahu wa taala loolu yàlla na ko yàlla defal li nga xam ne tamit junj na ko ci am solo tomb bi nga xam ne moom lañ tànn Euh, bëgg cee waxtaan te mu nekk loo xam ne xëy na gis na ci ñun waaye dinañ ci jéem a def suñu kéemtalaay kàttan mooy tàqalikoo xeet bi xeetu islam seenu tàqalikoo ci boppam tàqalikoo boobu ban dégg-dégg lañ ci war a am lan lañ namm ci tàqalikoo ci boppam ak tàqalikoo boobu lan lay ame lan mooy sabab yi nga xam ne moo koy waral loolu li muy tekki mooy dañuy waxtaanee mbir moo xam ne waruloon a am mbir moo xam ne du lu baax ngir nit ki mën cee jànge mën koo fàggu mën fexe ba moytandiku ko ngir mu bañ a am ndax nit ki dafay xam lu bon du ngir def ko wala ngir dooleel ko waaye daf koy xam ngir wattandiku ko ndax bu fekkee comme ni ko Cheikh moor waxee borom bi subhanahu wa taala dafa digal xeet bi ñu bennoo bañ a tàqali ko kon nit ki war na xam lii tàqale xeet bi ak tàqalikoo googu naka lay amee ak lan moo koy jëmmal ci seen biir loolu moo tax ci jeexital waxtaan bi li nga xam ne moom la ñu mooy ci yan yoon lañ mën a jaar ba moytandiku tàqaliko léegi tàqaliko bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee muy al ixtiraaq wala dañuy wax ak tafarruq yenn si borom xam ne di wax ne al ixtiraaq buñ ko waxee dafay dellu ci kaddu bu fekkente ni dañoo wax ci kàdd ñu wute ñenn dañuy wax ne foofu lañu jëfandikoo ixtiraaq bu dee tafarruq ñu ngi koy jëfandikoo ci ay jëmm muy al abdaan waaye ñoom ñaar ñëpp seen maana sorantewul al iftiraq ndax dinañ wax ne farraqahu fa tafarraqa wala farraqa baynahuma fa tafarraqa comme dañu wax tamit faftaraqa dinañ ko jëfandikoo tamit ci faraqa wa id faraqna bikum al bahra fa anjaynaakum faraqna ak li mu waxoon ne wa qur'anan faraqnaahu li taqra'ahu ala annaasi ala mukthin wa nazzalnaahu tanzila faraqnaahu bi taxfif dinañ wax tamit farraqa mu nekk lil mubaalaga muy taqale mbir benn mbir day nekk lenn nga ñëw taqale ko dox ko mu nekk ñaar daal di ko kon jëmmi baat bi ci boppam ci arab bu ñu waxee aliftiraat liñ ci namm mooy ak tàqalikoo ak dogoo comme li mu waxoon ne fa kaana kullu firqin ka tawdin azim fa kaana ba nga xamante ni Moussa teg na yatam wa dóor na yatam wa ca géej ga dafa xàjjalikoo nekk ay xaj xaj bu ci nekk daal di mel ne aw montagne bu mag dàqali koo dogoo ak moroomam nga gis ne kon baatu aliftiraaq ak ak tafarruq dañ koy wax ci ak dogoo akuk tàqalikoo moo xam jenn jëmm la woon tàqalikoo xàjjalikoo wala ay mbir yu nekkoon benn nekkoon ci ànd daal di dogoo daal di tàqalikoo kon maanaa bi ci lu muy dellu mooy ñàkk ànd ak ñàkk bennoo ci loolu la sensu aliftiraaq di dellu ci loolu lañ koy fekk tamit ci alquran ci comme ayat yi nga xamante ne joon nañ ko ba ci li yàlla subhanahu wa inna alladina farraqu diinahum wa kaanu chiaan lasta minhum fi shay farraqu dina am ci yenn xiraat xëy na faaraqu diinahum ndax farraqu ak faaraqu ci foofa aaya booba ñoom ñaar seen i maana sorewul ndax diine ji yàlla indi mënee su cee tàqalikoo ndax lenn rek la nangul ak tàqalikoo a jëmmi diine ji ci boppam mënoo ko jël xàjjale ko ku nekk jël lenn ba léegi muy wéy di nekk diine kon farraqu diinahum foofu li ñu ciy déggee mooy ndax diine ji lañ jël xàjjale ko mu nekk ay pàcc-pàcc wala ñoom bopp ñoo tàqalikoo tàqalikoo boo xam ne li ko jur mooy ñenn ca ñoom ñoo bàyyi diine ja génn ca bàyyi ca nekk ca leneen loolu jur ñu tàqalikoo tàqalikoo kooku kon loolu mooy liy delluwaat ci jàngin bi ñu ko jàng ne inna alladina faaraqu faaraqu mooy bàyyi giñ bàyyi diine gi tàqalikoo diine ja ndax faaraqahu mooy bu fekkee da nga tàqalikoo ak nit bàyyi ko mu dem nga dem sa yoon loolu faaraqu la ñuy wax kon da gis ne maanaa loolu lay dellu muy jëmmi ak tàqalikoo tàqalikoo googu ci la ñuy waxtaan xëy na bu ñu ci waxee loolu ci wàllu làkk lay dellu ci wàllu làkk ak dégg-dégg ci jëmmi baat bi ci boppam waaye boobaa tamit dañuy jël si waat ñëwaat ci texte alquran yi ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam xool itam ba léegi jëmmi maanaa bi nga xamante ni moom lañ ko jox ci lislaam ak mbiram loolu xëy na moom mooy jubluwaayu waxtaan bii nii euh, jëmmi tàqalikoo boobu nga xam ne moom la ñuy waxtaanee dafa am leen lu ci am mooy ne mbir mu am la wala bokk mbir muy am la loolu ñaar yëpp mën nañ ko wax mbir mu am la mooy ne lu am la ba noppi léegi kon lan la ci nit ki di waxtaanati ak lan la ci nit ki mënati est-ce que du dafa war a dajale ay loxoom toog ne mbir la moo xam ne am na ba pare jaratul ñu koy waxtaane mënatuñ koo fekk ba du am wala mbir muy am la mooy ne ci jamono laata muy am jullit ñi xamoon nañ ni dina am ndax borom bi subhanahu wa taala xabaare na leen ko yonente bi alayhi salatu wasalam xabaare na leen ko ndax bi yàlla wax naan qul huwa alqadiru ala an yabaasa alaykum adaban aw min taxti arjulikum aw yalbisakum chiaan wa yudiqa baadakum basa baad bi yàlla subhanahu wa taala waxee ne moo am kàttan ci wàcce ci ci ñun ñii muy xeet wi la doon waxal ndax aleykum jooju yonente bi alayhi salatu wasallam dafa leeral ci xadisu jabir bin abdillah bi nekk ci saxih buxaari ne xeetam la ci junj yàlla di wax ne am na kàttan ci wàcce ci ñoom mbugal mu jóge ci asamaan wala mu mbugal mu jóge ci suuf bi aaya bi wàccee dañ ne yonente bi alayhi salatu wasalam bi mu jàngee adaban min fawqikum daf ne audu bi wajhik dafa muslu yàlla subhanahu wa taala musal xeetam mbugal mu mel noonu di wàcc ci ñoom mu tudd mbugal muy jóge ci suuf ne aw min taxti arjulikum mu ne audu bi wajhik mu muslu ca ba léegi bi mu waxee ne aw yalbisakum chiaan wa yudiqa baadakum basa baad mu ne haadaani ahwan ci yenn riwaayat mu ne wa haada ahwan bi mu jàngee ne wala mu jël leen tàqale leen def leen ay pàcc-pàcc ngeen nekk ci jaxasoo nekk ci tàqalikoo ñenn ci yéen di mbugal ña sa des mooy yàlla mosal ñenn ci yéen mbugalu ña ca des wa yudiqa baadakum basa baad mooy ci sababu seen tàqalikoo yonente bi alayhi salatu wasallam ne ñaari mbir yooyu ñoo gën a oyof mbugal mi jóge ci seen kaw ak mbugal mi jóge ci seen suuf mu leeral ko ci yeneen xadis wax ne dafa ñaan boromam subhanahu wa taala mu bañ a paagaagal xeetam ci mbugal moo xam ne da koy wàcc ci seen kaw wala mu wàcc ko mu jaaree leen ci seen suuf loolu bëri na ay tekki ñu ko borom xam-xam yi tekki ñenn yoo xam ne mbugal muy jóge ci seen kaw mën na nekk mbugal muy jóge ci seen i njiit yi nga xam ne ñoo leen féete ko ëpp leen kattan suuf mën na jóge ci mbugal bi nga xam ne a doye di ci ñoom néew xam-xam ñoom lay jóge ñoom lay jaare nee na bi mu musloo boromam ci mbugal mooma yàlla musal ci xeetam mu musul ko ci mbugal mi jóge ci seen suuf yàlla mu musal ci xeetam ci yenn riwaayaat daf ne dafa muslu boromam mu bañ a maasale xeetam ci alak leen ci bekkoor boo xam ne dafay ñëw matale leen nee na yàlla musal ci xeetam musal boobu tamit am na ay wax yu bëri ci borom xam-xam yi wax ku mel ne alxaafis ibnu xajar ci fatxul baari wax na ni ñëw ci yeneen i xadis yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne sa yakunu fi axiri hadihi l umma xasf wa masx muy wax ne ci xeet wii ci seen jeexital dina am mbugal moo xam ne dina ñëw maasale leen loolu dina am ay nit ñoo xam ne ñenn ci ñoom des na leen maasale ak mbugal moo xam ne day jóge ci asamaan wala mbugal moo xam suuf lay jóge loolu moo tax lenn ci borom xam wax ne kon muslu boobu mu muslu yàlla mu bañ a mbugal xeetam ci mbugal muy jóge ci kaw wala ci suuf li muy tekki mooy mbugal moo xam bu ñëwee du kenn waaye loolu dàqonteewul ak ñu dem ba jamono lenn ci xeet bi mbugal mu mel noonu dal leen mu ne mu muslu boromam ngir mu musal xeetam ci bañ leen a def ay kuréel yoo xam ne dañuy fitnaalante ci seen biir mu ne yàlla xañ ko loolu yàlla xañ ko loolu kon loolu foofu li muy tekki mooy loolu mooy mbugalu xeet wii mooy seenub natt fi ko yàlla def mooy ci seen biir ñoom ñooy mbugalante ci seen biir ñoom ñooy nekk ay kuréel loolu moo tax kenn ci borom xam yi jiitu woon doon wax ne ci saxaaba yi doon wax ne mbir yii nii muy albara ibn azib doon na wax ne mbir yi yàlla subhanahu wa taala wax ci aaya bi ñeenti mbir la mu ne ñaar yi ñëw na des na ñaar ñaar yi ñëw na lenn ci ñu solo wax ja ci jële ko ci albara dañ ne mi ngi ñëw ci bi nga xamante ne yonente bi alayhi salatu wasallam faatu na bañ teg ci ñaar fukki ak juróom muy atu fanweereeli at ak juróom bi nga xam ne ci lañ faat Ousmane ibn Affan ñaar mooy xeet wi foofu lañ njëkk a tàqalikoo tàqalikoo gi nga xam ne moom moo jur li yonente bi alayhi salatu wasallam dañ wax ci xadis bi ndax ci lañ faatee seen xalifa nekk ay pàcc pàcc nekk ay kuréel tàmbali di mbugalante ci seen biir ñaar yi ci des mooy yi nga xam ne wax na ko ci kanamu aaya bi ci ne day wàcc si ñoom mbugal muy jóge ci seen kaw wala muy jóge ci seen suuf kon loolu li ñuy firndeel li ñu ciy jële mooy tàqalikoo boobu luy am la ca jamono joojo xamoon nañ dafay am wala boog suñ jamono yi xam nañ ne lu am la ala kulli xaal ko dafay am ci xeet bi dafay sax bëri li koy firndeelaat ba léegi mooy xadis bi nekk ci as sunan te yonente bi alayhi salatu wasalam doon wax ne iftaraqat banu israil ala thintayn wa sabiina firqa ci yenn riwaayat daf koo tafsil ndax dafa wax ne al yahud tafarraqu ila ixda wa sabaina firqa wala ala ixda wa sabaina firqa mu ne an nasara tafarraqu ala sintaini wa sabaina firqa mu waxoon ne ñu ñooñu kuréel yooyu tàqalikoo ci banu israil ñi ñu jiitu woon yàlla joxoon leen ay téere ñu jàng ko xam ko mu ne dañoo tàqalikoo ba nekk juróom-ñaar fukki pàcc ak ñaar mu laat ko ci yeneen riwaayat ne yahuut yi juróom-ñaar fukk ak benn lañ nasaraan yi juróom-ñaar fukk ak ñaar lañ mu ne kuréel yooyu benn moo ci dem aljanna yi ci des safara lañ jëm mu daal ne wa sa taftariqu ummati moo ala thalathin wa sab'ina firqa bi mu waxee ci xeetam mu ne xeetam itam dina tàqalikoo tàqalikoo goo xam ni ñooy ëpp sax ay kuréel ñooy ëpp ay kuréel mu ne dinañ tàqalikoo ci juróom-ñaar fukk ak ñett ci kuréel yépp safara lañ jëm ba mu des benn benn boobu laaj nañ ko ko ci ay riwayat mu ne man kaana ala mithli ma ana alayhi wa ashaabi ma ana alayhi alyawma wa ashaabi ci yenn yi mu ne aljamaa hiya aljamaa kuréel googu bi ñu ko ko laajee def ne mooy lu nekk ci lu ñu li ma nekk ma samay àndandoo mooy li ma nekk man ak samay àndandoo mooy mbooloo ma ñu koy tuddee al firqatu naajiya ndax moo mucc ci sànkute ak réer fii ci àdduna boo ëllëgati moo mucc ci xub bi ñu koy xub ci safara xadis boobu xadis la boo xam xadis bu siiw la nekk ci as sunan nekk ci sunan tirmidi masalan ba léegi al imam ibni maaja solo na ko xadis la itam boo xam ne borom xam-xam wax nañ ci ay wax yu bari ndax ñenn ñi dañ ci dañ koy jéem a jam ci càllale yi mais xadis la boo xam ne boo ko xoolee ak li ko solo ci ay saxaaba bari nañ bari waaye boo xadis bu sax la ndax lu ëpp fukki saxaaba ak juróom solo nañ xadis boobu alimaamul ajuri rotal na ko ci sharia euh, ci ay càllale yoo xam ne yu bari la boo ko dajalee da ngay da ciy jëlee ne xadis bi xadis bu wér la ñi nga xam ne ñoom ñoo koy dàq léeg-léeg fi ñu amee problème ak bi mooy ci jëmmi dégg-dégg bi maanaa bi ci ndax dañ ciy déggee ñoom ne kon dafay wane ne xeet jiitu woon ñoo gën xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xeetu muhammad mënta gën ba noppi di gën a tàqalikoo salawatullahi wa salaamuhu alayhi di gën a tàqalikoo mooy di ëpp ay kuréel yi tàqalikoo ñaareel bi tamit mooy li muy tekki mooy kon ñun ñu ëpp luy dem safara ndax bu dee ñoom juróom-ñaar fukk ak benn ci yahudi yi wala juróom-ñaar fukk ci yi juróom-ñaar ak benn ci nasaraan yi ñooy dem safara seen i ñun juróom-ñaar fukk ñaar kon ñoo leen ëpp la ñuy dem safara waaye ndax loolu dégg-dégg la du xadis bi moo ko wax waaye dégg-dégg la bu nit ki am ci xadis bi dégg-dégg boobu wérul nit ki ko war a bàyyi li tax mu war koo bàyyi mooy dafa war a xam ne yonente bi alayhi salatu salaam ay kuréel la àtte kuréel yooyu mu àtte li muy tekki mooy jëf ya ñuy jëf ak melokaan ya ñuy melowoo ba ràññee kooko ci yeneen kuréel yi ca des loola la àtte àtte loolu nag ak àtte nit ña ca nekk bokkuñu beneen ba ci des mooy desul déggee ci ëpp kurél ci suñu xeet yu tàqali ko ne kon mbooloo ya ëpp desu ci déggee loolu kuréel yi mën na ëpp naam ci pàcc-pàcc yi waaye terewul ne ñoom seeni mbooloo la ca nekk ci ay nit moo ëpp que nekk ci kuréel yi loolu moo tax ci xadis bi bi muy leeral ñan ñooy kuréel gi mucc mu ne aljamaa mooy mbooloo ma cheikh lislaam ne loolu li mu tekki mooy kon mbooloo mi ëpp ci jullit ñi ñoom ñoo nekk ci alfirqatu ya ñi nga xam ne ñoo génn yoon woowu mu ne loolu ay benn benn lañ di ay ñal yoo xam ne ay ñal lañ leen di tudde te ña ca nekk tamit ñëpp mënuñ leen a jox benn àtte ne alamik li mu wax ne kulluha fi naar dañ cay tàbbi ndax xam ne si ñoom ñoo xam ak réer ak ñàkk xam moo leen ca yóbbu ñooñu dañ leen cay seet si génne leen ci te itam bu fekkente ni xool nga bu baax li tax ñu wax ne dañu war a bàyyi dégg-dégg boobu jàpp ci ne xeet bi moo gën te moom la yàlla subhanahu wa taala gën a la ci yeneen xeet yi jiitu kuntum xayra ummatin uxrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah nga jël loolu def ko règle générale ne ñoom ñoo gën xeet yi leen jiitu woon yépp texte yi ñëw nekk yu leer nañ kon xadis boobu waroo cee déggee luy wane na ñoom ñooñu ñu gën da nga war a dégg-dégg boobu jël li yaxu xadis bi wax nga gëm ko jëfe ko waaye dégg-dégg boobu nga ci am nga bàyyi ndax waxu wax ji yax bi ak li muy tekki ak dégg-dégg bi ñaar yooyu bokkuñu loolu li koy gën a firndeel mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ne ya bani israil adkuru nicmati allati anamtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin ak li Musa waxoon gaa yi ne wa ataakum ma lam yuti ahadan min alalamin yàlla buy wax ci banu Israël ne moo leen gënale ci mboolem mbindeefam yi lan moo tax ñu koy tënk ci ne mooy mbindeef yi ñu jamonoonteel ñoom ci seen jamono la yàlla doon wax te pourtant aaya bi daf ne wa faddalnaakum ala alaalamin alaalamin mooy mbindeefu yàlla yépp aaya bi kon liñ ci waroon déggee mooy banu Israël ñoo gën ci lépp lu yàlla sàkk pourtant de su ko ci déggee ahlu borom xam xam ne ni ñu ko tafsiré bil ijmaa mooy ne ñañ jamononteloon ci ay mbindeef ci ñooñu la yàlla wax ne ci jamono jooja banu israil ñoo ci gënoon waaye bi yàlla indee xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo gën ci ci xeet lu tax nga tënk aaya bi dégg-dégg boobu nga tënk ko mooy da ngaa gis fële aaya buy wane ne xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën banu israil noonu nga teg aaya bi ba tax gisuloo ne ñaari aaya yi dañuy féewaloo xadis bi tamit dëgg dégg bu mel noonu nga ci war a am ba jàppee ci ne ëpp tàqalikoo tekkiwul ne ñoom ñoo ñu gën tekkiwul ne ñun ñoo ëpp luy dem safara loolu dégg-dégg boobu da ko war a bàyyi ndax dégg-dégg la boo xam ne ci ab lim nga ko jëlee ñu koy tuddee mafhumul adat dégg-dégg la boo xam ne nekk lu am kàttan nekk lu am doole kon xadis boobu amul problème xadis la bu wér ci ci ci dégg-dégg wér ci xam-xamu xadis ñu mën koo dégg jëfe ko li muy firndeel rek mooy natt bu yàlla nattu xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tàqalikoo ci ne seenu tàqalikoo ci seen biir ci la seen nattu nekk mu loolu sax xëy na ci li gën a tax waxtaanee tem bu mel ni am solo ndax mën nañu wax ne su nattu dëgg-dëgg mi ngi nekk ci ñun suñu biir xeet bi amoon na kàttan am kàttan goo xam ne nekk ci teddaange goo xam ne bu ci continuer woon daanaka ci kaw suuf kéeféer dootu fi desati ndax bi fi yonente bi alayhi salatu wasalam jógee bàyyi fi saxaaba yi ñi ngi doon tas lislaam tas boo xam ne bu wéyoon ci anam bañ nekkoon lenn dootu fi taxawati ci kaw suuf di jaamarloo ak lislaam bi noonu yàlla yi xamee loolu ci lañ daldi def ay complot nas ay complot ci seen biir tàbbal ko ci biir jullit ñi daldi indi ak tàqalikoo ci seen biir léegi nag ëllëgee ko ñuy wëlbatiku di jàkkaarloog seen i noon di leen woo ak di jaamaarloog ñoom ci lislaam ñu tàmbali di faagaagalante ci seen biir loolu mooy tàqalikoo bi njëkk am ci lislaam nga xam ne ki ko nas ab yahudi la ci cosaan ñëw wane ne dafa tuub dugg ci lislaam di Abdullah ibnu Saba bi mu ñëwee wane lislaam googa jubluwu ci lu baax jubluwu ci lislaam yàq ko taxoon a jóg moo nekk ci ginnaaw ñaari kuréel yi njëkk a tàmbali jug di indi ci lislaam ndax ñenn ñi ne nañ xatta alxawaarij yi nga xam ne ñoo njëkk nekk kuréel ci kuréel yi tàqalikoo génn taxaw fële beddeeku mbooloom jullit ñi alxawaarij ñoo ko njëkk a def donte am na ay wax yoo xam ne jiitu woon na leen yu tàqalikoo ak dëgg waaye ci kuréel ñoom ñoo njëkk a génn moom loxoom setu ci ci xawaarij yooyu loxoom setu ci abdullah ibn saba naka noonu tamit moo jiite kuréel gi nga xam ne ñooy raafida yi daan mbubboo ali abi talib ak njaboot yonente bi alayhi salatu wasalam di wax na dañ leen a dañoo bëgg a nangu dëgg googu delloo leen ko di ko mbubboo tàqale jullit ñi fat Ousmane ibn Affan tàmbali di faagaag ak jullit ñi di faagaagalante ci seen biir kon loolu li ñuy firndeel mooy fi'lan jullit ñi seenuk nattu mi ngi nekk li leen di néewal kàttan di leen néewal doole mi ngi nekk ci seen tàqalikoo googu kon mën nañ koo gën a bari le ci ay pàcc waaye loola desu ci déggee benn yoon ne kon yeneen xeeti ñooñu gën wala ñoom ñooñu ëpp luy dem a loolu xeyru kon iftiraax boobu luy am la fi'lan ci xeet wi léegi nag loolu ñenn dañ caa de amee dégg-dégg boo xam ne dégg-dégg bu yàqu la dégg-dégg bu juumu la ndax dañ ne kon comme que iftiraax day am ci xeet wi jaratul ñuy sonn dañu daal di nangu ne kon iftiraax luy am la boo waxee ñu ne yonente bi alayhi salaam moo waxoon ne tàqalikoo dafay am fokk tàqalikoo am est-ce que loolu day wane ne kon yow waroo koo moytandiku waroo jéem a fexe fàggu ba fànqal xeet wi tàqalikoo est-ce que loolu lañ ciy déggee ci xadis ak aaya yi nga xam ni ñooy junju ne tàqalikoo dina am ci xeet wi est-ce que li muy tekki mooy kon bu boobaa ñu daal di fasale suñuy loxo ne comme lu ñu wax ne luy am la jarul ñuy jéem a moytandiku jarul ñu koy jéem a xeex ndax luy am la dégg-dégg boobu dégg-dégg bu yàqu la waree su koo dégg-dégg bu yàqu la waree su am ndax yàqute la buy am boo xam ne bu amee dafay lor jullit ñi neewu leen kàttan neewal leen doole yàqu lu bari ci seen diine loola kon lu ñu war a moytandiku la donte xam nañ ne dina am ci xeet wi loolu euh, moo tax alimaam al ajurri ci asharia bi mu indee ay aaya yu bëri ci ak tàqalikoo wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla subhanahu wa taala ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo xamal jullit ni tàqalikoo dina am ci xeet wii mu ne tàqalikoo googu ala kulli xaal dafay ngir yàlla subhanahu wa taala jubbanti ñi ko soob sànq ñu mu ne loolu ngir mu nekk ab waar akub jajji ci jullit ngir ñu def seen kéemtalaay kàttan sàmm seen diine moytandiku lépp lu leen di jëmale ci tàqale bàyyi dàggasante ak xëccoo ak xiiroog ngaayoo ci diine mooy ci buumu yàlla gi nga xam ne mooy siraatul mustaqim moytandiku lépp lu di tàqale mu ne jullit ñi loolu a jëlee ci yi nga ne ñoo leen di xamal ne moom di wax ne euh, tàqale koo dina am ci xeet bi rahimahullah ni moom moo ci amaat ba léegi mooy ne ñenn ñi dañoo juumaat ci ni ñuy interpréter tàqalikoo googu ndax daf leen yóbbu ci ne comme tàqalikoo dina am yonent bi alayhi salatu wasallam na ay kuréel ne dinañ génn ji ci xeet wi wàcc dëgg léegi ci liñ leen yóbbu mooy képp ku wuteeti ci mbir rek ñu askane la ci kuréel yooyu képp ku wuteeti ci mbir rek du ñu sax seetlu la nga euh, wute dayoo ba nu mu am ban xeeti masala la lan moo la ci tàbbal ba nga wute ca ndax dangaa juum wala juumoo boo juumee luy sabab bi bu buñ ko demee ba xam nan lañ la war a attee ak lu ñu war a jëflante ak yow kenn ku nekk dañu war a am ak moom taxawaay bu mel noonu léegi dootuñu ko defati dañuy jël texte yi ñëw ci wàllu tàqalikoo def ko seen ngànnaay képp ku waroog ñoom ci benn gis-gis ci diine ñu daal di lay jël dugal la ci euh, kuréel yooyu ndax yonente bi alayhi salatu wasallam ne woon xeet bi dina tàqalikoo taxawaay bu mel noonu tamit ci jëflante ak texte yooyu njuumte la ba léegi léeg-léeg ñi mooy ñàkk xam itam ba léegi dayoo masaayil yi nga xam ne dañ ciy tàqalikoo yi nga xamante ni des ci tàqalikoo ndax masaayil yi tamit ba léegi ay xaaj la loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci ne tàqalikoo ak wuute dañ bokkuñu borom xam-xam nañ def différence entre al ixtilaaf wal ixtiraaq muy nekk différence boo xam al mais da gis ne fi'lan boo delloo ci alquran di nga gis wa taala di jëfandikoo al ixtilaaf muy wuute googu mu koy jëfandikoo ci loo xam ne maanaa bi mu ci jublu mooy tàqalikoo mooy al ixtiraaq mais bu ñuy waxtaan ñun ci suñu wax dañuy gis ne borom xam-xam yi du ñu jëfandikoo ixtilaaf muy wuute dañ ko jëfandikoo ci tàqalikoo dañuy def différence entre loo xam ne dañ caa wuute ci ay masail ak loo xam ne tàqalikoo lañ koy tudde nit ki kon bu boobaa jar na mu xool loolu di ko bàyyi xel bu baax a baax xam lan mooy àggale nit ki ci tàqalikoo ak lan moo ko dul àggale ci tàqalikoo loolu doomu adama yi dañ ciy jum bu baax a baax bu ko defee nit ki di xool borom xam-xam yu mag yi nga xam ni ci ñoom lañuy ñuy tënku di jële ci ñoom xam-xam muy xool ci ñoom di xool ni ñu jëflantee ak ñi nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy wute ndax wute ba dañ koy jàppee ak tàqalikoo wala duñ ko jàppee ak tàqalikoo balaa nit ki moom di dem ak boppam ak ay sentimam ak yàkkamteem di génne ay nit ci dëgg di leen askanele ay kuréel yoo xam ne bokkuñu ci ndax loolu war a see gaaw beneen bi ci des tamit mooy ba léegi di tàqale loo xam ne dafay génn nit ki ci lislaam ci ay wax ak ay yoo xam ne da cee wute ak loo xam ne du ko àggale ci génn ko ci lislaam ak bidaa ci boppam xam ne ay degré la tolloowul am na ci degré yoo xam ne bu ci nit ki tàbbee na koo jàppee ne kii ku génn dëgg la tàqalikoo am na suñu diggante ak moom ak lenn ci ay bidaa yoo xam nit ki mën na caa bi laxasu ca te ko tax génn ci yoonu dëgg du tax kenn ne da daa tàqalikoo ak mbooloo jullit ñi loolu fi'lan dafa dafa nekkoon lu wér lu am ci ne am na ci borom xam-xam jiitu woon ci taabiina yi ñoo xam ne ay kilifa lañu woon nekkoon ay borom xam-xam xadis dañ daan jum léeg-léeg ci masala boo xam ci pas-pas lay dellu borom xam-xam yi nangu ne njuumte la guñ am ndax mbira lënt ci ñoom ñu juum ngay juum te a nekkee ci masala ci masala yi fiq noonu la mën a nekkee ci masala ci masala yi pas bu wóotee ni juumte la loo xamante ni bi waroo ak dëgg taxu ko mu wuute ko waaye dafa juum da doon wut dëgg mu juum bu boobaa dañ koy nangul juumte loolu bu fekkente ni condition wu ijtihaad daje na ci moom mu ijtihaad def te lay kattan juumte dañ koy nangu bu boobaa nga tàqale masala booba nga xam ne ci pas-pas la ak masala fiq bi nga xam ne war na cee mën a juum ne ñoom ñaar bokkuñu bu dee bii la dinaa ko nangu bu dee bii la du ma ko nangu tàqale def ñi koy def mooy alxawaarij ak almutazila surtout almutazila ñoom ñooy def xeetu tàqalin bu mel noonu comme ni ko cheikh al islam ibni taymi rahimahullah waxe moo tax muy wax ne képp koo xam ne góorgóorlu nga sa kémtalaay kàttan ngir seet dëgg dëgg rek tax laa nga juum ci benn masala bu mu mën a doon moo xam ci pas-pas lay dellu wala muy dellu ci jëf bu fekkee gàttañ lu amu ca def nga sa kémtalaay kàttan nga juum mu ne njumte loolu day dugg ci la yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon ne ida xakama alxaakimu fa ijtahada fa asaaba fa lahu ajran wa in axtaa fa lahu ajr kii góorgóorlu di seet dëgg di àtte ci dëgg bu defee kémtalaay kàttanam ngir daj dëgg yàlla dëppale ko ak dëgg ja am na ñaari yoon bu juumee mooy dëgg ja am na benn yoon mu ne xadis boobu day su ko yamale rek ci masala yi yem ci wàllu jëf génne ci masala yi jëm ci wàllu pas-pas xëy na masala yi jëm ci pas-pas yépp day su ci ijtihaad ndax am na yoo xam ne leer na leeraay boo xam ne day su ci ijtihaad mais am na yoo xam ne da cay bànqaasoo nit ki mën na ca ijtihaad di dëgg far juum ja kon loolu moo tax nit ki war na bàyyi xel loolu bu baax a baax xam ne léeg-léeg am nit ki lu muy tàbbe ñu tuddee ko bidaa te du tax nga jëflante ak moom jëflanteeg gaaye ña nga xam ne ñoom ñooy def bidaa génn ko ci dëgg daal di koy askanele ci kuréel yooyu kon bu fekkente ne dañuy wax ci kuréel ci wàllu tàqalikoo ak yonente bi alayhi salatu wasallam li mu wax ci ne xeetam dinañ tàqalikoo nekk ay kuréel nit ki ala kulli xaal warta sukkandiku ci loolu nekkoon kon tàqalikoo dafay am ci xeet bi ala kulli xaal dafay am dafay am jarul ñu koy wattandiku wala loolu yóbbee ko mu yàkkamti di àtte nit ñi seen diggante ak tàqalikoo ci masala yi nga xam ne dafay rot seen diggante ak mbir yi xew ci seen diggante ci ay ijtihaadaat yoo xam ne léeg-léeg ci ay borom xam-xam lay amee léeg-léeg ci wute ay gis-gis ci ay mbir ak ay doxalin nit ki di gaaw di ci xàjjale xeet bi di ci def ay kuréel di ci ay tur léeg-léeg sax tàmbali ay tur di ko tuddee ay di leen ci beddi façon boobu doxalin boobu njuumte la bokkaat li koy faral di waral mooy comme li mu wax léegi ñàkk xam dayo masail yi ak xam usulu ahli sunna yi nga xam ne ci la ñuy doxe ci àtte ci buntu tàqalikoo dinañu kanam tamit ñu waxaat ci li tuddee xam adabul xilaaf muy li ñuy tuddee uute ci lislaam dafa am ay teggin am ay àtte yoo xam ne ahlu sunnati wal jamaa ci yooyu la ñuy dox nit ki balaa muy dugg di wax ci masail yi xam ne mooy tàqale ak yi dul tàqale war na comprendre bu baax a baax li ñu tuddee adabul xilaaf muy tegginu wuute tegginu wuute dafay dugg ci comprendre masail yi xam seeni adilla xam naka yan dayoo la am ci lislaam ak naka la ci borom xam-xam di ijtihaade ak wuute bu ci am ban xeetu wuute la ndax ixtilaafu tanawwu la ndax ixtilaafu tadaad la ak ku nekk boo ci wuutee nga juum ca njuumte loolu ban xeetu njuumte la ak yu mel noonu mu bëri ay mbir yu ci bànqaasoo yoo xam bu ko nit wul topp par parloo bi ak xool ci kaw ci masail yi rek ak moom dayoo bu mu am ci moom mu ciy sukkandiku di àtte nit ñi ak di leen ber di leen beddi ay njuumte rek lay def ay njumte rek lay def te atte ci kaw nit ñi di leen génne ci dëgg loolu dafa nekk lu doy waar ndax non seulement dafay yokk tàqalikoo ci xeet wi mais dafa nekk wax ci diine loo xam ne xamuloo ko loolu moo tax dina ñëw ci kanam bu ñuy wax ci euh, li nga xamante ne bi mooy euh, wax juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yu yonente bi alayhi salatu wasallam wax ci xeetam ne dañuy dem safara ne xeet sàng kuréel sàngam ci ñooñu lañ bokk mbir la moo xam ne lu jar a def ndànk la loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala am na lu ci borom may wax ci moytandikuloo nit ki muy gaaw a wax ne kuréel sàngam dafa bokk ci juróom-ñaar ndax loolu wax ci te tegoo ko ci ay firnde yu leer wax ci yàlla loo xamul la wax ci diine loo xam teguloo ko ci xam-xam la bu ci nit ki wax daf ci war am dalil bu leer muy tegtal boo xam ne firnde ju leer ne fi'lan kuréel gi imma yàlla ak yonentam ñoo wax ne ci juróom-ñaar yi juróom ak ñaar lañ bokk wala mu gis ci ñoom lu wér ne fi'lan mu ne leen boole lu dul ci juróom-ñaar fukki ak ñaar kon nekkul ne texte yi ñuy wax ak euh, nusuus yi ñuy jëfandikoo ci alquran ak sunna di wax ci tàqalikoo ak tàqalikoo xeet bi bay lim ay kuréel nekkul ne mbir moo xam mbir mu oyof la nit ki da koy daal di jël rek tàmbali mu nekk ci loxoom muy dagg di sànni di dagg di dugal ak yu mel noonu loolu xayru sax mbir la moo xam ne lu ci nit ki di wax wala moo koy def ci xam-xam la ko war a teg leneen li nga xam ne ci la ñuy dal buñ jógee ci loolu mooy ne wax ne tàqalikoo ala kulli xaal dafay am waaye bu am tamit am na dégg bu mu a am ci amin boobu muy amee mu xam ko bu baax xam moom lan moo ci war a nekk taxawaayam ak naka la war a jëfanteeg jëflante ak texte yi nga xam ne ñoo ñëw ci loolu buñ jógee ci loolu ci li ñuy dal mooy xam ne tàqalikoo lu lislaam ŋàññ la lu yàlla ak yonentam ŋàññ la tàqalikoo ndax yàlla li mu bëggal jullit ñi mooy ñu bennoo mooy ci buumam gi te bañ a tàqalikoo li yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne inna allaha yarda lakum thalathan wa yasxatu lakum thalathan yàlla subhanahu wa taala bëggal na leen ñett bañal na leen ñett bi muy wax yi mu leen bëggal yi mu bëggal xeet wi li mu ci njëkk a tudd mooy an taatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu li leen yàlla bëggal ñett yooyu bi mu ci jiital mooy ngeen mooy ci buumam gi mooy ci diineem gi te bañ a tàqalikoo mooy aaya bi Cheikh Mor jàng léegi waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu li yàlla subhanahu wa taala wax ne jàpp leen ci buumam gi yéen ñëpp boo seetloo uslub bi mu ko waxee dafa jéggi dayoo ndax dafa digle ne waatasimu waxul tamassaku mais al-i'tisam la wax mooy loo xam ne da nga ciy mooy mu mel ne lu la sàmm dañ ciy mooy mel ne lu ci jàpp jàpp rëcc ak mucc du jàpp rek ngir téye ci waaye jàpp boo xam ne jàpp rëcc ak mucc la mu mel ne looy aar mu jëfandikoo xabl buum nga gis ne buum buñ ko waxee dëgër ma nga ca lu ñuy jàpp ak loxo mu ngi ci mën koo téye bu baax nëpp ko mu jëfandikoo xabl waxul siraatullah waxul kitaaballah waxul lenn mais xablullah la wax mu jëfandikoo buum beneen bi ci des bi waxoon ne waxtasimu rek xam nañ ne damir jooju lii aljamaa la ñëpp lañ ci nam mais terewul daf ne jamian mboolem seen mooy bu kenn des kon ñëpp lay waxal loolu bu ko waxee dañ ne al amru bi shay nahyun an diddihi mbir buñ la ko digalee mooy tere nañ la lépp lu safaanoo ak moom kon bul doyloo woon loolu ñu déggee ci ne wareesul tàqalikoo ak lu mën a am waaye taxul mu noppi ca daf caa dolli ne walaa tafarraqu bu leen ko mu feddali ko kon digle na bennoo gi ak mooy ci buum gi muy genn buum di benn diine loola du ñu tàqale daf ñuy boole waaye mu feddaliwaat ko ci ne bu leen tàqali ko muy wax joo ne wax ju jéggi dayoo la mooy li mu waxaat ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fatafarraqa bikum an sabili mooy la mu waxaatoon ne lii nii nga xam ne mënees na leen koo junjal ngeen xam ko ndax jàngal nañ leen ko ba mu leer xàllal leen ko fàkkal leen ko ba mu leer ngeen mën cee jaar moo tax mu ne wa anna hada siraati mustaqiman mu jëfandikoo ismu ishaara daal di ciy teg ne fattabiuhu na ngeen ko daal di topp jooju tamit dañ ciy déggee ne bu ñu toppee siraatal mustaqim ñun ñëpp bokk nekk ca ak tàqalikoo du mën a am deesul topp leneen dul loolu waaye mu feddali waat ko ci tamit ne wala tattabiu subula bu leen topp ñall ya nga xam ñoo ko séq comme ni ko yonente bi alayhi salatu salaam leerale ndax bu boobaa daf leen di tàqale ak yoonu yàlla yi subhanahu wa loolu dina ñëw ci kanam di wane ne kon li gën a mën a tàqale jullit ñi bokk na ci mooy di sos ak di fent ci diine di sos ak di fent ci diine mais bu jullit ñëpp mooyoon ci seen diine duñu tàqalikoo ci sabab yi gën a mën a tàqale nit ñi mooy di sos ak di fent ci seen diine loo xam ne moo leen di génn di leen wàcce ci yoonu yàlla wi subhanahu wa taala kon jëmmi sos wala boog jëmmi tàqalikoo ci diine ci boppam dafa nekk lu borom bi subhanahu wa taala ngañ al imaamul ajurri wax ci wax joo xamante ni wax daw yaram la ju jéggi dayoo ci téeram bu màgg boobu di asharia mu wax ne yàlla subhanahu wa taala ak ngëneel gi nga xam ne def na ko ci ñun daf ñoo xamal ci téeram bi ne ñi nga xam ne joxoon na leen ñaari téere di yahud yi ak dañoo alku ci seen diine te dara waralu ko lu dul tàqalikoo guñ tàqalikoo goo xam ne dañoo xam dëgg ba noppi tàqalikoo ci kaw dëgg googa dañoo xam dëgg ba noppi tàqalikoo ci kaw dëgg googu ñoom ci kaw dëgg ci kaw xam dëgg lañ tàqalikoo we nee na yàlla subhanahu wa taala xamal ñu ne li nga xamante ni bi moo leen yóbbu ci tàqalikoo googu bàyyi mbooloom dëgg ma bàyyi yoonu dëgg ma daal di jéng jëm ci neen nee na lenn yóbbu leen ca lu dul keñaanante ci seen biir soxorante ci seen biir ak beew kañaanante ci seen biir soxorante ci seen biir ak bew ci si diine loolu moo leen yóbbu ci ñu tàqale ko nekk ay kuréel bokk na ci gën a mën a indi ay tàqale ak ay xuloo ci diine alxasad muy soxorante ci diine ak timit albax yi muy bew jéggi dayoo dépassé fi nga waroon yem bew ci sa diggante ak sa moroom jullit mooy li Ali ibn Abi Talib doon wax ci alxawaarij buñ buñ leen musaana jàpp du leen nangoo rey bu leen mësaan jàpp jàpp seen jigéen du leen def ay jaam yu jigéen ndax jàppewu leen woon ay yéefar daawul jëflante ak ñoom ni mu daan jëflante ak yéefar yi muy jihaatal ci yoonu yàlla daf daan wax naan ixwaanuna baxaw alayna min al kufri qad farru suñuy noonu lañ suñuy mbokk lañ ci diine dañoo bew ci suñu kaw al bax yi la daan jëfandikoo baatu bax yi bax yi boobu ci li gën a indi ay tàqalikoo ci jullit ñi loolu bokk na ci mooy bax yi bew ci sa jéggi dayoo ci sa kaw mbokk jullit ci ay mbir yoo xamante ni bii waroo waruta am ci seen diggante taxawaay yu mel noonu warta jur ci seen diggante taxawaay yu mel noonu maanaam amul dayoo booba loolu moo tax alimaamul ajurri wax ne yàlla xamal ñu ne leen yóbbu ci tàqalikoo googu ñu nekk ay pàcc ci dëgg yàq seen diine caxat-caxatee ko nee na mooy melokaan yooyu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf koy tudd ci alquran mu ne soxor ak keñaan gi nga xam ne tar na ci seen diggante mu ne loolu yóbbu leen ñu dem ba nekk ay kuréel yu bari daal di alku mu ne yàlla subhanahu wa taala mooy loo ñu ñun xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ni dal na ahlul kitaab yi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon ndax bokk na ci texeeg nit ki mbir dara dal ko laata moom ñu ne ko moytul li dal diw dal la loolu bokk na ci texe loolu sens la nga am ko moo ñu jox la exemple ci ku la jiitu ci loo xam ne dal na ko ne fexeel ba loolu bu mu la dal ñun xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam am nañ loolu ahlul kitaab yàlla jox na leen téere bi ñu ne fi ginnaaw seen i yonent di xuloo di xiiroo ko ŋaayoo seen i njiit ak seen i borom yi xam-xam xam dëgg topp seen i bànneex ak seen i mbiri bopp ba caxat-caxatee seen diin nekk ay kuréel yàq seen diine loolu waral ci ñoom alkande loolu waral ci ñoom yàlla mere leen yàlla jéppi leen kon bu yàlla subhanahu wa day wàcc ci alquran ay aaya yu baree baree bari di ñu wax ci seen mbir ak seen xeetu tàqalikoo ak la leen ca yóbbu mu ne loolu kon yàlla daf ñu cay ñun la leen dal bañ ñoo dal ñu moytandiku ko loolu yàlla subhanahu wa taala ñu koy moytandikuloo mu ne loolu bu boobaa moo ci war moo ñu jéem a fexe mooy ci mbooloo mi nga xam ne mooy mbooloo dëgg mooy ci téere yàlla bi subhanahu wa taala mu ne naka noonu tamit noonu la ñu ko moytandikuloo ñuy njiit ak suñuy kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu woon min as-salafi saalih mu ne noonu la ñu moytandikuloo ñoom ñëpp li nga xamante ni bi mooy tàqalikoo santoon ñu ñu jàpp ci buumu yàlla gi nekk benn te bañ a tàqalikoo loolu dañ koy fekk ci ay ayat yu bëri li mu judd noonu li mu jundi noonu ci waxam lu mel ne li yàlla di wax ne inna diina inda allahi alislam wa ma ixtalafa alladina utu alkitaba illa min ba'di ma jaahum alilmu baghyan baynahum baghyan baynahum tàqalikoowuñ lu dul ginnaaw bi nga xamante ne bi dëgg dikkal na leen loolu lañ doon junj ci tàmbali wax bi ne ixtilaaf yàlla da koy jëfandikoo ci ay bërëb ci alquran ci sens bi nga xam ne moom lañ tekkee woon al ixtiraaq muy ak tàqalikoo ci wane ne kon ci alquran da nga fay fekk baatu ixtilaaf muy wute ñu koy wax waaye di ci namm tàqalikoo ndax tàqalikoo googu muy wax muy tàqalikoo ahlul kitab du wute rek waaye tàqalikoo la kon dañoo tàqalikoo ginnaaw bi nga xamante ne bii xam nañu dëgg yàlla jox na leen tawraat ñu jàng ko am ci ay firnde yu leer xam ne ci lii lañu war a nekk xaar yonent bi yàlla di yebal ci axiru zaman ba mu ñëw ñu dem topp ko waaye defuñu loolu dañ fay nekk jàpp seen diine dugal ci seen i bànneex ak seen i bëgg-bëggi bopp ba loolu yàq diine ja ñu nekk ay kuréel di xiiroo ko ŋaayoo yàlla وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين yàlla subhanahu wa taala yi mu waxoon ne ñi nga xamante ne bi ñooy ahlul kitaab yi di an nasara wal yahud dàqalikoowuñ lu dul ginnaaw bi nga xamante ni firnde dikkal na leen wala firnde ga dikkal na leen jóge ci seen borom firnde googu ñenn ñi dañ koy tekkee ne mooy dëgg ji leen yàlla jox ci seen téere yi moo xam tawraat la wala injil ak lam leen ca jox ci ay mandarga yu mandargaal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mooy yonent mu jug jamono dina ñëw ñu war koo xaar ñenn ñi di wax ne firnde googu mooy ñëwuk muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak alquran waaye li gën a noot boo ko xoolee ci ayat yi da ngay gis ne ute gi jiitu na ñëwuk yonent bi alayhi salatu wasalaam tàqalikoo gi ak xàjjalikoo gi ak yàq diine ji jiitu na laata yonent bi alayhi salatu wasalaam di ñëw xëy na bi mu ñëwee tàqalikoo gi gën naa tar ndax dañoo doon séntu ne ci seen biir lay génn mu génn ci arab yi tax ñu gën a nëbb la nga xam ne yàlla waxoon na ko ci seen i téere ci mbiram loolu waral ci ñoom ñu gën a yàq seen diine gën a tàqalikoo waaye tàqalikoo woon nañ yàqate woon nañ diine ji laata loola kon bu fekkee yàlla subhanahu wa taala mi ñuy wax xabaar yooyu ci ay ayat yu bari ci ahlul kitab loolu li muy tekki mooy nit ki war na cee jële ay jàng yoo xamante ni jàng yu bari la mooy moytandiku lépp loo xam ne dafay jëmale ci kàqalikoo te mooy ci buumu yàlla gi bennoo kon jëmmi iftiraax ci boppam dafa nekk loo xam la mooy lu ñu ŋàññi la lu ñu bañ la ci alquran lu ñu bañ la ci diine da nga koy fekk ci alquran yàlla di ko ŋàññi lu baree bari bari di ko melal yahudi ak nasaraan di leen ko ŋàññi naka noonu tamit yonente bi alayhi salatu wasalam ci ay waxam da koy ŋàññi bu baax a baax borom bi subhanahu wa taala di wax ne ya ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaati mooy aaya bi Cheikh Mor jàngoon sànq di ko jàng nga gis ne bu mu jógee ci waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu da cee tegaat ne wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana wa kuntum ala shafa xufratin min annaari fa anqadakum minha kadalika yubayinu allahu lakum ayatihi laallakum tahtadun waltakum minkum umma yadcuuna ila alxayri wa yamuruuna bilmacrufi wa yanhawna an ilmunkar wa ulaika hum almuflixun wala takunu kalladina tafaraqu waxtalafu min bacdi ma jaahum albayinat wa ulaika lahum adabun azim maanaam da nga gis ne ayat yooyu boo ko jàngatee nga xool ko bu baax li ci yàlla di wax ak jullit ñi ci war ak bennoo ak moytu ndi ko tàqalikoo ak fa leen lislaam fekkoon ci ceddo boo xam ne dañ ca daan buggalante ci seen biir di faatante ci seen biir ci lu dul dara dem ba ñaari kuréel ñaari giir yu mag di xeex ci benn nen faat ci ay bakkan yu ko xamante ne kenn xamul lu mu ngir benn nen boo xam dañ ko toj ci seen diggante ci loo xam ne nit ki da ciy jug tuur ci deret ba pare soog a lijjanti di laaj dan moo lu xew maanaam day jug tuur deret soog a laaj lu xew dañ daan wax ñoom ci jamono yooyu ne bu fekkente ni sa sa mbokk gis nga ko ñu koy néewal doole ci beneen giir da ngay dem jàppale ko xeex ba tuur deret boo paree bu ngeen deltee nga soog ko laaj ne ko loo jote ak ñoom nga gis ne xamiya jooju ñu doon dund ci jaahiliya ak loolu ñu nekkoon ci mbugal daan ci xeex di ci lant yàlla subhanahu wa taala di fàttali julit ñi xéewaluk lislaam ak fam leen jële ci tàqalikoo ak ci ko indi leen ci lislaam benn leen ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla di wax ne subhanahu wa taala kon na am ñu nekk ci yéen kuréel boo xam kuréelu dëgg la di woote ci mbaax moomu di ci jëmale di digle lu baax di tere di tere nit ñi lépp loo xamante ni ñaaw téef la mu delluwaat ci njeexitalu ayaat yi delluwaat ci cere ak tàqalikoo tàqalikoo bi bi mu koy tere daf koo delloo ci li ñu waxoon ci sànq mooy ci kuréel yi nga xam ne jiitu nañ ñu ci diine yi nga xam ne jiitu nañ ñu mu ne wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahum albayinat bu leen mel ne bu leen mel ne nga xamante ne bi ñoom ñoo tàqalikoo xajjalikoo ginnaaw bi nga xamante ne ay firnde ginnaaw bi nga xamante ne xam-xam dikkal na leen jóge ci seen borom loolu day wane ne kon ba léegi li ñu doon wax sànq ci banu israil bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf leen di faral di tudd di melal seenu tàqalikoo liñ ciy jële ñun jullit ñi mooy fexe bañ mel na xam ne yàlla subhanahu wa bokk na ci jikko yum ci melokaan yim gën a bañ gën ñu ko bañal mooy ak tàqalikoo kon loolu war nañ koo moytandiku bu baax a baax suñ kémtal ay kàttan kon ala kulli xaal tàqalikoo lu yàlla ŋàññ la li ci ñëw ci ay ayat ci quran lu bari la ak digle ak benno ak lim doon wax ne wala takunu min al mushrikin min alladina farraqu diinahum wa kaanu shiyan kullu xisbin bima ladayhim farixun lim doon wax naan bu leen nekk ci bokkaalekat yi bu leen bokk ci bokkaalekat yi mu ne ci ñi nga xam ne waxul ne ñi nga xam ne mais daf ne ci ñi nga xam ne min alladina mu takraar aljaar wal majruur ne min alladina farraqu diinahum ne borom xam-xam tafsir yi bokk na ci njariñ yi tax mu jëfandikoo wat min alladina te waxul ne alladina rek mooy loolu day firndeel ne amul benn kuréel ci kuréelu gaa yooya boo xam ne war ngeen caa bokk ndax seen kuréel yépp amul benn bu ci nekk ci dëgg kon mooy ku leen ba bañ a bokk ci ñoom baña a mel ne ñoom du benn ci seen kuréel yi boo xam ne war ngeen am seen melokaan mu ne ñooñu luy seen melokaan mooy ñëw ay nit lañ yoo xam ne dañoo xàjjale seen diine tàqale seen diine nekk ay kuréel wa kaanu la wax mooy dañ nekk ay kuréel kuréel bu la mu nekk loolu lay bëgge loolu la jàpp ne mooy dëgg looloo ko neex loolu mooy problème bi kuréel bu nekk la mu nekk la jàpp ne li mooy dëgg kullu xisbin bi ma ladayhim farixun mu jëfandikoo baatu farax loola rek lañ gis ne li mooy dëgg loola mooy li nga xam ne mooy saral seen xol gisuñu leneen lu dul loola nga xam ne farax boobu bu ko bu ko bu ko jëfandikoo da nga gis ne da nga ciy dégg déggu dégg bànneex da caa ne maanaam lu la neex da caa ne xëy na du lu nit ki dëgg ba xam ne li dëgg la waaye lu nit ki dëppale ak neexit da caa ne ne lii lu ko neex la mu ne ca leneen neexu ko lu dul loola gisul leneen lu dul loola yàlla subhanahu wa taala melalee ko ci anam boobu ba pare wasfa leen melokaanu shirk mu nekk loo xam ne ko nit ki bu fekkente ni bëgg na jëfe la yàlla waxoon ci tàmbali aaye na fa aqim wajhaka liddiini xanifan fitrat allah allati fatara annaas alayha bu bëggee jëfee santaane booba ko yàlla digaloon ci saxal jëmmam ji ci diina yàlla ji nga xam ne mooy diinay dëgg diinay tawxid bu fekkee bëgg a jëfe loolu fokk mu moytandiku kon tàqale diineem ndax loola mënu caa nekk ba noppi di tàqali ko ndax loolu benn la muy tawxiid boobu diine dëgg jooju benn mbir la bu ca ay nit nekkee yàlla ji ñu jaamu kenn la buñ ko wétalee ni ñu ko war a wétalee dañ cay bennoo mais duñ ci tàqali ko kon bu tàqali koo amee shirk dafay dugg loolu moo tax li yàlla subhanahu wa taala wax ne kaana annaasu ummatan waxida fa baasa allahu nabiyina mubashirina wa mundirin wa anzala maahum alkitaba li yaxkuma bayna annaasi fi ma ixtalafu fihi Abdullah ibn Abbas bi mu tekki aaya boobu ci suratul baqara yàlla di ci wax ne nit ñi dañoo nekkoon benn kuréel nekk benn communauté mooy tàqalikoo wuñu woon ñu dem ba jamono ñu tàqalikoo yàlla yebal ay yonentam ñuy ñëw di woo nit ñi ci dëgg di àtte ci nit ñi ci dëgg ndax da leen jox téere boo xam ne ci la ñuy sukkandiku Ibn Abbas bi ko tekkee bokkaale la ko tekkee dafa wax ne shirk mooy sabab bi nga xam bi leen tàqale mooy ci jamono yonant yàlla noor digganteem ak Adam mu ne fukki mi ngi fa yoo xam ñëpp ci tawxid kon loolu li muy tekki mooy tawxid bañ nekkoon moo leen bennale ba shirk tàbbee bokkaale tàbbee ci seen biir ci la ak tàqalikoo am mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ne li yaxkuma bayna annaasi fii maxtalafu fii ixtilaaf boobu muy tàqalikoo googu sababu shirk la bokkaale mooy ba nga xam ne ñenn ci ñoom ña ngay màggal seeni nit ñu baax màggaleen woo xam ni wérul bu yàqu la mu dem ba tàbbal leen ci bokkaale tàbbal seeni nit ci bokkaale ay nit génn ci yoonu tawxid tàmbale di bokkaale ak yàlla loolu indi ak tàqalikoo yàlla yebal yonent yàlla nuux alayhi salaam mu ñëw di woote ci tawxid kon tawxid moo leen di benn lewaat kon bu fekkente ni nit ki nekk na ci diinay dëgg di ca wéetal yàlla loolu warta mën a indi tàqalikoo ci ci digganteem ak ñam ca nekkal kon tàqalikoo gi loolu moo tax mu jox ko melokaanu mushrikiina yi ne wala takunu min al mushrikin digal naa leen ngeen nekk ci diinay tawxid te bu leen bokk ci mushrikina yi nga xam ne dañoo tàqale seen i diine nekk ay kuréel yu baree bari ay pàcc pàcc ku ne ak la nga gëm ku ne ak la ngay jaamu ak na ngay jaamoo kon mooy tëndu ko leen bokk ci loola nga gis ne Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dafay wax ne euh, xëy na laata loolu imaamul Ajurri dafa indi ci téereem boobu di sharia benn affaire boo xam ne mi ngi ko jëlee ci Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas di wax ci ayat yi nga xam ne jàngoon nañ ko te mu weesu muy wax ne yàlla subhaanahu dafa digal ñi ko gëm ñu booloo nekk benn mooy ci diineem ji tere leen ñu ciy tàqalikoo ñu ciy xàjjalikoo di ci wuute mu ne yàlla subhaanahu wa xamal leen ne li nga xamante ni bi moom moo alagoon ñi leen jiitu woon mooy nekk di xuloo ci diine ak a xiiroo ko ŋaayoo ci diine mu indi leen ay tàqalikoo mu nekk asar boo xam ne asar bu bu jéggi dayoo la alimaamul ajuri jële ko ci abdullah ibn abbas mu ciy tekki aaya yi nga xam ne jaa jàll na yëpp ñu jàngoon ko rawatina yi nga xam ne yàlla da ciy melal ahlul kitab cheikh alislam ibn taymi rahimahullah di wax ne li nga xam ne mooy jur tàqalikoo di tàqalikoo mu ne boo ko xoolee muy mooy bidaa mooy melakaanu ñu nekk ci bidaa mu ne waaye sunna ak alquran bu wér bu ci nit ki nekkee loolu mooy li jur ak bennoo mooy li koy fànqal tàqalikoo alimaamu taxaawi dafa waxoon ne dañoo gis ne bennoo ak mbooloo mooy dëgg te itam mooy njub waaye tàqalikoo mu ne jeng la ba noppi mbugal la noonu la ko waxee ci matnam boobu nga xam moo ñu tuddee matnul aqida altaxawiya mu ne nar aljamaata xaqan wa sawaaba walfurqata zaygan wa adaaba loolu da ciy junj aaya bi ñu waxoon sànq li borom bi subhanahu waxoon ne qul huwa alqadiru ala an yabaata alaykum adaban min fawqikum aw min taxtikum adab la ko tuddee maanaam yàlla li waxoon foofu ne aw yalbisakum chiaan yàlla def leen nekk ay kuréel yàlla foofu tàqalikoo googu mu wax ne mën nañu koo def da koo boole ci mbugal gi mu ñu xuppee ndax foofu adab la wax loolu moo tax alimaamu saxaawi jëfandikoo baatu adab muy mbugal ci tàqalikoo kon tàqalikoo ala kulli xaal lu ñu ŋàññ la ci lislaam yàqute la boo ne si ko war a fekk loolu euh, mooy tomb bi nga xamante ne ci lañuy ñuy jaaraat buñ ci jógee dem ci wax ci wuute bi nga xam ne mooy am ci diggante tàqalikoo ak wuute wuute bi nga xam ne dafay am ci biir borom xam-xam yi ñuy gës ay masail ci xam-xam loolu fokk wute da ciy am ala kulli xaal wala yazaaluuna muxtalifin comme na ko borom xam mi daan waxee bu njëkkee illa man rahima rabbuk wa lidalika xalaqahum nit ñi dañuy wute yàlla subhana taala dafa bind nit ñi ngir ñuy wute doomu aadama yi seen i gis-gis bokkul saxaaba yi dañ daan ijtihaad di wute ci seen ijtihaad bu dee ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam dañuy dikk ci moom gaaral ko ijtihaad bi jaar gaaral ko li ñu wute mu àtte seen diggante daan na leen wax benn wax sax liñ koy déggee du bokk bi mu doon wax naan laa yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani qurayda bi mu leen waxee ne bu kenn ci yéen julli tàkkusaan lu dul ci bani qurayda biñ demee ba ci yoon wi waxtu tàkkusaan jot dañ cee nekk ñaari kuréel ni ñu déggee waxu yonente bi alayhi salatu wasallam bokkul loolu li muy tekki mooy wax ji ñuy wax dafa am dalaala ndax jëmmi wax nusuus yi texte yi dafa am ay ay ay ay bunt yu bari am na boo xam bu dee ñun suñu wàll li ñu wutaleeg saxaaba yi bokk na ci ñun dañuy gëstu jihatu subut mooy sax na wala saxul saxaaba yi soxlawuñu woon di gëstu ci jihatu subut mooy sax na wala saxul ndax dañuy jëlee directement ci balwaay bi ñun li ñu sonalaat bokkat na ci jihatu subut mooy ne sax na wala saxul loolu ci ñuy ut di utalewaat suñu borom xam-xam bokk na ci ndax kii day saxal texte bi kii du ko saxal bu boobaa bu ci kii sukkandikoo kay sukkandikoo ci da leen di wutale beneen jiha bi mooy jihatu dalaala muy dégg-dégg biñ ci war a am ci texte bi lan lay tegtale lan la ci yàlla nam ak lan la ci yonante bi nam sallallahu alayhi wa sallam loolu nit ñi yemuñ ci ay tolluwaay dañ ciy wuute beneen mbir bi ci des mooy lu ñu tuddee maqasidu sharia maqasidul islam mooy jubluwaayu lislaam yi naka nga koy lëkkaleeg li nga dégg ci texte bi ndax texte du loo ci déggee ci kaw rek daal di koy jël jëfe ko donte sax dafa waroo ak jubluwaayu lislaam yu màgg yi loolu nit ki da ci war a bàyyi xel bu baax a baax dafa war a fexe ni muy mu koy lëkkale ak jubluwaayu lislaam yi ba du waroo loolu la ahlul bidaa dul def moo sànq alxawaarij boo seetloo seen tegtaloo yi ñu tegtaloo ci texte yi ci làkk ak ci dégg-dégg lu jub la muccul ayib benn yoon waaye ñàkk cee sàmm règle l'islam yu général yi ak bëgg-bëggu yu mag yi xam ne mooy principe yi gën màgg ci l'islam ñàkk koo méngale ak loolu moo leen sànq jël yax bi rek li la jox ci dégg rek nga yem foofu loolu ci mën a sànq nit ki bokk na ci boo xoolee ñaari kuréel yooyu ci la ñuy dellu muy dalaalaat ak an nas ak muraat ñu tuddee al al maqasid al kubra maqasid al islam mooy xool li nga xam ne moom la la yax bi jox ak ki nga xam ne dafa jël yax bi li ko jox mu lëkkale ko ak li nga xam ne mooy principe bu islam yaat yi mu yeneen textes yi yeneen euh, tegtal ndax benn kuréel gi nga xam ne dañ ne ñoom yonente bi alayhi salatu wasallam daf ne leen bu leen julli tisbaar lu dul ci bani Qurayza ñoom xooluñu leneen lu dul li mu wax te li mu wax liñ ci déggee mooy bu leen def lu dul àgg ngeen ñu ne kon bu ñu def lu dul àgg nañ ni mu ko waxee noonu lañ koy defee ñeneen ñi ci des xool bëgg-bëgg ak jubluwaayu lislaam mooy ne yonent bi alayhi salatu wasallam li mu bëgg ci ñun mooy ñu gaaw waaye bëggul ci ñun ñu génn julli ci waxtoom ndax inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta loolu asl la principe la ci lislaam boo xam ni yonent bi alayhi salatu wasallam mënuñoo digal ndigal gu koy gu koy jalgati loolu mënul nekk kon bu ñu déggalee loo xam ne dañ ciy déggee loolu liñ ci namm mooy kon gaaw gaawantoo dem gi gaawantoo dem gi bàyyi liñ doon def ba fexe ba tisbaar fekk tis tàkkusaan fekk ñu foofa loolu la namm ci wax ji mais namm ci ne ak lu mën a am donte waxtu wi dafay génn da ngeen koy faat bu leen julli dox leen ngeen dem ba àgg namm ci loolu ndax xam nañu même bu nekkoon ci jihaad fi sabilillah daf daan julli julli yi ci waxtoom daaw ko génne ci waxtoom ba yàlla subhanahu wa taala sax wax ne bu donte da ngeen di daw wala ngeen nekk ci ay waruwaay donte da ngeen di daw wala ngeen nekk ci ay war waaye loolu mooy bu fekkee dafa nekk ci jamono joo xam ne tiit ga dafa tar muy xaalatu shiddatul xawf waaye bu leen ko génne ci waxtoom bu ngeen demee nag ba génn ci jamono jooju ak njàqare jooju ngeen soog a dal julli comme ni ngeen ko doon julli waaye bu leen xaar ba jóge ci jafe-jafe yooyu soog ne da ngeen di julli di faat waxtu yi loolu bu ngeen ko def kon ñoom ñu dellu ci principe yooyu ne kon dañuy julli bu ñu jullee ba pare wéy nga gis ne kon maanaam li ñu tudde tegtaloo teg yi teg ci alxuraan ak sunna yi nit ñi dégg-dégg yi ñu ci am ci niñ ci ijtihaade dañuy wute bi yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ñu gaaral ko ko juumloowul kenn joxul kenn dëgg dafa noppi lenn ci borom xam-xam yi loolu indi problème ci ñoom ndax dañuy wax ne bu fekkee dañoo ijtihaad ci masala kenn mooy tab tëb dëppoo ak dëgg ka ca des dafay mu des nag léeg-léeg day jafe ñu xam kan moo juum mais li am moom ba am mooy fokk mu am kenn ko juum ñenn ci ñoom ne kullu mujtahidin musib lenn ci borom xam yi jiitu woon ci as-salafu saalix dañ daan wax ne képp ko def ijtihaad boo xam ijtihaad bu wér la dëppoo nga ak dëgg waaye loolu nekkul lu dëgër loolu ba ci alimaam Malik dañ ko daan laaj ci ixtilaafu saxaaba daf daan wax naan muxti wa musib fandur li nafsik day am ku ku dëppoo ab dëgg am ku jum xoolalal sa bopp la ca gën a dal sa xel ca la ñu wax nga gaar ko ci tegtal yi nga jëfe loola mais bul wax rek ne kullu mujtahidin musib te loolu yonente bi alayhi salatu wasalam ci boppam moo ko wax ne ida shahada al xaakimu fa asaaba fa axtaa li muy kon mooy kii def ijtihaad imma mu isaaba mu dëppoo ak dëgg wala mu juum mais duñu wax ne kullu mujtahidin musib loolu kon liñ ciy jëlee rek mooy ne nit ñi dañuy wute wute boobu naka jekk daf fe nekk xataa ci jamono saxaaba yi dañ daan wute ci ni ñuy déggee yenn texte yi bi nga xamante ne bi Abdullah ibn Umar ak baayam Umar dañu dégg yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax ne inna al mayita la yuadabu bi bukaai ahlihi alayhi koo xamante ne dafa faatu ay mbokkam di ko jooy di walwala di yuuxu yuuxu yooyu dañ ko koy mbugalee ci bàmmeelam bi ko Aysa déggee ñu ciy saxal dégg-dégg bu mel noonu daf ne dañoo jum yonente bi alayhi salatu wasallam nammul loolu yonente bi alayhi salatu wasallam nammul ci loolu ndax wala taziru waziratun wisra uxra kenn du def bàkkaar ka ca def di la ko yanul kenn du def bàkkaar ka ca def di la ko yanul maanaam nga gis ne kon dégg-dégg yi nga xam dañ koy am léeg-léeg ci texte yi nañ koy interprété mundu ci jamono saxaaba yi nekkuñ ci woon ci benn doxin boo xoolee ñu ci wute ci ay masail lu bari la léeg-léeg lenn sax day laal ci wàllu pas ba ci comme masala boobu ñu wax noonu ndax yonente bi alayhi salatu gis na borom wala gis ko ak yu mel noonu loolu kon moo tax euh, mu baax nit ci def différence entre lan mooy loolu ñuy tuddee xilaaf ak loo xamante ni buñ ci àggee ñu ne tàqale ko am na xam kañ lay àgg ci ute bi am dayoo boo xam ne bu ci àggee ñu ne léegi li tàqale koo lay jur mais ute moom foog mu am naka jekk dafay am ci diggante borom xam-xam ci ay masaayil yoo xam lay doon yoo xamante ni fi'lan lañ ci am xilaaf Euh, boo seetloo di nga gis ne ci loolu li la koy firndeel li lay wan boog tàqalikoo gi am wala ute gi am ci diggante al ixtilaaf ak al iftiraq mooy ne tàqalikoo moo gën a tar wuute tàqalikoo moo gën a tar ndax tàqalikoo dafay am ci nit ki wute ci masala boo xam ne masala bu màgg la ci masailu diine yi nga xamante ne bii mbooloom jullit ñi képp ku ci wute ak ñoom dafay waral nga génn ci seen yoon bu fekkee nit ki dafa tàqalikoo ak ñoom ci masaail yu mel noonu bu boobaa loolu ak tàqalikoo lay jur loo xam da ngay fekk jullit ñi ñu dëppoo ci ci jamono saxaaba yi ñoom ñëpp bokk ci même pas-pas bi am ko ci ay tegtal yu leer nañ ñi ñëw ci dikk ci nga xam ne mëneesul nangu ñu ci uute di ci tàqalikoo ndax leeram ak màggaayam ak doyo bi mu am ci lislaam nit ki ñëw bàyyi lañ ca wax ak la ca jullit ñi gëm am ca beneen pas-pas ak daxawaay boo xam dafa waroo ak loola loolu des ko wudde des ko tuddee euh, wuute waaye li ñu koy tuddee mooy tàqalikoo ndax loola dafay nekk masala bu am dayoo boo xamante ni du mën a nangu nit ki wute ci ak jullit ñi wax jam ca wax waxee ko ci beneen anam boo xam ne dafay waroo ak ñoom ci pas-pas ba pare ñuy wax ne lii ak wute la waaye nekkul ak tàqalikoo loolu boobaa tàqalikoo lay jur moo tax ñi ñëwoon di wax ci ndogal jullit ñëpp di ko saxal alquran ak sunna saxal ko ci anam bu leer ne yàlla dafa def ndogal ci nit ñi bind seeni mbir lépp yàlla xam ko di ko doxal ci ñoom muy am ci ñoom ay nit ñëw ne loolu amul dara amu ci yàlla dogalul dara tomb bu toll noonu nga xam ne gëm ko dafa bokk ci ponk ponki lislaam yi juróom ponki ngëm yàlla yi juróom benn muy arkaanul iman as sitta nit ki ñëw dàq ko waxee ko ci anam booba loo xam ne tegu ko ci xam-xam tegu ko ci ijtihaad ñu dafa juum wala juumul loolu bu boobaa soppi masala bu màgg bu toll noonu am dayoo boobu dafay nekk ak tàqalikoo mais kenn du ko tuddee wute loolu nag buñ ko waxee lu yaatu la loo xam ne léeg-léeg ñu gis kenn ku bokk ci ñooñu dëgg ñi am njuumte moom tamit lu mu lu ko dal ca la ñee wax te du tax ñu boole ko ak ñoom ndax dañuy gis ku mel ne Qataada masalan ibnu Diama as-Sadusi mu nekkoon taabi'i bu mag bokkoon ci borom xam-xam yi gënoon a mokkal xam-xamu Anas ibnu Malik xadisam doon borom xam bu mag xaafis la woon min a xadis dafa juumoon ci buntu ndogal waaye njuumte la mu cay juum du tax ñu jàppee dafa bokk ci madhabu al qadariya daan di koy askane la ñoom ndax bokkaloon ak ñoom pas-pas mais ci seen i wax daal am na ca loo xam ne dëppoo na ci ak ñoom ci gis-gis li ko waral moo njuumte lu mu juum ci ñàkk xëy na dëgg masa yi na mu waree kon loolu tam ba léegi des koy def différence ki ñëw indi wax ju màggee noona am dayoo boobu di ko layal di ci woote loolu tàqale ko ak jullit ñi ak ña ko topp ak ki nga xam ne dafa nekk ci dëgg ba noppi la ñee di wax am ci loo xam ne dafa laxasu dafa lënt ci boppam muy wax lu xaw a niroog ñoom la wax kooku bu boobaa dañ naan am na lu ñee ne lu ko laal wala moom lu mu laal mais kenn du ko jël askanale ko ak ñoom loolu tam ba léegi boobaa foog nit ki def différence ñaari mbir yooyu dañuy wax tamit ne tàqali ko chaque fois du jur ixtilaaf du jur iftiraq du jur wala boog ixtilaaf muy tàqali uute uute bépp uute rek dafay jur ak tàqali ko waaye uute dafa bokk ci sabab yi nga xam ni ci yi nga xam ne dafay jur ak tàqali loolu la ñuy wax kon dañuy gis mooy ne wuute benn jumtuwaay la benn moyen la yi nga xam ne ñoom ñooy jur ak tàqaliko wuute ndax wuute bu bëree dafay jur tàqaliko loolu moo tax dañuy waxaat tamit ne nit ki mën na bañ a wuute ci masala boo xam ne ala bu màgg la ci masailu diine loolu wutale ko ak jullit ñi ba tax mu wute waaye léeg-léeg itam bu tàqali bu bu bu wuteem bare ci masailu ndaw yi bariwaay boobu dafay dem ba tàqali ko ak jullit ñi ndax am na ay masailu yoo xam ne ay masailu ndaw la nit ki mën na cee wute te du tax ñu ne dafa tàqali koo waaye bu baree ba jéggi dayoo dafay am dayoowu masala bu mag ba nga xam ne nit ko wute woon na ci ñu ne génn na ci mbooloo jullit ñi dafay daal di am dayoo ndax bariwaay bi moo tax loolu moo tax kon dañuy wax ne wuute nekkul ne dafay jur chaque fois tàqalikoo waaye sabab la ci yi nga xam ne dafay jur ak tàqalikoo loolu mi ngi ci xadis bi yonente bi alayhi salatu wasalam doon wax bi nga xamante ne daf daan jubbanti jullit ñi seen i sàppe ñu daan jullit dafay jubbanti sàppe bu mu ko daan def bis bu nekk dafa dem ba jàpp ne jullit ñi xam nañ lim leen jàngal léegi bu ñu kàb bu ñu iqaamatee dafay xool rek daal di kàbbar benn bis ñu liqaam mu xool gis kenn koo xam ne dënnam dafa jiitu dafa delluwaat ne leen la tusawunna sufufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum wala bayna qulubikum ci yenn riwaayat aw la yushikanna allahu an yuxaalifa bayna qulubikum di ngeen jubbanti seen i sàppe ba mu jub xocc wala bu ngeen ko deful yàlla dina wutale seen i xol xadis boobu dalil la ci ne kon wuute bi am ci yu ndaw ndawaani mooy jur tàqaliko ndax xol saa bu wuute tàqaliko mooy am kon loolu li muy tekki mooy ne wute sabab la ci sabab yi tàqale jullit ñi kon jéem a fexe moytandiku di wute wute bu bari donte sax ci ay masaayil yu sew sewaan la loolu bokk na ci li sàmm benn ak jullit ñi mais masaayil yu sew yi ngay xeeb ñu ciy wute wute bu bari bu baree ba jéggi dayoo dafay indi ak tàqalikoo bokkat ci wute yi nga xam ne am na diggante wute ak tàqalikoo mooy ne wute lu mën a nekk la loo xamante ne kenn du ko ŋàññi complètement ñu wax ne lu baax la comme li ñu wax naan ixtilaafu ummati rahma loolu du xadis bu wér ñi ko daan wax itam ci ay boroomi xam-xam li ñu ci jublu woon ne rahma la mooy ne dafay indi ak yaatal ak jàppandal ci jullit ñi ndax bu fekkee ñaari borom xam-xam wax na ñaari wax mu nekk ci sa kanam ñu ne la xoolal bi ci gën a dal sa xel nga jëfe ko loolu am na benn yaatal bu nekk ci man mi nga xam ne maa bëgg a ma nga ca moo tax borom xam-xam yi daan wax naan ci jamono saxaaba yi day léeg-léeg tàqalikoo gi ñu tàqalikoo moo ñuy gënal sax bu ñu wute bu ñu bennoo woon ci masaahil yooyu ndax wute bi ñuy wute dafay jur xam-xam boo xam ne dina génne ci seen diggante ba tax nit ki bu ci xoolee dina am lu bari loo xam dina ko ci jariñu ba tamit dina tax mu mën a tànn xol li gën a dal xelam mu jëfe loolu loolu kon moo tax ñenn ci ñoom daan wax naan ixtilaaful umma rahma rahma rahma boobu lañ jublu woon waaye jëmmi ixtilaaf ci boppam nekkul rahma moo tax ci tafsiru aaya bi jàngoon léegi wala yazaaluuna muxtalifiina illa man rahima rabbuka ñenn ci borom xam dañ ko tafsir ne ahlu rahmati laa yaxtalifuun ñi nga xam ne yàlla dafa moo ci ñoom yërmandeem du ñu wuute kon li muy tekki mooy wuute gi dafa waroo ak yërmande yàlla subhanahu wa taala wuute gi dafa waroo ak yërmande borom subhanahu wa taala ba léegi tamit dañuy wax ne iftiraaq muy tàqalikoo ak nu mu mën a demee dafa nekk lu ñu sib dafa nekk lu ñu ŋàññ dafa nekk lu ñu xas alors ko wuute léeg-léeg du nekk lu ñu xas léeg-léeg nit wuute ci wuute ci yenn anam yi dañ koy nangul wuuteem bi nga xamante ni wuute na ca bu fekkee dafa wuute ci ijtihaad boo xamante ni ijtihaad bu ñu nangu la daf ciy am sax yool alors que nit ki du tàqalikoo ñu naan daf ci am yool yonente bi alayhi salaam daf ne fa in axtaa wa in axtaa fa lahu ajr nit ki wuute ci masala ak dëgg ba noppi am ci yoon li ko waral mooy dafa ijtihaad ci masala boo xam ni jurul tàqali ko mais da caa wuute ak dëgg bu defee kémtalaay kàttanam sax yoon la ciy jële alors que iftiraat nit ki bàkkaar la ciy jële waaye du ci jële yoon du ci jële yoon abadan ba noppi tamit li nga xamante ne warees na koo xam ci euh, tomb yi nga xamante ne dañ koy waxtaanee mooy jëmmi tàqalikoo ci boppam buñ koy wax mooy lan comme lu ñu doon junj sànq suñu wax ci la nit ki li koy tàqale ak jullit ñi nekkul rek ci masala boo xam ni wala ñaari masala yoo xam nit ki da wute ñu ne tàqalikoo na mais fokk mu nekk masala boo xam ne masala bu am dayoo la masala bu màgg la boo xam ni war a sutee mën a wute te loolu ñu ko mën a wax mooy borom xam mi mag yi du man sama classe bi may toog ne masala sàngam ku ci wute rek dama lay jàppee ne da ngaa génn sunna dama lay jàppee ne génn nga yoonu dëgg loolu du sama classe bi man man mais borom xam-xam yu mag yi ci ñoom la ñuy jëlee loola ñoom la ñuy dégloo masaail yu mag yi nga xam ne ci masaa'ilu pas-pas ci masaa'ilu ahlu sunna leer na leeraay boo xam ne képp ku ci wute ak li ci mbooloo dëgg wax ñu ne la ci def na iftiraq muy tàqalikoon ak dëgg mais du caagante ni sama classe gi ñooy toog di wax ne wute na ci masala sàngam wax na ci lii di wax na ci lii comme da caa wute li muy tekki mooy génn na ci dëgg tàqalikoon loolu xeyru saxiix kon foog mu nekk masala bu am dayoo li liñ ciy dellu ci ñoom ci xam masala booba ndax lu ñu mën a nangu ak wute la wala déet mooy ci borom xam yu mag yi nga xam dañu jëlee ci ñoom xam-xam mais du ci mbiru parparloo ak mbiru féetewoo ak yu mel noonu wala bëgg rek askanal nit ki ak tàqali ko tax nga ne comme que masala sàngam wute na ci dama koy génne ci dëgg loolu beew la loolu jéggi dayoo ci sa mbokk jullit la mais nekkul dëgg benn yoon bu fekkente ni tamit wute na ci ay masail yu bari yoo xamante ni dafay dem ba àgg dayoo li ñu waxoon sànq ci masala bu màgg bi nga xam ne kenn waru caa wute loolu léeg-léeg te mën na koo génne waaye bari waay googa ba muy àgg ci dayoo boobu tamit loolu borom muy magi ñoo ko mën a àtte bi sama classe yi ñooy ñëw ne diw daal li muy wute ci masaayil yi bëri na wuti na ci nangam nangam nangam rek kon léegi xalaas dama koy taxe ne bokkatul ci kuréelu dëgg génne naa ko ndax def na iftiraq loolu tamit ba léegi borom xam yu mag yi nga xam ne ñoo maanu ci lislaam ak fenn fi ci xam-xam ak benn dayoo bi ci xam-xam ci ñoom la ñuy dellu laaj leen ci mbir yu mel noonu kon mbir la moo xam ne àtte ko muy jëmmi iftiraq ci boppam dafa nekk loo xam ne lu jar teylu la dafa laaj teg ko ci ay règles yoo xam ne ay règles xam-xam la yu leer dellu ci ci borom xam yi xamante ne ci ñoom la ñuy dellu ci buntu yooyu mais nekkul loo xam nit ki dafay xool rek bu fekkee mbir mi yéem na ko wala màgg na ci bëtam rek mu daal di ne kon lii ak tàqalikoo la di tàmbali di àtte ci diggante jullit ñi ay tàqalikoo li nga xamante ne waxoon nañ ko tim ba léegi ci euh, tàqalikoo xeet bi te yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ne dinañ tàqalikoo nekk juróom-ñaar fukk ak ñett benn moo ci mucc yi ci des dañuy réer tàbbi safara safara boobu nga xamante ne xupp na ko xeet wi cheikh lislam taymi rahimahullah nee na loolu dafay delluwaat rek comme texte yi nga xam ne yàlla dafay wax ne inna alladina yakuluuna amwal alyatama zulman innama yakuluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira mu ne yu mel noonu la rek ci yu mel noonu lañ koy delloo xupp gi nga xam ne yàlla da koy xupp léeg-léeg ci alxuraan ne ku jëf sàngam da nga dem safara naka noonu tamit kuréel yi mu wax ne ñoom ñëpp safara lañ jëm ci xupp gu mel noonu lay delluwaat du caagante ne ahlu sunna dañ ciy waralee ne ala kulli xal dañuy tàbbi safara fokk yàlla mbugal leen buñ fa demee tamit dañ fay sax kenn du ko déggee noonu dañ koy déggee ne ku faatu ci ñoom ci ci ci tawxid yóbbaale woo shirk dajeeg sa borom bàkkaar boo yóbbaale amaana yàlla subhanahu wa taala la ko wala bu la ko mbugalee da lay mbugal lu dayoo bàkkaar lu tolloog dayoo bàkkaar ba ginnaaw ba nga mujjee aljanna bu fekkee faatu nga ci ci wéetal yàlla faatuwuloo ci shirk ndax inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha mu des bu ñu waxee loolu tamit ci àtte gi mu àtte ci ñoom safara ne loolu du waral nekkoon kon ala kulli xaal booy wax ne ay kuréel dañoo bokk ci xeet bi ba pare yonente bi alayhi salatu wasallam daleen xupp safara loolu da leen di génne ci lislaam loolu dégg-dégg boobu wérul dañuy jàpp ne ci xeet bi lañ bokk ba léegi ndax daf ne wasa taftariqu ummati haadihi sama xeet kon ci xeet bi lañ bokk loolu moo tax borom xam yi alayhim rahmatullah daan def bu ñuy tudd ñiñ jàpp ne war nañu mën a bokk ci juróom-ñaar yooyu ñi ci taalif taalif ci li ñu tuddee al milal wa nihal tudd ci wax ci wàllu al al firaq lu mel ne al baghdadi ci al farqu bayn al firaq buñ ci daan wax di wax ci tàqalikoo xeet wi bu ñu tudd kuréel yi nga xam ne ñoom lañ xam dañ tàqale ko ku nekk sa pas-pas ak sa mbir dañ leen di xaaj ñaar dañ naan ñii ñooy kuréel yi nga xam ne mënees na leen boole ci juróom-ñaar fukk yi ak juróom ak ñett yi yonent bi alayhi salatu wasallam tuddoon ne xeetam dina ko tàqali ko buñ paree tudd yeneen kuréel yoo xam ne ne ñii ay kuréel lañ yoo xam ne dañuy askanewoo ci lislaam waaye bokkuñu ci lislaam ndax jullit ñi jullit ñi dañoo àtte ne dañoo génn ci diine ndax dañoo gëm ak di wax ak di jëf ci lislaam loo xam ne dafa waroo ak lislaam waroo boo xam ne ñoo mën a nekk ay jullit mel na koo xam dafay ñëw di fas ne sharia bi yàlla joxoon muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa yabalaat ci ginnaawam nit koo xam dafa indi beneen sharia bu ko follee nasaxal ko ba tax dañuy bàyyi sharia boobu nekk ci shariatu kooku lu mel ne al ismailiya gëm gi ñu gëm ne yàlla dafa jox muhammad ibn ismail sharia boo xam ne dafa nasaxal dafa folli shariatu muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi pas-pas bu mel noonu nit ki du ko gëm ba pare nekk jullit wala gëm ne yàlla dafa yebal ak beneen yonent boo xam dafay ñëwaat nekk ab yonent boo xam dafay ñëw indi diine yu ñuy topp genre pas-pas yu mel noonu ki bu ko xam-xam dañuy génne kii dafay askanewoo ci l'islam waaye bokkul ci diine moo tax kon juróom-ñaari kuréel juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett yi wala juróom-ñaar fukki ak ñaar yi mu wax ne dañoo sànq wax ci ñoom safara loolu du leen génne ci l'islam dañ leen di considérer ba léegi ne ci l'islam lañ bokk beneen bi ci nekkaat ci xadis boobu moom ba léegi ñu war ci taxaw di gaawantu di wax ne kuréel sàngam ak kuréel sàngam ci juróom-ñaar fukk yi ak ñaar lañ bokk mooy ñi yonente bi alayhi salatu wasallam àtte ci ñoom safara alimaamu Shaatibi daf doon wax naan wareesul di ko wax ndaxte sharia bi muy wax ci ñoom mu ne yonente bi alayhi salatu ay melokaan la jëfandikoo waaye jëfandikoo loonu ay tur dal di leen joxañ ak baaraamam ne ñii la ak ñii la mais dafa joxe ay melokaan mu ne kon wareesul gaawantu di ci wax mu ne li ko waral tamit mooy ak nooneel rek lay jur ci biir jullit ndax boo commencé di taxé say mbokki jullit di wax ne ci kuréel yooyu lañ bokk di leen utal ay tur mu ne loolu dafay gën a indi xàjjalikoo ci seen biir ak nooneel ci seen biir mu ne kon des ko war a moytandiku des ko war a bàyyi bu fekkente ni nit ki am na ñaari condition yu daje ci benn kuréel mu soog a mën a wax ne xëy na bokk nañ ci benn bi mooy mu gis ci tegtal yu jóge ci alxuraan ak sunna lu leen tudd wax ne ñii ci ñooñu lañu bokk lu mel ne alxawaarij yonente bi alayhi salatu wasalam ci boppam moo leen tuddal boppam melal leen ay melokaan yu tax boroom xam-xam yi sikki sàkkawuñ ci ne ci juróom-ñaari kuréel juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yooyu lañ bokk alxawaarij wala ñu indi wax joo xam ne dañ caa waroo ak mbooloom dëgg waroo goo xam ne daf leen di tàqale ak ñoom di ko layal di ci woote di ko def ci xooli nit ñi bu ñu waxee ak ñoom gaaral leen dëgg gaaral leen alxuraan sunna ñu fetteelu topp loolu bu àggee foofu ci dayoo boobu di yàqee noonu diine bu boobaa dañ leen di boole ci juróom-ñaar fukki ak ñaar mu ne waaye bu fekkente ni condition yooyu mu ne nit ki warul gis nit di wax wax joo xam ne wute na ci ak ay mbokki jullit rek mu daal di koy jël taxe ko ci biir juróom-ñaar fukk yi ak ñaar tàmbali di ko wutal ay tur loolu yàqute lay jur moo tax cheikhul islam ibn taymiya wax ne ñu bari ci nit ñi nga xam ne dañoo taalif ci di wax ci tàqalikoo jullit ñi ak seeni kuréel mu ne léeg-léeg dañuy dugg ci di jéem a tudd juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yooyu mu ne waaye loolo wax ko dafa laaj teey ak def ndànk nit ki waru caa wax benn kuréel ne ca la bokk lu dul da ca war am firnde bu leer bu jóge ci yàlla ak yonentam mu ne ndax loola wax ci wax ci yàlla la te yàlla dafa xaraamal nit di wax lu mu xamul mu ne rawatina bu fekkee li muy wax dafa jëm ci yàlla subhanahu wa taala bu fekkente li muy wax dafa jëm ci yàlla mooy lan mooy ne àtte ci nit ñi loolu dafa nekk buntu boo xam dañ ko tuddee baabu al asma wal ahkam al asma wal ahkam mooy ngay àtte nit ñi seen diine di àtte leen jox ay tur di leen qualifier di wax ne kii mubtadi la kii sunni la kii salafi la kii dal la kii faasiq la kii mu'min la kii muxsin la asma yooyu ay asma shar'iyya la maanaam ay tur la yoo xam turi lislaam la du samay tur man du say tur turi lislaam la maanaam lislaam moo koy jëfandikoo yàlla subhanahu wa taala day tuddee ay nit fasiquun di tuddee ay nit muminuun di tuddee ay nit muslimun tur la yoo xam ne dafa am ay atte yoo xam ne attey lislaam la boo ko tuddee nit dafa am lu ciy laxasu lu cay topp ci ay atte yoo xam ne lislaam rek moo ko mën a saxal nekkul ci sa loxo yow moo tax balaa nga koo at tuddee nit di ko askanale nit dañ ci war a am firnde bu leer bu jóge ci yàlla ak yonentam wa illaa boo ko defulee yaa gën a tar mbir ki nga xam ne sax dafa fekk lu yàlla daganal nga def xaram ndax li tax mu gën a tar mooy na yow danga ngaa atte bu woro ak atte yàlla nga waxal yàlla lu mu waxul loolu bàkkaar ci bàkkaar yi gën a tar la bokk wa an taqulu ala allahi ma la taalamun beneen bi ci des mooy da ngaa tooñ nit da ngaa tooñ nit jullit boo xam ne da koo jël askanale ko foo xamante ni bokku fa atte ko boo xam ne yelloowu ko loolu moo tax atte boobu nekk lu tara tar loo xam nit ki da ci war a def ndànk mooy la yonente bi alayhi salatu wasalam daan wax naan ida qaala rajulu li axihi yaa kaafir faqad baa biha ahaduhuma bu fekkente ni nit nee na mbokk jullitam yow yéefar bi nee na kenn ci ñoom ñaar jël na atte ba loolu mooy li mu wax ne fa in kaana kama qaala illa xaarat alayhi mu ne bu fekkente ni la mu wax noonu la demee mucc na waaye mu ne bu dee la mu wax demeewul noona mooy ka ma woowee yéefar yellowul kéefar mu ne kéefar ga ci kawam lay këpp kéeféer ga ci kawam lay këpp loolu mooy wane ne kon atte nit ci jëfandikoo tur yooyu lu màgg la loo xam nit ki da ci war a def ndànk da ko war a teylu moo xam nit ki lay atte en personne loolu moo gën a doy waar wala muy atte kuréel gi mbooloo mi di leen utal tur di leen askanale fenn ci diine loolu mbir la moo xamante ni mbir mu mu jar def ndànk la loo xam dañ ko war a ci jàngatee ci xadis bii nii waaye nit ki même bu fekkonte ne dafa def ijtihaad mu juum ci xadis bi ñu léegi ne nit bu fekkente ne dafa wax mbokk julitam yow yéefar bi imma koo ko nekk yéefar wala moom mu nekk yéefar loola borom dañuy wax ne ba léegi aw xupp la wa war a tax nit ki lu def ndànk ci li muy àtte mais bu ca juumoon te loo xam ne du bew ak jalgati rek moo ko ci yóbbu mais dafa juum dafa gis mandarga mu tax mu jàppoon ne li mu wax noonu la far mu juum lu tax mu nekk yéefar ndax Omar ibn Xattaab atte woon na ci xaatib ibn abi baltaa ba nga xamante ne xaatib bind na ab téere di ko jox ahlu makka pour wax leen mbiru yonente bi ne mi ngi génn ñëw ci bi ko yonente bi alayhi salatu wasallam gisee xam téere bi Omar daf ne yaa rasul yow yonente bi alayhi salatu wasallam bàyyi ma ma dog loosu yéefar bi mu tuddee ko kaafir yonente bi alayhi salatu ne ko déedéet bul ko def ndax dara wóoru la ndax yàlla wax na ak ahlul badr ne leen def leen lu ko def leen lu leen sopp jéggal naa leen te bokk na ci ahlul badr ahlul badr foofu Omar atte na ci kawam kéeféer ndax jëf li mu gis mu def ko am na dayoo ci moom bu tax mu jàpp ne xëy na waaja loolu dina ko tax nekk yéefar yonente ba alayhi salatu wasallam jubbanti ko xamal ko ne ko du ci yéefaree te taxul Omar daal di nekk yéefar ci saa si Cheikh al-Islam Taymi rahimahullah day wax ne foofa njuumte la lu Omar def ci atte bi mu ko atte kéefar waaye njuumte la loo xam ne caa ijtihaad juum ca ijtihaad ba ijtihaad bi mu def ci mandarga bi mu gis sukkandikoo ca ba atte ci moom yéefar da caa juum bu fekkee lu mel noonu la nit ki xëy na mënees na ko bañ a tax sa yéefar moom ci boppam waaye li muy mooy wareesul gaaw gaawantu ci buntu boobu wareesu cee gaawantu buntu la bu jar tey bu jar def ndànk waaye terewul na ba léegi borom xam-xam yi ci lu jiitu woon doon nañ junju ay kuréel ne ñoom ñooy ndey juróom-ñaar fukk ak ñeent yooyu Abdullah ibn Mubarak daan na wax ne kuréel yépp seen cosaan ñeent la doon wax ne alxawaarij benn kuréel la muy wax tamit ne ashia wax ne alqadariya ak almurjia mu ne ñoom ñooy ndey juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yi nga xam ne yonente bi alayhi wax ne dañoo sànq mu a mooy ndeyam mu daal di leen di lim wax ne ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy ashia mu ne ñaar fukk lañ ñaar fukki kuréel lañ ak ñaar mu ne alxawaarij ñaar fukk lañ ak benn mu ne al alxadariya la alxadariya fukk lañ ak juróom benn mu ne almurjia fukk lañ ak ñett mu limee leen noonu ne loolu li muy tekki mooy yeneen kuréel yi ñëwati yépp ci yooyu la ñuy bànqaasoo ci yooyu la ñuy jeexitaloo kan kam doon waxal ne ko aljahmiya nag lu tax booleew leen ci mooy ñu doon topp jahm ibn safwan benn waay bu daan woote di wax ci yàlla wax yoo xam ne ko jéggi dayoo la di wax ne alxuraan bindeef la di wax wax yoo daan wax yoo daan wax jéggi day yora ay nit topp ko ca kam doon waxal ne Abdullah ibn Mubarak di imam bu mag ci aimatu ahli sunna ne ko lu tax boolewuloo ci aljahmiya mooy ñooñu topp Jahm ibn Safwan Abdullah ibn Mubarak ne ko ñi ma laaj pour ma wax leen mooy ñi bokk ci lislaam ñooñu laa la wax li muy tekki kon mooy jaxmi yooyu nga may wax mënuñoo bokk ci juróom-ñaar fukk ak ñaari ndax bokkuñ ci lislaam boroom xam-xam ne li ci Abdullah ibn Mubarak nam mooy ñooñu nga xam ne dañoo jéggi woon dayoo ci aljahmiya daan dàq melokaane yàlla yi lépp duñ ko saxalal lenn ci melokaan di ko melal melokaan yoo xam ne sax li muy tekki mooy dañuy dàq amuk yàlla di wax ci alxuraan wax bu jéggi dayoo ak tamit di wax ci ngëm yàlla ne mooy xam nit ki bu xamee rek gëm na yàlla ngëm yàlla mooy xam ba borom xam-xam wax ne kon li muy tekki mooy iblis ci ñi gën a yàlla lañ bokk ndax xam na ci ñi gën a gëm yàlla la bokk ndax xam na terewul kon li muy tekki loolu mooy kon borom danañ moytandikuloo nit ki muy xaabaabal dugg ci tàqalikoo bi mu gis ci jullit yi di leen jéem a delloo ci juróom-ñaar ak ñaar yi di wax ne kuréel sàngam ak sàngam dañuy bokk kuréel sàngam ak sàngam dañuy bokk loolu nit ki waru cee dugg da ko war a moytandiku bu baax mais terewul gis nañ ci lenn ci ay imma yooyu ñu daan wax ci ndey ñi nga xam ne ñooy ndey kuréel yi ñoo leen jur ñoo leen meññ ndax loolu loolu tamit ci li indi problème ci xadis bi loolu bokk na ci ndax alimaamu mënuñu bépp bidaa bu ñu gis rek nit woote ca ñu ne kuréel a ngoog kuréel a ngoog mu ne bu boobaa kuréel yi dina ëpp ñaar téeméer waxatu malaat bi nekk juróom-ñaar ko ñaar loolu moo tax ñenn ñi ne xadis bi dafa woo ak li am loolu moo tax ñu sa xadis bi wérul waaye loolu wérul ndax xadis bi waxul ci bépp bépp tàqalikoo bu am rek ak lu mu sew ak lu mu tuuti tuuti ne dafay dugg ci kuréel yooyu mais xadis bi li ko tax a jóg mooy ndey yi nga xam ne ñooy ndeyi kuréel yi mooy nga xam ne ci la kuréel yi bànqaasoo yu mag yooyu ay ay pas nga xam ne yeneen kuréel yi ci des ci la ñuy bànqaasoo xëy na da am ak coppite gu ci am waaye ba léegi da ko cay delloo nday yooyu la ñu namm ci juróom-ñaar fukk yi ak ñaar loolu la noonu la borom xam ne doon interprété xadis bi mais yow boo ñëwee bëgg a déggee xadis bi ne bépp kuréel bu am ci l'islam rek dafa war a bokk ci juróom-ñaar fukk yi ak ñaar nekk kuréel à part loolu xeyru saxiix déggin boobu nekk lu mu ci ayib bu dee nag ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy alfirqatu naajiya muy kuréel googu nga xam ne gi yonente bi alayhi salatu wasallam wax ci dañoo mucc mucc ci réer fii ci àdduna mucc ci euh, safara ak mbugal ca ca àllaaxira euh, borom moo xam ne dañ ciy wax ne ñoom ñooy ahlu sunna wal jamaa mooy ñi topp sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam te tàqali ko woon ci dañ caa bennoo dañ leen di te tuddee ahlu sunna ndaxte dañoo topp sunna yonente bi alayhi salatu ci seen lépp mbir ci seen pas-pas ci seen jaamu yàlla ci seen teggin ci seen lépp lu ñuy def sunna yonente bi alayhi salatu wasallam la ñuy gëstu ba xam la ca wér ñu ñu tënku ci lool kon ahlu sunna parce que dañoo iltizaam dañoo taxoo ak sunna wal jamaa taxoo boobu ñu taxoo ak sunna lu mu jur mooy du ñu tàqalikoo ci kaw sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam al jamaa jenn lañ koy mooy wal ijtimaa mooy ahlul ijtimaa mooy gaay yi ñi nga xam ne bi nit ñi di pàccoo di génn yoonu sunna di waroo ak li yàlla yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngaloon saxaaba yi di fent yeneen i wax di ko ñoom dañoo wéy sax ci sunna boobu loolu jural leen ñu nekk mbooloo tàqalikoo wuñ wéy di des ci biir sunna yonente bi alayhi salatu wasalam loolu moo jur kalimatu ahlu sunnati wal jamaa mu nekk baat boo xam ne baat bu kee a am la baat la boo xam ne baat bu fi yàgg la ñu leen tuddee ahlu sunnati wal jamaa borom xam ne bu ñu leen mësaan laaj ahlu sunnati wal jamaa ñooy ñan dañuy wax ne mooy ñi nga xam ne amuñu leneen lu ñu leen mën a màndargale lu dul sunna amuñu leneen lu ñu leen mën a melalee ku leen bëgg a mel lu dul sunna koo xam ne amoo neneen noo ko mën a melalee ñu xam ko lu dul sunna kooku ahlu min ahli allahu akbar loolu moo tax euh, Cheikh Islam bi wax ne mooy ñi nga xam ne amuñu beneen njiit bu ñuy dellu ci moom di ko topp di ko par par loolu ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amuñu loolu kenn ku ñuy tudd ci ñoom borom xam-xam lay doon ci seen i borom xam-xam ñu ci xam-xamam mais du ko ñuy topp ki ñuy topp ñoom boo ko xoolee xaqiqatan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku mu mën a doon dañuy dimbalikoo sa xam-xam ngir gën a xam sunna yonente bi alayhi salatu wasalam mais nekkuloo seen jubluwaay da ngay wuteeg ñoom ci ay masaayil ñu bàyyi la fi ne da caa juum comme ni ko yeneen kuréel yi defee nga xam ne kuréel boo ci topp ba mu jeex rek mu mujjee ci waay kuréel boo ci topp ba mu jeex mu mujjee ci waay ahlu sunna boo ko toppee ba mu jeex ci yonente bi alayhi salatu wasalam ngay mujjee seen pas-pas ak seen diine nga mun a topp ñu la ko jokkalanteel di ko jokkalante ci ay càllale ci chaîne de transmission bu dem ba yóbbu la ci yonente bi alayhi salatu mais beneen wax joo fi topp ak diine joo fi topp ak dégg-dégg boo fi day dem ba ci benn waaye mu yem fa boo xoolee li ko jiitu exi amul woon wax ja amul woon wala pas-pas ba existé wul woon loolu nag boo bëggee après nga tëpp ay siècle askanale ko yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ci sunnaam la bokk loolu problème lay doon mu ne ahlu sunna yooyu ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën a xam waxi yonent bi alayhi salatu wasalaam ak sunnaam ku mu mën a doon ñoo la ko gën a xam mu ne seeni boroomi xam-xam ñooy fuqaha yi nga xam ne ñoo gën a dégg sunna ku mu mën a doon ndax ñoo ko gën a yittewoo gën koo gëstu gën koo jàng ku mën a doon mu ne ñoom ñooy ràññetle la ca wér ak la ca wérul ñoom ñoo koy tuxal di ci moy mu ne mooy ñi nga xam ne seen diine lépp dañ koy jël askanale sukkandiku ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam du ñu jël benn wax teg ko di ci dellu def ko diine lu dul ne dañ koo jëlee ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu mais wax joo xam dañ koo jëlee ci diw wala diw jël ko yëkkati ko ci kaw di ko màggal def ko ci seen diine mu ne loolu duñ ko def mukk abadan lu dul ne boo leen fekkee ñu yëkkati benn wax

ba loolu tàqale la ak ñoom dañuy wax ne yow ku tàqalikoo ak sunna nga ku tàqalikoo ak dëgg nga ci ñoom la ñuy nattee tàqalikoo nit ñi ñoom la ñuy nattee tàqalikoo ak nit ñi mais de su ko nattee ci beneen kuréel gu mën a doon ndax fekk nañu tàqalikoo ba noppi bu ñu waxee loolu ba noppi ci lim ñuy yóbbu mooy wax ne bu fekkente ni euh, wax nañ ci lool war na laaj ñu xam tàqalikoo googu ak li ñu xam ci yàqute gi nga xamante ni euh, am na ko ci diine xëy loolu dañ ci wax ci lenn ci malaahir yi mooy yi nga xam ne moom lay jur ci kaw ñu koy gis ci li ci Cheikh Mor wax léegi junj ko ci ci néew doole jullit ñi ak seenu nasax te yàlla subhanahu wa taala ko ci alquran ak ci yeneen mbir yoo xam ne daf koy jur ci yàq gi mu yàq seen ak bàyyi duñ koy bàyyi duñ ko taxawee duñ ko jëfe ci seen bopp te bokk na ci li ko gën a waral seenu tàqaliko li ñuy jaar mooy sabab yi sabab yi nga xamante ne bi mooy jur tàqalikoo googu ci seen biir sabab yi nga xam ne mooy jur tàqalikoo googu lu bari la ko daytal lépp wax ko mais liñ ci mën mooy xool li nga xam ne lenn ci ay borom xam-xam wax nañ ko socialistes yi nga ne ñoom ñoo ci mujjee bind ndax xëy na ñoom fekke nañ yenn yi nga xamante ne bi moo mujjee am ndax boo xoolee ñi jiitu ñoom sabab yi ñu jamonoontee rek lañ mën a wax mais day amaat yeneen sabab yu tudduwaat ci ginnaaw bi ndax lu adduna di gën a sori mbir yi di gën a doy waar comme na ko yonente bi alayhi salatu waxoon ne ma min aamin illa walladi baadahu charrun minhu xatta talqaw rabbakum xatta talqaw rabbakum jamono ju nekk rek ba ko mujj moo ko gën a yées ba baa ngeen di dajeeg seen borom mbir yi day gën di nasax di gën di dellu gannaaw nit ñi ak doye di gën di nekk ci ñoom ci seen mbiri diine ñi gën di tàqalikoo di gën di nekk ay kuréel ba baa ngeen dajeeg seen borom Abdullah ibn Abbas doon ne jamono ju nekk nit ñi dañuy gën di dundal ay bidaa ay sos ci diine di faat sunna mu ne dina dem ba bidaa mooy dund sunna mooy faatu jamono ju nekk loolu mooy dem noonu la mbir mi di demee nit ñi dañ leen di gis ñu gën di xër di sos ay bidaa di sos ay yoon di sos ay wax di sos ay fas-fas yu bees di ko topp di ca sonn guddi bëccëg di faat sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne loolu dina dem a dem a dem ba bidaa ñu dundal ko faat sunna yonente bi alayhi salatu kon jamono ji mujj tamit da ngay gis ne day am yeneen mbir yu bees ci sabab yi nga xam ne mooy waral tàqalikoo jullit ñi te xëy na ñi jiitu woon loolu feeñul woon ci seen jamono euh, li ci règle général bi mooy alimaamu Shaatibi ci al-I'tisaam dafa wax ne lenn ci borom yi xam-xam dañu wax ne bépp masala boo xam ne sosu na ci diine gaar na ci diine borom xam-xam yi wute ca wute gañ jural leen tàqalikoo mu ne xamal ne bokkul ci bokkul ci diine ndax bu fekkonte ni ci diine la bokk du leen jural tàqale ko googu bu fekkonte ni ci diine la la bokk yàlla daf ne an aqimu diina wala tatafarraqu fiihi na ngeen taxawal diine te bu leen ci tàqale ko kon bu fekkee dañoo taxawal diine nekk ci tàqale waru ci am mais masala bu gaar nit ñi wute ci wute ga jural leen tàqale ko nee na bokkul ci diine yi nga xamante ni moom mooy sabab yu sew sewaan yi nga xam ne mën nañ ko tudd yu bari la buñ ciy jiital mooy mën nañ wax ne pexe yi ak euh, nasu noonu jullit yi seen i noonu noonu yi nga xamante ni bi liñ bëgg mooy yàq diine yàq lislaam ba jullit ñi duñ ko jariñoo njariñ li tax yàlla wàcceel leen ko njariñ loolu du nekk ci ñoom bu ko defee ñu néew doole seen néew doole googu jur wala tanazaau fa tafshalu wa tadhaba rixukum aaya bi Cheikh moor jàng léegi bu fekkee tàqalikoo nañ di xiyoo ko ŋaayoo loolu jural leen néew kàttan ñu daal di nasax seen i noonu fete leen kaw noonu boobu jiitu mooy iblis ak ay ak ay gaawam iblis ak ay gaawam bokk na ci seen pexe yi gën a gën a gën a gën a gën a gën a pexeele jullit yi mooy indi ak tàqalikoo ci seen biir loolu junj nañ ci léegi Abdallah ibni Sabat mi nga xamante ne ab yahudi la woon tuddoon euh, nee nañ Bulus la tuddoon wala boog Shaul al yahudi Abdallah ibni Sabat turam xëy na Bulus moo tuddoon Shaul al yahudi mais Abdallah ibni Sabat ala kulli xaal yahudi la woon bokkoon mi yahudi Sanaa ci yahudi nekkoon ca Yaman ci yahudi yooyu la bokkoon dem ba jamono mu ñëw cuub wane ne jullit la fekk ne l'islam taxu koo yàq moo ko tax a jóg bi mu ñëwee jumtuwaay bi mu jëfandikoo ngir yàqal jullit ñi seen diine mooy indi ak tàqalikoo ci seen biir indi ak tàqalikoo ci seen biir kon tàqalikoo googu bokk na ci sabab yi koy gën a jur pexe yi nga xam ne noonu lislaam yi dañ koy pexe ndax yahudi yi ak nasaraan yi ak ñi doon jaamu ay xërëm di ay majuus lu mel ne masalan perse yi li daaneel seen i nguur yi nga xam ne ñoom lañ moo jëmmaloon seen kàttan ci àdduna wane naax saa seen diine mooy lislaam xool nañ côté bu ne ñu jëm fa jaar lislaam amuñu ko ñu gis ne li gën a am doole ci loo xam ne mën nañ fajaar jaar jullit ñi mooy dugg ci seen biir jur ci ak tàqalikoo bu ko defee ñuy xiiroo ko ngaayoo seen biir loolu néewal leen kattan bu ko defee ñoom ñu noot leen loolu moo tax seen pexe yi ñuy pexeel jullit ñi bokk na ci ci ëpp mooy jéem a fexe di def jullit ñi ay pàcc ak ay tàqalikoo léeg-léeg sax ñu jël ay wax yoo xam ne day yàq seen diine di ko tàbbal ci seen biir ci ay kanaw yoo xam ne dañ koy ubbi ñoom ñoo koy ubbi di ko ci jaarale bu ko defee yàq seen diine loolu fu ñu mës a dem foo xam ne dëkku jullit la ci moyens yi ñuy jëfandikoo ngir yàq diine ji loolu bokk na ci ba bi ñu ñëwee suñu dëkk yi gis nga niñ leen niñ leen def def leen ay këri diine kër gu nekk am xalifaam ñu ne fa ak ay yoon yoo xamante ni yoon yu bari la ku ne ak la ngay wax yàq sa morom bokkale woo leen ko danga nga jàpp ne daanaka la nga nekk ak la sa morom nekk bokkul du ñu yëg ne benn communauté lañ boo xam ne bokk benn diine ji ko dund ku ci nekk da ngay yàq say bopp yàq say mbiri bopp bennoo boobu ak boobu nekk ci seen biir yooyu loolu moo ko fi gën a mais la ma laata laata ñu fi ñëw xëy na li fi nekkoon ay école moo fi nekkoon yu jàngale xam-xam nit ñi dafa dem di fa xam-xam mais ñoom bi ñu fa ñëwee dañoo wëlbati école yooyu def ko ay kër tuddee ko ay këri diine mu nekk ay yoon nit ñi di ci askanawoo ku nekk kër ga nga bokk boo ko wuteeg sa morom dañ lay mën a xàmmee loolu ci gën a mën a yàq diine loolu bokk na ci kon noonu lislaam yi noonu diine yi jéem ci tàmbale ko ci iblis ba ci ñi ñëw ci ci ay ay ay gaawam euh, sabab lañ seen i pexe ci yàq bi nga xam koy yàq diine ba léegi tamit ñi nga xamante ni dañuy am intérêt benn intérêt bu mu mën a doon ci tàqale jullit ni ñoo xamante ni ay njiit lañ ay boromi kattan lañ ay boromi gis-gis lañ ay boromi système lañ yoo xam ne dañuy yëg ne l'islam dafay menacer seen système yooyu ñu bëgg a amal doole ci suuf ñoom itam ba léegi sabab lañ ba léegi mën nañ leen dugal ci noon yi ñooñu itam ba léegi nga xam dañuy ci ay xeet dañuy woote ci ay mbir ci ay wax ci lu mën a doon ñooñu itam ba léegi dañuy yëg ne l'islam dafay taxaw ci seen kanam di leen gàllankoor pexe ñu jëfandikoo pour affaiblir l'islam bokk na ci mooy taxale leen loolu mooy li yonente bi alayhi salatu waxoon ne yushaku an tadaa alaykum al umam kama tadaa al akalatu ala qasatiha li yonente bi alayhi salatu doon wax ci ne des na tuuti kuréel yi xeet yi dañuy wootente di xëccoo di jëw di di xëccu di jëm ci yéen ngir maanaam séddoo leen ngir séddoo leen comme ay bàyyi ma yoo xamante ni da nga leen a tegal benn euh, lekk nañ koy xëccoowee ci seen biir ku di ci am ab cër mu ne noonu lañ leen di def léegi bi mu ko waxee ñu laaj ko ne ko ndax loolu suñu néew moo ko waral bu boobaa ndax nit ñi dañuy lëkkale néew ak néew doole di lëkkale bari ak bari doole alors que bari gi nekkul ci bariwaay gi néew gi nekkul ci néewaay gi dafay nekk léeg-léeg ci liy nekk ci jullit ñi li nekk ci seen i xol nekk ci ñoom ci seen diine ku ñu dëggal ci seen bopp foofu la seen kattan di nekk ak seen néew doole di nekk waaye nekkul ci bariwaay bi rek kon du ci bariwaay bi mu ne ko mu ne leen déedéet du ci bariwaay bi ndax jamono jooju bari ngeen lool waaye di ñàkk solo da ngeen di ñàkk solo da ngeen di woyof ba lu ñëw yóbbaale leen bu ko defee yàlla subhanahu wa dina dindi seeni noon ragal gi ñu leen ragaloon ci seeni xol yàlla dina ko dindi ba pare mu def ak tiit ak yéem gu ngeen di yéem seen noonu yooyu yéem gu ngeen di yéem seeni mbiru noonu ba tax ngeen ragal leen àggale leen fu ñu àggul loolu dina nekk yéen ci seeni xol ragal gi yàlla defoon ci xolu yéefar yi mu nekk ci jullit ñi ñu ragal ko jullit ñi li mu doon wax naan nusirtu bir ru'bi a shahr yàlla dimbalee na ma tiit bu muy tàbbal ci xolu sama noon su ma naree dajeek moom diggante boo xamante ni doxu weer lañ ko war a dox mu toll fa ñu war a daje mu ne ca diggante booba jotuñu sax jàkkaarloo mu ne yàlla dina jël tiit tàbbal ko ci seeni xol ñu ragalee ma ko loolu yàlla defal na ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeetam waaye ragal boo gis nga ni ci jamono yu mujj yi dafay wàññeeku waxatuma la sax daje daje ak jullit ñi waaye dañuy faagaagal jullit ñi te duñu am lenn loo xam dañ ci ragal li ko waral mooy nasax boo xamante ne dafa nekk ci jullit ñi ndax inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim mu bokkaat ci yi nga xam ne ba léegi tamit dafay indi réer dafay indi tàqalikoo ci biir jullit ñi ak réer ak ñàkk xam ñàkk xam sabab la ci sababu jullit ñi ndax ñàkk xam xëy na bu ñu ko waxee nit ki mën na ci déggee ne mooy nit ki ñàkk xam diineem ñàkk xam li muy jëfe ci diineem ñàkk xam pratique yi nga xam ne atte yi nga xam ne daf koo war di di ci war di tënku di ci nekk ci jaamu yàlla yi muy def mais ñàkk xam bi nga xamante ni bii moom lañ namm ci bi sabab ak tàqalikoo ci jullit ñi mooy ñàkk comprendre base u l'islam yi règle générale u l'islam yi ñàkk comprendre jëflante bi nga xam ne nit ñi dañ koy jëflante ci wàllu masail ci wàllu xam-xam bu fekkente ni wuute am na diggante borom xam-xam yi ak yu mel noonu ci ba yi ñu koy sukkandiku teg ko nit ki ñàkk xam loolu ñàkk koo maîtriser ñàkk ko comprendre dina tax mu gaaw ci di tàqale jullit ñi ndax da ngay gis ne kuréel yu bëri yoo xam ne génnoon nañ ci jamono beddee ko jullit ñi ñàkk xam loolu ñàkk ko comprendre boole na bokk na ci leen génn ci ci ci l'islam génne leen ci jullit ñi ñi ci jiitu mooy ñu mel ne alxawaarij bi ñuy taxé Ali ibn Abi Talib di ko weddi di ko génne ci l'islam ndax nangu gu mu nangu ñu àtte digganteem ak Muawiya nangu gi mu nangu ñu àtte digganteem ak Muawiya ci téere yàlla bi lañ ko sukkandiku kenn ku nekk ci ñoom génne benn nit ñu daje waxtaan ngir xool lan la ñuy àtte ci diggante jullit ñi ngir ñu ñoŋal deretu jullit ñi ñuy tuur bi ko Ali nangoo gaa yi génn taxaw fale ak seeni i jaasi ne ko lii boo ko nangoo yéefar nga ndaxte da ngaa nangu ñuy àttee téere yàlla bi ay nit di ci àtte ak seen i xel téere yàlla bi ay nit di ci àtte seen i xel alors que téere yàlla bi bu ñu nit ñoo ko ñooy xool àtte Abdullah ibn Abbas bi mu demee ci ñoom di dàggasante ak ñoom di leen wax ne waa lu leen tax a taxaw fii jël ay ngànnaay di di tuur deret ci ñi di leen yéeféeral dañ ne ko moom daal ay mbiram dafa dem ba dafa lënt ci ñun ndax dafay nangu ñuy àtte ci digganteem ak ñee nga xamante ni bi ñoom la doon xeexal ci téere yàlla bi ay nit a ciy àtte Abdullah ibn Abbas ne leen moo ndax koo xamante ni bi dafa rey ab médd dafa rey ab ab ab sàmm ab rëbb ci xaram bi ci Makka fa nga xam ne yàlla daf koo tuddee xaram nga xam ne kenn waru faa bu fa nit rëbbee rey fa ab rëbb yàlla waxul ne na ñaari nit ñu maandu xool kooka lan la war a fayee loolu mu rey maanaam xool ci bàyyi may lan la war a jënd rey ko jox ko miskin yi nga xam ne ñoo dëkk ci xaram ba pour fayee ko li nga xamante ni def na ko ci rey foofu ab médité waru ko faa rey li yàlla wax ne yaxkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligha alkaaba kenn ci ñaar ci jullit ñi ñu maandu ñoom ñoo koy xool gis ne rey na masalan ab euh, ab ab ab ab lëg na na na rey bëy rey na nangam na rey nangam rey na nangam mu ne bu yàlla atteloo ñaari nit ci deretu lëg bu ñuy tuur ci xaram bi mu ne deretu jullit ñi ñaari jullit yu maan duñ ñëw xool ci atte téere yàlla bi lan lañ ci war a atte pour pour def ko ngir ñoŋal ko mu ne ñoŋal deretu lëg bu ñu rey ci xaram bi ak ñoŋal deretu jullit ñi lu ci gën a yàlla loolu mooy wane seen ñàkk a dégg dëgg dëgg diine ak ñàkk xam gu ñàkk xam ak dayoo masail yi ak yan tànk taxawaay lañ ci war am ñu seen i seen i ci ñoom ay jaam du leen rey daf leen di delloo li muy tekki kon mooy dafa jàpp ne ay jullit lañ te bu jàppee ne ay jullit lañ war a xeex ñoom ndax yonente bi alayhi salaam moo ne sibaabul muslimi fusuqun wa qitaaluhu kufr saaga ab jullit kàccoor la l maanaam kàccoor lay jural nit ki maanaam fisq la li muy tekki mooy ab bàkkaar la bu nit ki def saaga ab jullit ŋàññi ko yëjji ko waaye yëkkati ngànnaay jëmale ko ci moom di xeex moom kéeféer la mu ne yonente bi alayhi salaam moo ko wax te xamuñ ne kéeféer boobu yonente bi alayhi salaam di wax namm ci kéefar génn nit ki ci lislaam bu fekkee nit ki jàppul ne li muy def dafa dagan waaye dafa am lu ko wutaleeg jullit bi mbokk jullitam loolu yóbbu leen bañ jëfandikoo ngànnaay du àgg ci génn nit ki ci lislaam ndax yàlla subhanahu taala moo xam ne wa in taifataani min almuminina qatatalu fa aslihu baynahuma mu wax ne ñaari kuréel tuddee leen ay muminuun tuddee leen ñu gëm yàlla ba noppi ne bu fekkee dañoo jaamaarloo di xeex li muy tekki li ci borom xam-xam mi wax mooy kon xitaal ba def seen diggante waralul ci ñoom ñu génn ci lislaam bu fekkee dagana luñ ko ci seeni xol du leen génn ci lislaam moo tax mu ne innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum Abdullah ibn Abbas bi ñu ko waxee loolu mu ne kuréel yi ñi nga xamante ne dañuy xeex ñaari kuréel ñooy xeex li muy tekki mooy dafa war a jàpp ne ñoom ay yéefar lañ loolu moo tax mu sañ a xeex ak ñoom bu demee ba jàpp ne duñu ay yéefar muy continuer di xeex ñoom kon li muy tekki mooy moom yéefar la Abdullah ibn Abbas ne leen waaye yéen kan ci yéen moo ñemee def jaam jigéen ndeyam Aïcha ndax Aïcha bokk na ci ñu wute woon ak Ali ibn Abi Talib ci taxawaayu jamal bi ñu doon woon Makka ñëw ak gëléem ga di dox ay mbir yoo xam ne dafa jàpp ne da caa ak ak ak ña nekkoon foofa ba jàppante ak jaamaar ci diggante jullit ñi que Ali doon jaamaar lool ba ay ngànnaay ba deret tuuru Ali Aïcha jullit ñi wa azwaajuhu ummahatuhum ndeyu jullit ñi mu ne kan ci yéen moo ñemee yéeféral Aïcha ba jàpp ne bu xeexoon ak moom ba teg ci moom loxo da koy jël jabaroo ko gaa yi yëngal seen bopp mu ne mu xamal leen ne kon du koo jaamaar lool ci jaasi rek da nga koy daal di génn ci lislaam ñu jógewaat ci boobu mu ne gaa yi lu ngeen di waxati ci Ali gaa yi ne ko dafay négocier ci négociation yi mu nangu ñu dindi turu amirul mu'minin bi tuddee ko rek Ali ba négociation yi pare parce que déjà bu ñu négocier ak ñoo xam ne nangoogu ñoo jaayonte ak moom muy tuddee boppam amirul mu'minin kon bu boobaa loolu day xaw a ñu la ñu seen diggante kon ba fekk ñuy am solution bu ñu dëppoo na dindi amirul muminin bi mu ne lu tax muy nangu loolu imma dafa nekk amirul muminin yelloo ko bu fekkente ne dem na ba ci sikki sàkk li muy tekki mooy waratul nekk di ci xeex gis nga ni ñu catégorisé ci li ñuy atte xawaarij yi nga xam ne boo ko xoolee ci kaw da ngay jàpp ne la ñuy wax dëgg la mais lépp mu ngi tegu ci ñàkk dégg diine ñàkk am gis bu xóot di xool ci kaw rek di atte noonu di dem loolu tax ñu doon tuur deret jullit ñi Abdullah bin Abbas ne leen sulxul Xudaybiya yonente bi alayhi salatu wax na ali na ko faral muhammadun rasulullah rasulullah ji yonente bi alayhi salatu wasallam nangoo par dindi ko ci turam ci digganteem ak waa Màkka ndax moo gën a foor que li ali nangoo far amirul muminin ci digganteem ak muawiya gaa yi daal di noppi bi muy dellu juróom benn junni ci ay ci ñoom ñoo ko topp ñenn ci ñoom continuer fetteerlu ba léegi loolu moo lay wax ne lu dëgg leer leer foog mu am ñu continuer di fetteerlu ñenn ci ñoom continuer fetteerlu ñooña la mujj gi ali ibn abi talib dimbali dem xeex ñoom faat leen bi mu leen faatee ba wër ci ñoom gis ka nga xamante ne yonente bi alayhi salaam daf koo melaloon ne loxo bi dafay këtt ci catu loxo bi am luy mel ne weenu jigéen ngeen baal ma ci wax ji maanaam catu ween ni muy mel am ay karaw yu ci sax noonu la catu loxo bi di mel loxo bi dafa këtt ali bi mu leen faatee ba noppi daf ne nañ ko wëral kooka ñu wër ko gisuñu ko mu ne dina ko wër ba gis ko bi mu ko gisee dafa wàcc yàlla yuuxu kontaan loolu bokk na ci yim gën a bégee ndax yonente bi alayhi salaam daf ne woon dina am benn kuréel bu bew bu génn ci diggante ñaari kuréel yoo xam ne sama xeet lañ bokk ci wute bu ñu wute benn kuréel génn ci seen diggante mu ne ñaari kuréel yooyu ba ca gën a jege dëgg mooy xeex ñoom kon moom bi mu xamee ne moo xeex ak ñoom daf ci kontaan mu sant ci yàlla subhanahu wa taala kon loolu li muy tekki mooy ñàkk a comprendre ñàkk am dégg-dégg bu xóot ci diine ñàkk comprendre li ñu tuddee al qawaidul amma am lil islam ñàkk koo jàng xam ko ci borom xam-xam yi di xool ci kaw rek texte yi di lire mel na kuy traduire loolu ci gën a mën a indi sànkute ak tàggalikoo ci diggante jullit ñu loolu bokk na ci ndax nit ki day daal di jël masaayir yi di ko jox yenn dayoo yi di ko interpréter ci benn façon bi ci demee ay sentiment di tàqale diggante jullit ñi di taxé ay nit ci loo xam du ko teg ci benn dëgg alxawaarij loolu moo leen yóbbu ci ñi ci tuur deret jullit ñi moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam ne woon yaqra'uuna alqur'ana wala yujawisu xanaajirahum mu ne woon dañuy jàng alquran du weesu seen i buli li muy tekki mooy du àgg ci xol yi ba xol yi mën koo dégg dañ koy jàng ci kaw fu toll ñu ngi koy jàng di julli di yàlla da doon wax ne kenn ci yéen dafay xeeb julleem ci seen julli ñoom kenn ci yéen dafay xeeb kooram ci seen koor mooy ñoom li ñuy woor yéen wooroo leen lu ko toll loolu moo tax tamit kuréel yi nga xam ne ñooy génn di tàqalikoo ak di taxe jullit ñi ak di leen xàjjale léeg-léeg bu ñu waru rek ci la ñuy gis ci kaw ca la ñuy wane ci xër ak jaamu yàlla du loolu la ñuy àttee kuréel yi kuréel yi dañ leen di àttee ci xool la ñuy wax ak la ñu nekk teg ko ci xam-xam bu leer naññ teg ko ci règle l'islam yi xool ndax dëppoo na ak moom wala déet ndax xawaarij seen jaamu yàlla yemul woon saxaaba yi Ibn Abbas bañ na ko ba muy dem ci ñoom dafa sol yére yu rafet ndax xam na ni bëgguñu loolu bi mu ñëwee fekk leen seen bët yaa ngi xonk coy seen xar kanam yi dañoo sujjóot ba mu marqué marqué sujjóot mi ngi feeñ ci seen i xar kanam mu xam ne ñii dañoo fanaanee julli bi mu leen xoolee loolu lu baax na waaye lu mu leen yóbbee ñuy takfir jullit ñi ñi gën a baax ci jullit ñi di saxaaba yi di leen rey ak di leen xeeb loolu dina ñëw ci kanam tamit xawaari ji dañoo xeeboon saxaaba yi bi Ibn Abbas ñëwee dañ ne bu leen dàggasante ak moom ndax ci Quraysh la bokk te yàlla daf ne woon in hum illa in hum illa qawmun xasimun ma darabuhu laka illa mathalan in hum illa jadalan in hum illa qawmun xasimun mu ne ci ñoom Quraysh ñi la yàlla waxoon ne dañoo mën a dàggasante kon bu leen dàggasante ak moom ci Quraysh la bokk mu bokkat ci ba léegi yi nga xam ne sabab yi gën a màgg ñu tàqale jullit ñi am problème ci ni ngay sukkandikoo ci sa diine ni ngay sukkandikoo ci sa diine bu fekkee nit ki da cee am problème li muy tekki mooy la muy déggee diineem yépp njuumte lay doon ndax lu ñu tabax ci njuumte dafay yàq te sa sukkandiku ci sa diine ci sa diine yépp ci loolu nga koy tabax mooy ni ngay istidlaale ni ngay sukkandikoo manhajul istidlaal wa talaqi mooy ni ngay déggee sa diine dégg-dégg bi fa nga koy jële bu dee da ngaa jum ci balluwaay ba ngay jële sa diine fa nga war a dellu di alquran ak sunna ak li saxaaba yi nekkoon jële ci sa diine du foofu ngay dellu loola tàqalikoo lay jur sa diggante ak jullit ñi ndax bu fekkee yàgg sa mbokk jullit fi ngeen di jëlee bokkul du ngeen mën a bokk li ngeen di gëm du ngeen di mën a bokk diine ci ngeen nekk ndax ku nekk ak fa ngay jële qad alima kullu unaasin mashrabahum ku nekk ak fa ngay jële waaye bu fekkee da ngeen bokk fi ngeen di jële te bokkoo leen li ngeen fay jële itam daf leen di tàqale mooy bokkoo leen anam bi ngeen fay jële daf leen di tàqale ñoo bokk fi ñuy dellu muy alxuraan ak sunna waaye bokkuñu ni ñu koy jëlee bokkuñu ni ñuy jëlee texte yi kii daf koy jël dégg ko déggin bu mucc ay jiital texte yi xool li mu joxe mu jël loolu jafe ko kii dafay ñëw jiital yenn xalaat bu ko jiitalee ba pare soo ko jël texte yi di ko jéem a méngale xalaat ya comme ni ko yenn ci tarix yenn turuq yi nga xam ne ñooy euh, masalan al mu'tazila di defee ak kuréel yi nga xam ne kuréelu bidaa yi la ndax limaamu Shaatibi dafay wax ne kenn ku nekk ci ñoom boo sosee dara ci diine lu mu doy doy doy waar da nga koy jéem a utal ay lay ci alxuraan a sunna léegi boo ñëwee gaar ko ci alxuraan ak sunna bu texte yi dëppoo ak moom nga daal di ci kontaan te du mën a dëppoo ak moom waaye bu dëppoowul ak moom bu dee yaxu alxuraan nga wëlbati ko ba tekkee ko noo xam ne dina dëppoo ak li nga wax ak la nga gëm kon tegtaloo tegtaloo ci ba waaye da ngaa jiital la nga bëgg jiital gis-gis ba nga gis ba noppi soo ko jël aaya bi lem ko ba mu dëppoo li nga bëgg bu dee ab xadis la ñaari taxawaay lañ ci am bu xadis bi waroo lool ak li ñu wax ba mënuñu koo wëlbati dañ koy dàq ne xadis bi wérul ci loo xam ne ko teg ci benn xam-xam ci xam-xamu xadis bu fekkente ni mën nañ koo wëlbati ñu wëlbati ko war ngee ko fexe ba mu dëppoo ak lañ bëgg a wax kooku bu nee tamit mi ngi dëpp mi ngi sukkandiku ci alxuraan sunna sukkandikuwuñ ba wérul waaye am na keneen ku gën a sewaat loolu koo xamante ni bi xëy na sax dafay jël alxuraan ak sunna jiital ko di ko jëfe waaye nam ca war a demee demeewu ca loolu tamit bu fekkee am na njuumte yu ci am ci demin bi ci alxuraan ak sunna ak jëfandikoo bi mu koy jëfandikoo di ko tegtaloo njuumte yu sew sewaan yooyu dina jur ak tàqalikoo ci biir bi bokk na ci di jël xam-xam te doo ko jëlee ci ñooñu xam-xam ut yeneen bunt yoo xam ne fa ngay jëlee xam-xam ñu la koy jàngal mooy xam-xam bi ngay sukkandikoo di ci jëlee ci alquran ak sunna doo koy jëlee ci yeneen bunt yu bokkul ak bunt yi ñu ko war a jànge dem di ko jële ci ay kaset dem ci internet te léegi dafa bari suñu jamono ji ñuy dund da gis koo xamante ne dafay jàppe borom xam daanaka boppam borom xam lu borom xam mi wax bu dugg ci te li muy wax lépp da koy bricoler ci ay ci internet wala ci ay kaset de gauche à droite ndax borom xam-xam yi daan def bu njëkkoon woo motu dem ci boroomi xam-xam yu jàng ay fànn ba maîtriser ko ñu ñëw jàng ko seeni loxo ba xam ko ñoom itam soog cee wax léegi loolu amatul da ngay taqalee gauche à droite xam astut tàmbali di dàggasante ak di wax ku wax nga wax tàmbali sax di dajale say nit di leen am fu ngeen foo leen di jëmale ak foo leen kon bàyyi boobu nit ñi di bàyyi léegi jële xam-xam ca yoon yañ ko daan jële di ko jële ci loxoy boroomi xam-xam yi ñu tàggat la ci ba loola nga dëgër ci soog saa sañ a wax léegi nit ñi dañu commencé di sori loola loolu bu fekkente ni ña ngi cay gàttandu li muy jur mooy tàqalikoo la indiwaat ci xeet bi wala di dem ci koo xa ci ñoo xamante ni bii xamuñ leen ci xam-xam màccuñ ci xam-xam amuñ ci benn gis-gis bu xóot bi ngay dem di jëlee ci ñoom xam-xam parce que yéem na la wala parce que nangam wala parce que nangam nit ki di tënku ci moom da jëlee ci moom xam-xam kon bàyyee jànge xam-xam ci ñooñu xam-xam loolu bokkaat na ci sabab yi nga xam ne mën na tàqali ba léegi xeet mu bokkaat ci ba léegi ci nga xamante ni dafay sabab dafay mandargaal wala boog dafa bokk ci yi nga xam ni yuy indi ay xajam la ci nit ki delloo muy delloo ci alxuraan ak sunna mooy beddeeku borom xam-xam yi beddeeku borom xam-xam yi loolu tamit ba léegi borom xam dañu ko daan moytandikoo alimaamu zahabi mi ngi ci doon wax ci siru alaami nubala bi muy expliqué di wax dund ñenn am na ku mu koo xam ne daf ne moom li mu gisoon mooy mën na di jàngal boppam yore ay téeram di jàng ba am xam-xam te du dellu ci borom xam-xam mu ne sikki sàkkaw mu ne loolu njuumte la loolu réer bu rëy la ndax nit ku nekk ci anam boobu day gis mbir ba dogu ci jàpp ne dëgg la fekk ne da caa juum léeg-léeg na muy déggee mbir ma sax da cay juum te du xam ne da caa juum te bu fekkoon dafa tàggatu ci loxo yi borom xam-xam juumte loolu borom xam-xam dina ko ko fànqal dina ko ko fànqal waaye bu fekkee moom boppam la day lire ab texte léeg-léeg dégg safaan ba ci texte ba daal di jàpp loolu yaakaar ne li mu dégg noonu la fekk ne dafa jum kon ñàkk a tàggatu ci borom xam-xam yi beddeeku leen beru léeg-léeg ci ay lay yoo xam ne ki daf koy ut ndax borom xam-xam dañ daan wax njëkkoon naan kenn ci ñoom daf doon wax naan mu ngi ci al euh, jaamiu bayaanil ilm bu al imam ibn abdul bar mu jëlee ci lenn ci as-salaf muy wax ne borom xam-xam bu njëkkoon dañ daan def bu ñu dajee ak koo xamante ni moo leen sut ci xam-xam bis boobu bisu ngañaay la ci ñoom duñ ko sax gëmee al imaamul buxaari daf daan dugg basra borom xam-xamu xadis yi dañuy bàyyi li ñuy def daw topp ko di ko mocc di ko leewaayu di ko mocc di ko leewaayu ba mu toog ñu déglu ci moom xadis boobu ñaar fukki at rek la am xale bu ndaw la ay borom yi bi jaaw ñoo doon ci ginnaawam ndax xam nañ ne lim dajale ci sunna yoruñu ko dañ ko daan topp di ko leewaayu ba mu toog maanaam di ko di ko wax di ko wax ba mu toog ñu ñu wër ko bu ko wëree bu toogee ay junni junni ñoo koy wër di jëlee ci moom xam-xam bu ñu mësaan daje koo xamante ni bii borom xam-xam la duñ ko gëmee kenn ci ñoom mi ngi wax dafa nekk ci jàkka ji Basra dégg ku yuuxu naan waa Basra Muhammad ibn Ismail ñëw na daw leen ngeen fekki ko nee na gaa mbooloo ma fëx ñu daw dajaloo ci jàkka ja biñ ñëwee fekk ko muy julli ci benn taat ci taat yi euh, euh, bant yi nekk ci jàkka ji dañoo toog wër ko di ko xaar dafa sëlmal rek ñu song ko ne ko foog nga nett lu ñu xadis te booba xale bu ndaw la nekkagul sax mag ay ñaar fukki at rek lay am ñoom noonu lañ doon jëlee xam-xam bu ñu njëkkoon dañ daan xam ne kii yàlla may ne ko xam-xam duñ ci xool dara dañuy dem seeti ji ko alimaamu Buxaari sax ab arab te ay arab ci dëkki arab yi la daan dem ñu daw topp ci ginnaawam mbooloo ay junni junni jëlee ci moom xam-xam loolu léegi yaakaar naa tumuranke na loolu dañ daan wax itam ne bu fekkente ne dafa daje ku mu maaseel ci xam-xam bis boobu bisu fàttalante lay doon ku ne da jariñ sa morom alimaam ahmad dafa toog ak euh, ahmad ibn salih al masri ñuy fàttalante xadis di fàttalante xadis ku ne xadis boo wax sa morom xam na ko kenn ci ñoom mënut a wax xadis sa morom xamul mais dañ daan jariñante ku ne fàttali sa morom ne xadis bi jëlee naa ko ci diw jëlee ko ci diw kii tam ne man jëlee naa ko ci diw ci diw benn xadis la imaam ahmad wax te ahmad ahmad ibn salih amu ko benn xadis mu ne ko nettali ma kooku ne ko xaaral ma jël sama téere ñëw nettali la ko benn xadis loolu dañ daan def majlisu muzaakara di fàttalante kenn du dencal sa morom dara kenn du yëkkatiku ci sa kaw morom di ko jéem a wan ne ko maa la sut maa la xam-xam bu dajee koo xamante ne bi daf koo féete suuf du ko ci kawam dañ daan wax sax naan nit du nekk borom xam-xamu xadis xaqan li fekk jàngewul ci ñett dina jële ci ku ko féete xam-xam ci xadis jël ci ku mu tollool jël ci ku ko féete suuf li fekk nit ki dajalewul yooyu du mën a nekk borom xam-xam xadis kon ñoom yooyu mais léegi jamono dafa dem ba nit ki dafay jéem a comme nuñ ko waxee ci asar bi daf na ñu dem ba suñ jamono ci jamono yooya nit ki dafay dal ci kaw ki nga xam ne moo ko moo ko féete euh, kaw ci xam-xam di ko jéem a utal ay sikk di ko jéem a utal ay ay ay mbir yu mu koy kole ba tax mu beddi ko teg na le du dem di jàng ji ci moom bu ko defee nit ñi ne li tax demul ci moom mooy parce que kooku dafa sikk ndax boo ko sikkalee dootoo fa demati lépp pour bañ a wommatu wàcce sa bopp jàng ji ci moom ci xam ndax mënoo mim ne moo la sut ci xam-xam léegi kon li fi sës mooy gàkkal ko ba nga xam ni dootoo fa dem ki nga tollool moom da koy jéem a wan ko yaa ko yaa wala daal ala kulli xaal nga jéem a fexe xam nga bu fekkee ci ci la sut ngay gàkkal ki nga tollool moom waxi noppi waaw koy jëmma a noo ko wan ne ko yaa ko sut wala yooyu bu dee koo xamante ni yaa ko tane nag moom tey mu dee foo dajee koo tane moom tey mu dee allahu mustaan kenn du dégg léegi yooyu bu bu nga xamante ni ñi dem nañ ba mel noonu ci lañ sànq xam-xam ci lañ sànq xam-xam wute lool ak doxalin ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo jiite woon ci wàcce guñ wàcce woon seen bopp ci xam-xam mu bokkaat ci ba léegi ne dañ koy gis nekk ay gàkk-gàkk ci sàkku bi ba léegi te muy loo xam ne bu fekkee ngi ci euh, nit ki sàkku winu xam-xamam daf koy jural njuumte loo xam ne ci tàqale jut ñi loolu bokk na ci mooy di xeet ak di doyo dal borom xam-xam yi xëy na junñu nañ ko ci suñ biir wax di xeet ak di doyo dal borom xam-xam yi ak di yëkkati ko ci seen kaw xool masala sàngam mu waxee ko ci benn façon nga dem gëstu ji masala de gëstoo gëstoo gëstoo gëstoo gëstoo gëstoo gëstu ba xam ne li mu wax xëy na dese naa dëgër nga ñëw toog commencé lu ne nga wax ko pour wane ne wax nga loo xamante ni moom xëy na waxu ko fekk ne moom ba muy wax wax ji xëy na sax gëstuwu ko bu baax ni mu ko ni mu ko ni mu ko teewloo rek noonu la ko waxee benn bis dama gis benn téere kenn di ci wax benn xadis boo xam ne Cheikh Nasiruddin Albani daf ko wéral waa ji jàpp ne xadis bi njuumte la dama ko indi sax classe fii fi ñuy jàng nii ci wax ak xëy na étudiants yi bokk na li ma leen ci wax ma ne leen lii waa ji def bu mu leen yéem ba tax ngeen di sikki sàkk ci xam-xamu Cheikh Nasiruddin Albani ci xadis wala ngeen di jàpp ne waa ji dafa xam lu mu xamul ma ni ci ñaata at def ci téere bi ngir benn xadis bi dong mu wane ci njuumte Albani Cheikh Nasir téere ay téere téere la taalif xadis bi benn la ci junni xadis yu mu wéral kii nag xadis bi da koo seppi ci biir junni xadis yooyu def ci ay ati at ngir wax ci loo xam ne xëy na mooy gën a yaatu li Cheikh Nasir wax te sax xëy na mënu cee indi loo xam ne ump na góor gi ndax góor gi li mu ciy waxee da koy te moom da cee taalif téere kon boo gisee yu mel noonu nit def ko bul tax bu mu tax nga yéemu ci nit ki day dem songu benn buntu ne ci ne ci ne ci ne ci ne ci ne ci ne ci léegi nga décoller la mu ci wax wax ji yéem la nga daal koy bëgg a jàppe borom xam-xam ndax wax na ci wax ju yéem yéemin boo xam ne borom xam-xam ba muy wax moom xëy na sorewutal noonu loolu kenn du ci juum kenn du ci yéem moo tax yëkkatiku gi ñu yëkkati ko borom xam-xam yi ci ñoo xamante ni bi tolluñ leen fenn loolu ci li gën a tàqale jullit yi ñu gën a fooge xam-xam xam ne wallahi alazim duñu dara mais léeg-léeg fi seen i tur di àgg ak fi leen nit ñi di àggale te lépp ñoom ñoo koy def ndax ñooy wane seen bopp ak wane seen bopp ne àgg nañ foo xam ne ci xam-xam àgguñu fa ba nit ñi leen teg xam ne ñiy wëlbatiku di tàqaliwaat jullit ñi ci di leen def ay kuréel di indi ay wax di dal ci kaw yi lañ doon def alxawaarij loolu yi lañ doon ak di leen taxé lañ leen daan taxé ak di yëkkatiku ci kaw saxaaba yi te yemuñu fenn saxaaba yi ci xam-xam bi nga xam ne saxaaba yi jëlee nañ ko ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu bokkaat ci ba léegi njuumte yooyu jàngalante gi nga xam ne ndaw ñi dañ koy jàngalante seen biir jàngalante goo xam ne dafa tax léegi ñu bàyyi seen i magi borom yi xam-xam borom xam ne dañuy wax ne ay ndaw nekk seen biir di jàngalante di jàppalante ci li ñu xam talente ci xam-xam dara nekku ca waaye nag na nañu dellu ci mag ñi leen tane ci xam-xam ñoom ñëpp nañuy dellu nañuy jàppalante naam ci ñu tane ñuy tanente ak téere boo xam ne kii tane na ci moroom ñu ciy jàppalante waaye loolu bu mu tax ñu seen i xalaqay bopp nekk fa ñoom képp ñoom ndaw ñooña nga xam ne seen xam-xam xóotagul di fay tëju ci seen daal di bàyyi seen i mag yi borom xam yi nga xam ne seen dund lépp ci xam-xam lañ ko jeexal jàpp ne léegi soxlaatul ñu dellu si ñoom ndax liñ soxla ñu ngi koy gëstu suñu biir loolu day tax ñu tëju di am ay idées yoo xam ne ak benn radicalisme boo xam day nekk ci ñoom di màgg di màgg di màgg doo am lu dul jekki-jekki dégg la ñuy yoo xam ne boo ko déggee sa loxo foog mu dem sa génn moo tax loolu tamit problème lay jur mooy ndaw ñi nga xam ne dañuy ñëw di euh, jàngalante seen biir jàngalante goo xam dafay tax ñu bàyyi seen i mag yi xam-xam boroom xam-xam nag laa wax mooy boroom xam yoo xam xaqan ay boroomi xam-xam lañ mu bokkaat ci sabab yi nga xam ne ba léegi dafay jur tàqalikoo iftiraaq mooy jàpp ne topp borom xam-xam yi nga xam ne ay borom xam-xam yu ñu nangul seen xam-xam la jariñu seen xam-xam toppandoo la léegi loolu dafa dem ba am ci jamono ñenn ñi dem sax ci fiqu al imam malik di ci jàng dañuy jàpp ne loolu toppandoo la boo xam ne jaaru warul am boo ne damay jàngee sama fiq ci fiqu al imaamu shafii te ñooñu al imaamu cheikh lislam bi taymi rahimahullah dafa wax ne al ijma ala jawazi mu ne xeet yëpp dañoo dëppoo ci ne ñooñ ñu mën a dellu ci seen i usul la ci fiq jàng ko topp leen ca ndax seen xam-xam bu màgg bu ñu amoon ci lislaam ay aima lañ ci lislaam ay njiit lañ ci diine ay kilifa lañ ci diine dañu war a mën a topp ci seen xam-xam jariñoo ci bu nit ki jëlee seen xam-xam ak seen école yi nga xam ne sañte nañ ko ci xam-xam ci fiq mu def ko comme jumtuwaay ngir jàngee ko fiq ndax fiq mënoo koo jàng jàng bu génn école yooya boo ko jàngee jàng bu génn école yooyu da ngay bricoler di taqalee gauche ak droite te loolu du fiq bu tax ñuy wax loolu def ko jumtuwaay na def cee jàng nga ne ko li ngay def taqlid la taasub la da ngay toppandoo ne ko li la li ngay def bidaa la loolu ci gën a mën a indi ay problème ci bokk na ci mu demaat ba ci borom xam yi nga xam dañuy dellu ñoom moo xam ñu dund ci jamono ji wala ñu sax ndax ñi dund ci jamono ji duñu dara boo lëkkale ak ñi jiitu di dellu ci ñoom di jëlee seen xam-xam dafa dem ba léegi nit ki bu jàppee ne loolu taqlid la toppandoo la parparloo la jàppee ko noonu loolu bu boobaa problème lay jur ndax yooyu ciy jur a tàqalikoo la jur ci biir xeet bi façon déggin bu mel na njuumte la tàqalit jaaduwul di toppandoo ak di parparloo jaaduwul nit ki du ko def mais nag loolu du ko tere benn yoon muy dellu ci borom xam ni jaruñu ci seen xam-xam mu bokkaat ci ba léegi gàttañ lu boo xam nit ki dafay gàttañ lu ci am dégg-dégg ci ci fiqu alxilaaf mooy teggi ni ñu war a jaare bu fekkente ni wuute am na ndax wuute mënut a ñàkk suñu biir mais war nañoo xam bu wuute bi amee ci yan teggin lañu war a sukkandiku ba tax teg ba tax wute boobu du jur ci suñu biir tàqalikoo mais bu fekkee dañoo gàttañlu ci comprendre fiq bi ñu tuddee fiqul xilaaf ak aadaabul xilaaf bu boobaa bu ab wute bu ndaw amee suñu biir ci ay masaayil rek dañ koy daal di àggale foo xam ne àggu fa jox ko benn dayoo bi loolu jur suñu biir ay tàqalikoo moo tax dañu war di jàng di dégg am fiqul xilaaf xilaaf bi daan am ci saxaaba yi ba ci jamono yu mujj yi ñu ciy jàng di ci delluwaat ci ku mel al islam ibnu taymi rahimahullah wax yu jéggi dayoo la ciy wax yoo xam ne nit ki bu fekkente ni dégg na ko xam na ko loolu dina tax mu gën a yaatu dënn ndax léeg-léeg xat xat dënn gi tamit li koy waral mooy ku mel ne man dafay maîtriser benn bunt ci diine maîtriser yenn masala ci diine yaakaar ne xam-xam yépp mi ngi ci bunt boobu dara génn ko lu nit waxati lu wute ak loolu mu daal di lay taxe lam lay taxe ndax benn borom xam-xam di Xalil ibnu Ahmad daf daan wax naan bu fekkonte ni xam nga sama wax di ma wax fi ma ko teg di ma utal ngànt wala yow nga xamoon li ngay wax fi nga ko teg dëgg dëgg dëgg kon dinaa la yedd ndax wax ji ngay wax ju yàqu la mu ne waaye da ngaa réere li may wax moo tax nga may yedd man ma xam ne da ngaa xamul dara moo tax ma gàntal la man ma xam ne xamoo dara moo tax ma gàntal la li muy tekki mooy bu fekkente ni nit ki day wax ci dara di ci wax ci niveau boo xam ne yow dese nga koo peeg comprendre ko xam usul yi muy sukkandikoo ak fi nga xam ne ci base yi nga xam ne ci lañ teg wax yooya mais da ngay xool wax ci kaw nii rek ak li nga ciy ci kaw ngay attee foofa léeg-léeg ci gën a tax nit ki di tàqaliko loolu bokk na ci ndax xatub gis-gis dafay waral xat xatub xol nit ki lu gis-gisam di gën a xat ci xam-xam yaatu dënnam di gën a xat muy gën a ñàkk yaatu dënn mais wallahi alazim lu nit ki di gën a yaatu ci xam-xam di ci gën a nooy lu nit ki di ñor ci xam-xam di ci gën a nooy xam-xam ci boppam moo mel noonu nit ki dafay dem ba sax da nga naan kii dafa xaw a sàggan tuuti ndax léeg-léeg bu xoolee masaayil yi xool fi ñu ko teg xool adilla yi du ci gaaw a ñemee àtte da ci ragal a àtte alimaam Malik dañ ko daan laaj fukki masala ak juróom mu tontu juróom yi toog noppi ci fukki ñu ne ko waa doo ñu tontu mu mer ba kanam gi soppeeku ne leen tontu naa leen ci li ma xam ngeen bëgg ma forcé ma tontu leen ci li ma xamul fekk ne wallahi jamono jooju la mu xam bu ko ca waxoon kenn ci ñun du ci dolli waaye moytandikoom bu mu moytandiku ak dayoo bu mu xam ci xam mooy tax muy ragal a tontu mooy loolu mooy xam-xam daf lay ragal loo loo ko gën a am mu lay gën a ragal loo moo tax daf daan moytandiku daawul sax wax ne lii dafa xaram wala lii dafa dagan dafa daan wax naan inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bu mustayqinin saa bu musaan atte ba pare naan dañuy njort rek li ñuy wax lépp ay njort la waaye amuñ ci benn dogu loolu la daan wax ngir moytandiku di atte ci lislaam ne lii xaram wala lii euh, xalaal dafa daan wax naan laa araaka la gisuma nangam bugguma nangam ma nangam mooy di ko delloo ci boppam waaye doo ko daaw ko nangoo delloo ci yàlla ndax bañ a waxal yàlla lu mu wax loolu yëpp seen ragal yàlla ak seen ragal bu ñu ragal xam-xam moo leen ci yóbbu woon mais xam-xam loo ko gën a la di gën a ñeme loolu ci ci ci ci jumtuwaay yi nga xam ne léeg-léeg ñiy tàqale jullit ñi loolu melokaan yooyu da koy faral di fekk ci ñoom melokaanu dogu googu ak ñemee tàqale ak ñemee dogu ci ay masaayil yoo xam ne ka koy wax maîtriser wu ko bu ko xamoon bu baax sax ko ñemee noonu mu bokkat ci ba léegi ak taral ak ëppal ak jéggi dayoo ci diine loolu tamit bokkaat na ci yi nga xam ne ba léegi dafay euh, tàqale jullit ñi taral boo xam ne da teg jullit ñi loo xam ne attanuñu ko loo xam ne yàlla tegu leen ko yonente bi alayhi salatu tegu leen ko di xatal ci ñoom ak di leen àtte ak di ñoom di am ci ñoom taxawaay yoo xam ne yellul jaaduwul benn yoon taral googu nga xam ne moom lañ fekkoon ci alxawaarij ci nañ diisale woon ci jullit ñi bay di tuur ci seen deret ci loo xam ne atte yoo xam ne yàlla atteew leen ko yonente bi alayhi salatu wasallam atteew leen ko mais alxawaarij ñoom ñoo leen ko atte atte bi tax xawaarij yi atte ko jullit ñi mooy seen dégg-dégg bu yàqu bu ñu dégg diine dégg-dégg bu yàqu boobu moo jural ci ñoom jéggi dayoo googu ñu jéggi dayoo ci taxawaay bi ñu am ci jullit ñi kon tashaddud boobu nga xam ne day nekk ci nit ki ci jéggi dayoo ci ay mbir ci ay masail ci ay prise de position ci ni muy faralee diw ak yu mel noona loola ci liy gën a indi problème ak liy indi tàqalikoo ci jullit ñi la bokk mbir bu la yéenee convaincre la nga xool ko ci sa mbokk jullit ngeen waxtaan ci koo xam ne doo ko tuumaal ci yéeneem doo ko tuumaal ci xam-xamam nga gis ne dese ngeen caa déggoo gënal nooy nga xoolaat ko ak moom bu baax a baax te bañ cee gaaw a tranché bañ cee gaaw a dogo cee gaaw a tranché bañ cee gaaw a dogo <clears throat> bokk ci mandarga yi nga xam dafay mandargaal taral googu nit ki di gaaw di àtte ci gaaw di taxe di leen gaaw di ak di leen gaaw di féetale fenn su fekkee gis na ñu wute ak moom ci yenn principe yi nga xam ne moom dafa jàpp ne lam ca nekk loolu dëgg nekk loolu dëgg la mu ba léegi mandarga yi mandargaal taral boobu nit ki di am njort bu ñaaw ci ñi nga xam ne ñoom la wuteel ci ay masail gaaw a taxe nit ki ak tuumaal njort euh, yéeneem gaaw tuumaal yéene nit loolu njuumte la loolu bokkul ci tegginu wute dafa bokk ci tegginu wute nga am rafet njort ci sa mbokk jullit bi nga wuteel nga jéem ko utal ngant li bi ibn Abi Talib doon def ak xawaarij bu ko xawaarij yi defoon ak moom kon wute du am bu leen jàppaan daf naan suñuy mbokk lañ dañoo bew jégg dayoo ci suñu kaw waaye xam naa ni lu baax lañ bëgg ndax minal kufri qad farru ci kéeféer la ñu dawee ba dugg ci lislaam kon mbon taxu leen a dañoo xamul rek bu fekkoon ñoom nooy googu ak compréhension boobu lañ am ci timit Ali ibn Abi Talib kon problème du am mais malheureusement ñoom amuñu dégg-dégg bu mel noonu amuñu tooy gu euh, nooy gu mel noonu amuñu compréhension bu mel noonu loolu moo tax bokk na ci mandargay taral googu mooy gaaw a tuumaal yéenewu ki nga xam ne moom nga wuteel di tuumaal yéeneem ak di wax ne réer moo ko tax a jóg dafa bëgg a sànq nit ñi dafa bëgg a bidaa dafa bëgg a nàngam te xa xoolaatuloo masala bi bu baax ne xëy na mën na am dafa dese leer ci moom mën na am daf ko desee comprendre mën na am waxu diw moo ko ci yem mën na am xadis bi mu suggandiku nangam mën na am nangam loolu la borom xam mi daan tegg tegginante ci seen diggante bu njëkkoon dañ daan jéem a wutalante ngànt kenn ci ñoom sax masala nit da ci daan wuute tax lam ca waxoon mu xaw ci teggi tànkam al imam malik bi yonente bi alayhi salatu wasallam waxee ci nikaaxu shigar ci xadisu abdullah ibn omar tere nikaaxu shigar mooy nit ki ne mbokk jullitam may ma sa doom ma may la sama doom a masalan masalan bu ko defee immaa ñu joxante can wala kenn ki jox can moroomam ki ci des joxe can wala kenn di jox can sa moroom bu fekkee joxante nañ can loolu xëy na nekkul lu gën waaye kenn du wax ne dafa xaraam sëy ba dafay yàqu ndax can am na ci dañ koy tuddee sixaar ndax weccoo gi ci nekk mais comme can bi am na sëy gi dina wér mais bu kenn nee lay can rek sëy gi dafay yàqu loolu boo xam ne sixaar bu baaxul mooy ñu neenal can te can dafa bokk ci àqi sëy kenn waru koo neenal dañ ko war a tudd léegi alimaam Malik dafa waxoon ne sëy boobu sëy bu baaxul la sëy bu yàqu la waaye sëy bi bu fekkee dafa yàqu bu ca doom juddoo ndax doom ji dañuy jàpp ne judduwul ci sëy ndax atte yooyu yëpp dañ ko cay daal di teg miraas dootul am ak yooyu yëpp dañ ko cay teg imaam Malik da caa teggi tànkam ñemewu la àgg foofu te pourtant li mu wax loolu la woon jur waaye loola waxam waroon a jur da tànkam ba mu xamee ne Abu Xanifa da caa wute ndax Abu Xanifa dafa jàpp ne sëy boobu bu fasoo xëy na waruloon fasu ndax dañ koo tere waaye bu xasee ba fasu lu wér lay doon ba mu déggee imaam bu toll noonu wax wax jooja ci la teggi tànkam ci ñaareelu jéego ba mu waroon a séqi muy neenal attey lislaam yi listam teg ci kaw sëy ba mu daal di teggi tànkam foofu ñemeetu caa àgg ndax sóoraale wuute boobu ci imaam boobu wuute loolu lañ tuddee muraatul xilaaf buntu la ci buntu xilaaf mais malheureusement nit bu fekkee comprendre yooyu xamul al qawlu ak laazimul qawlu ak yu mel noonu dafay ñëw di xotti di dem rek bu ko defee di di tàqale ci diggante jullit ci ay masaayil yoo xam sax warul am dayoo bu mel noonu moo tax kon bunt boobu bu fekkente nit ki da caa am problème ak ci taral boobu nga xamante ne da koy dafay nekk ci anam yi nga xamante ne waxee nañ ko ci gën a mën a tàqale jullit ñi loolu bokk na ci mu bokkaat ci yi nga xam dafay tàqale ba léegi bidaa muy di sos ci diine sos bi nit ñi di sos ci diine di tàqale la bokk ndax bidaa mooy tàqale jullit ñi saa bu ñu sosee dara rek tàqale koo am na ndax li nga sos daf lay wutale ak seeneen mbokk jullit yi daf lay wutale ak li ñeneen ñu nekkoon te loolu ci boppam dafay dem ba jamono mu indiwaat ak tàqale ko indiwaat xiiroo indiwaat ak naayoo loolu mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ne wa min alladina qalu inna nasara axadna mithaqahum fa nasu xaddan mimma dukkiru bi fa agrayna baynahum aladaawata walbagda gaa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon yor téere bi yàlla joxoon leen benn euh, ab euh, pacte bu doxoon seen digganteeg seen borom diggee boo xam ne doo xam ne seen diggante ak seen borom ci ñu dund téere bi dundee dundal ko saxal ko taxaw ci jëfe ko ñu neenal xam-xam boobu leen yàlla joxoon taxawaluñ ko neenal boobu ñu neenal xam-xam boobu gàttañ li ca loolu jur yàlla subhanahu wa taala saxal def ci seen biir xiiroo ak ŋaayoo xiiroo ak ŋaayoo boobu borom moo xam ni ñu ko tekkee mooy nit ki buy tàmbali di teggi tànkam ci njubu diine di sos ci diine li muy jur mooy xuloo guddeeg bëccëg ak tàqalikoo loolu moo tax borom xam-xam wax ne bidaa ci yi gën a mën a jur xuloo ak xiroog ŋaayoo ak tàqalikoo ci diine bokk na ci bidaa muy sos ci diine saa bu tàmbalee di am ci diine ñuy soppi diine ji dëgg ji fi newoon di ci yokk ay mbir ay xalaatin ay doxalin ay wax yu bees loolu mooy indi xiiroog ŋaayoo bi jàppante bi tàqalikoo bi tàmbali di am loolu mooy fa aghrayna baynahum al adawata wal bagda al adawa wal bagda yenn ci wax dañuy wax ne alxusumaat wal mira fi ddin alxusumaat fi ddin muy xuloo bi ñuy xuloo ci diine ku ne di jéem a layal la nga ne di ko jéem a dëggal di ŋàññi li sa morom nekk loolu bidaa ci ko gën a mën a sos la bokk moo tax limaamu al bi li mu waxoon ci al I'tisaam jëlee ko ci lenn ci ay boromi xam-xam ñu ne bépp masala bu ñuy indi ci diine wute gañ cey wute di jor di jur ak tàqali koo xamal ne bokkul ci diine kon bidaa la nit a ko sos nit a ko sos bu ci bokkoon bu jur bidaa bu fekkee wute nañ ci wute biñ ci war a wute bokkaat yi nga xam dafay sabab ba léegi wute par parloo bi nga xam dafay am diggante nit ñi ñuy parparloo di jëm ci ay kuréel di parparloo di jëm ci ay dëkk di parparloo di jëm ci ay xalaatin ak ay doxalin bépp xeetu parparloo ci parparloo yooyu bu nekkee ci biir jullit ñi ci leen di tàqale la bokk ku ne di parparloo di xëcc jëmale ci sa boor bu fekkente ni jullit ñi utal nañ seen bopp ay couleur utal seen bopp ay féetewaay yu ñuy féetewoo te bokkale wuñ ko te nekkul al alquran ak sunna bi nga xam ne moo leen war a bennale loolu bu boobaa ci leen di tàqale la bokk buñ ko waxee mooy loo xam ne da lay say mbokk jullit mënees naa wax ne xëy na kon néewal féete yi féete yi nga xamante ni dafa lay sorale ak sa mbokk jullit luñ ko gën a néewal moo gën ndax léeg-léeg nit mën na créer ay association ay mouvement ay nangam pour liggéeyal l'islam ci cadre l'islam du indi ay wax yu bees ay pas-pas yu bees ay gisin yu bees yu koy tàqale ak jullit ñi dafa nekk ci benn cadre gis ne bu ko structuré wul du mën a liggéey liggéey ba ànd mu jàppee ko min baabi al masalih moo koy def wal takun yaduuna ila al xayr umma la wax borom moo xam ne li muy tekki mooy ad daawa ila allah mbooloo moo koy def ndax dañuy mottalante pour def ko du liggéeyu benn nit nga nekk ci suufu euh, dëkk boo xam ne njiit bi mbir jullit ñi yitteelu ko du ko taxawee kenn du seetaan masaalix yi muy intérêt jullit ñi di neen dañuy jëm a fexee def ay kuréel yoo xam ne ñooy sàmm masaalix yooyu bu fekkee état bi sàmm ko loolu mooy li war bu fekkee ne def nañ kuréel yooyu kuréel lay doon yoo xam ne dañuy xam ne lii dafa nekk ci ay cadre yoo xam ne day liggéey mais du kuréel buy tàqale ay mbooloo yoo xam ne dañuy daal di daal di wute wute ay doxalin wute ay pas-pas wute ay gisin loolu du du wér bu ca loolu tàmbalee di am loolu dafay daal di nekk yàqute loolu mooy li tax borom xam di di ŋàññi kuréel yi nga xam ne léegi ci monde islamique dañuy tuddee ay nangam mu dem ba nekk ay pensée nekk ay gisin ay doxalin yoo xam ne dañu wute ak seen i mbokku jullit bu ñu waxee nga xam ne waa kër sàngam ñoo wax bu ñu rombee nga xam ne ñii waa kër sàngam loolu wérul mais bu fekkee nit ki dafa nekk ci benn cadre boo xam dafa bëgg liggéey benn liggéey benn mission bu nekk ci kanamam bu bopp féete jullit jàpp ne bu ko structuré wul du antu mu def ko ci anam boobu yamale ko ci loolu lenn wutalew ko ci pas-pas ak ci gisin ak ci doxalin ak ay mbokk jullitam loolu bu boobaa kenn mënu ko askanale ne dañ daan encouragé di jàppalante ak ñu mel noonu ku mel ne Cheikh Abdelaziz bin Baz daana ci wax wax yu bëri ci ay nit yu loolu bidaa bu fekkee yem na ci cadre bu mel noonu kon parparloo yi tamit bu fekkente ni am na ci biir jullit ñi ci leneen di tàqale la bokk mu bokkaat ci tàqale jullit ñi ba mooy jeexitalu gu ñu jeexitaloo ci ay xam-xam ak ay xalaatin yoo xam ne ci ñeneen lay jóge ñu dul jullit ñi ay philosophie ay genre xalaatin ay pensées yoo xamante ni bu wàllasee ci seen biir mooy waral dégg-dégg yi ñu am ci diine dafay daal di waroo loolu mooy li Abdullah ibn mu sa wax Omar fekk Omar dafa toogoon ci jotaay Ali ibn Abi Talib mi ngi fa mu ne xeet bi naka lay tàqalikoowee te seen alxuraan benn la seen yonent benn la diine ji benn la bi mu ci jaaxlee ku nawoon Ibn Abbas la mu woo ko laaj ko Ibn Abbas ñëwee daf ko laaj laaj bi Ibn Abbas ne ko ñun ñi yàlla wàcc ci ñun alxuraan dañ koo gëm jàng ko xam li ko tax a wàcc ñu gëmee ko noonu jëfee ko noonu mu ne dina dem ba jamono ay nit ñëw yoo xam dañuy jàng alxuraan gëm ko di ko jëfe te ñu xam li taxoon alxuraan wàcc li taxoon alxuraan jóg duñ ko xam mooy dégg-dégg bu wér bi ñu ci a am ko xam mu ne bu ko defee ku ne am ci sa dégg-dégg bopp mu ne bu ñu melee noonu dañuy daal di tàqali ko bi mu ko waxee Ali ibn Abi Talib daf koo jàjj ne ko noppil ndax wax ji daf leen a tiital ba Ali daf koo noppiloo ndax wax ji daf leen a tiital ndax xam nañ wax jooju dayoo bi mu am ndax loolu luy am ji la te lu am la ci jamono ji ñu toll ku nekk ak dégg-dégg bi nga am ci alxuraan léeg-léeg sax nit ñi ñuy interpréter alxuraan ci yeneen xalaatin lañ koy teg yoo xam ne bokkul ak ni jullit ñi di xalaate mu bokkaat ci asbaab yi nga xamante ni bi dafay tàqalewaat jullit ñi ba léegi ñii ñëw di woote ne dañuy yeesal ñëw di woote ne da ngay yeesal li ñu tuddee ak tajdid li yonente bi alayhi salatu wasallam wax ne ci boppu siècle bu nekk yàlla dina yabal ci xeet bi ñoo xam ne dañuy yeesal diine ji mën na nekk benn nit comme mën na nekk mbooloo parce que daf ne man yu jaddidu la wax man dina nekk benn dina nekk mbooloo nekk léeg mu nekk mission boo xam ne mbooloo la yàlla di tàggat ñu def ko léeg mu nekk ci loxo kenn wala mu jiite mbooloo ma léeg-léeg ñenn ñi dañuy ñëw yaakaar ne yeesal boobu diine ji delloowaat ko ci cosaan ba mu nekkoon dellowaat nit ñi ci dëgg ja fi newoon gën koo xàll ba nit ñi xamaat ko ñenn ñi dégg-dégg bi ñu ci am mooy sos ay sos yu bees indi ko ne tajdid la alors que tajdid sos yeesal diine ak sos ci diine bokkuñu da ngay gis ku ñëw indi ay ngandi bidaa sos ay mbir yoo xamante ni kenn xamu ko woon newu fi ñu koy tuddee mu jaddit ne mu jaddit loolu du tajdid loolu ci gën a tàqalee ci jullit ñi ci la bokk mooy am ñàkk dégg-dégg bu mucc ci tajdid ñëw rek di woote woon ne tajdid la beneen bi ci ba léegi mooy nit ñi gàttañlu mi ñuy gàttañlu ci bidaa yi nga xam ne dafay tas ci seen ñu koy bañ a xeex di ko seetaan muy màgg di màgg ba xàjjale jullit ñi bidaa du tuuti bidaa bu génn dañ ko war a xeex mu fay mais bu ñu koy xeet naan lii garaawul bàyyi leen ko di ko kii day màgg bidaa yi fi màgg yëpp ba indi jullit ñi ay problème noonu la tàmbalee woon ay wax la woon yu ndaw ay benn nit ñaari nit di ko waxante ci seen biir ñu koy sàgganee di ko xeeb mu dem ba jur alkande ci biir jullit ñi mu bokkaat ci ba léegi yi tax sabab yi nga xam ne dafay tàqalewaat jullit ñi ci ay sabab yi nga xam ne dañ koy wax buñ demee ba bàyyi digle lu baax tere lu bon buñ ko gàtt ñu ci gàttañ loolu suñu biir di gis ñaawteef ak lu bon di ko seetaan yooyu tamit ba léegi ci li indi yàqute lay jur duñu na duñu nasiha nasiha bi ñu war a nasiha du toog di dénoncer mais di nasiha suñuy njiit di jéem a fexe di àggale kaddu dëgg ci ñoom ci façon boo xam ne façon bu xereñ la façon bu tegginu la façon boo xam ne dafay defar mais pas di taxaw rek di dénoncer dénoncer boo xam ne dafay indi jaamaarloo diggante ñiy wax dëgg ak ñoom lii lenn sabab yoo xamante ne dafay war a tàqalikoo jullit ñi lii tax nit ki mu baax mu jaadu mu xam ko mooy bu ñu ko xamee jéem a fexe def suñu kéemtalaay kattan ngir moytandiku ko ngir bañ a nekk sabab ci jullit ñi di tàqalikoo tàqalikoo jullit ñi lu am la comme ni ñu ko waxee ci tàmbali waxtaan bi ku ko xool ci jullit ñi gis ko xam ko ndax bokk na ci mandarga yi mu gën a feeñee seen wuteeg pas-pas yi nga xam ne wute nañ ko li ñuy wax ci yàlla bokkale wuñ ko ni ñu gëmee yàlla bokkale wuñ ko ni ñu toppee yonente bi alayhi salatu wasallam bokkale wuñ ko ni ñuy déggee seen wuñ ko ba ci sax ni ñuy yàlla bokkale wuñ ko jaamu yàlla yi waroon di defandoo defandoo wuñu ko dañ ciy tàqalikoo yooyu yëpp ay mandarga la ci suñu tàqalikoo bokkat ci ba léegi ci yi koy firnde yi firndalaat suñu tàqalikoo mooy bari gi ñu bari amuñu solo bari gi ñu bari te lislaam ñàkk ku ko dimbali mooy bari gu ñu bari lislaam ñàkk ku ko dimbali lislaam nekk ku tumuranke lool li muy tekki mooy tàqalikoo nañ tàqalikoo goo xam ni ni ñu waroon tegee suñu tànk ci dëgg tegee wuñ ko ci noonu leneen li muy jum li muy feeñalaat tamit mooy nooneel gi nga xam dafa nekk ci kenn yéenewul sa moroom jàmm ku ne booy wax sa moroom ŋàññi ngay wax ak wax ju bon ngay wax ci moom loolu li gën a firndeel mooy tàqalikoo bu nekk ci xol yi tàqalikoo xam ne dafa nekk ci xol yi ndax dafay feeñ ci loolu ci fa axrayna baynahum al adawata wal baxda boobu nga xam ne moo nekk ci diggante jullit ñi lenn la ci mandargal seenu tàqalikoo li lenn la ci mandargal seenu tàqalikoo li lenn la ci loo xam ne xëy na dajale nañ ko ci waxu borom xam-xam yi ñun liñ ci def mooy dajale ko ñëw gaaral leen ko ñun ñëpp ñu jëlee ci ay jàng am na leneen loo xam ne xëy na bu fekkee jël nañ comme dañ nekk ci question yi dañuy respecté ni ñuy war a waxtaan wi bu fekkee dem nañ ba ci njeexital mu xaj ñu toftal ko ci mooy lenn ci ay proposition yoo xam ni borom xam ne dañ koy joxe pour buñ ci tënkoo xëy na mu musal ñu ci tàqalikoo muy ay solution lenn ci ay solution ay proposition wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain laa bas waxtu ko ci alamin euh, mbokk yi ñoo ko déggandoo niñ ko waxee ci ndoortali rek tomb bu mel nii dafa am solo am solo goo xam ni euh, jàpp naa ni ñu yàlla wërsëgal xam-xam ci réew mi wala ci àdduna bi yépp suñ si mënoon maanaam waxuma weer sax waaye semaine bu jot ñu ciy waxtaan di fàttali julli ñi lu ci aju defe naa ni dana saafara lu bëree bëree bari ndax booy xool rek daanaka mooy lépp lislaam ndax jullit ñi bu ñu bennoo rek euh, lislaam euh, mel na meloon démb ndax euh, ni ko Cheikh moor waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi fi nekk ak i saxaabaam ñoom amuñu woon jafe-jafe boobu gis ngeen ni mu yare woon saxaaba yi almuhaajiruun wala ansaar ñoom kenn ku nekk waxuma la tàqalikoo ak noonoo di dox sa digganteeg sa mbokkum jullit waaye sax li ñu tudd al isaar maanaam danga daan gis foo gise sa mbokkum jullit da ngay jàpp ni moo la gën ba loo am sax da nga koy bëgg jox ko ko moom mu am yow nga ñàkk loolu bu ñu xoolee bari na lool ci dund saxaaba yi ah, salafu saalix ñu topp ci seen ginnaaw ci saxaaba yi ba nim ko waxee ci ay imaamu Maalik ak ñoo ñëpp noonu lañu daan dundee kon xamal nañu lan mooy tàqalikoo maanaam liftiraq ak lan mooy dëgg-dëgg tàqalikoo euh, te waxtaan wi daanaka xaddis bi ko tënk mooy xaddis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni xeet wi dana tàqalikoo juróom-ñaar fukk ak ñaar wala juróom-ñaar fukk ak ñett waaye mu wax ni ñëpp safara lañ ba mu des benn kuréel kuréel googu mooy alfirqatu naajiya ahlu sunna wal jamaa mu wax ñu ñooñu ñooy ñan te mooy ni ko yonent bi sa alayhi wa sallam firee woon rek waaw euh, ni ko saxaaba yi tamit daan waxe doonte kenn nga te yaa nekk ci dëgg yow yaay mbooloo te mooy nekk ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ak li ci saxaabaam euh, boo ko xoolee al imaamul qurtubi bi muy firi waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu daanaka lam ko tënkee mooy tomb bi rek buñ moyee ci alquran ak sunna ta dégge ko ni ko saxaaba yi dégge woon ni ko salafu saalix dégge woon jàmm rek ay am jullit ñi dañuy bennoo problème bi yépp li ko waral mooy sori suñu diine nangootuñoo jàngi léegi daanaka topp bànneex rek topp bànneex yu bari yi xew yi yépp topp bànneex rek ñàkk jàng wala bu ñuy jàng di sàkku xam-xam ni ko Cheikh Mor waxee duñ dem ca bunt bañ ko war a jaare jaare ko fa dëgg la jumtukaay yu baax la internet cassette yi yooyu yépp ay jumtukaay la jumtukaay baax na waaye itam xam lay cosaan la dëgg dëgg dëgg dëgg nga jaar ca moo ëpp solo moo ëpp solo euh, boo gisee fitna ji xew léegi ay xale yu ndaw yoo xam ne mën ngaa wax dañoo toll ci jàng raam fereguñu xàmmewuñ lu baax ak lu bon jekk-jekk rek déglu ab kaset wala dugg ci internet gis benn mbir ah wala sax boroom xam-xam boo xam ni yow la nga koy laaj wala la nga koy wax ci réew mi nga nekk moom musu faa teg tànkam xamut réalité ba ñuy dund dëgg dëgg dëgg nga wax ko loo xam ni mu wax la ca loo xam ne xëy na dëppawut ak la am ca réew ma nga joggi ca bëgg a tàqale xeet wi mag mi nga xam ni ba mu juddoo ba am juróom benn fukki at juróom ñaar fukki at ci xam-xam la yaru nekk ci di jàng guddeeg bëccëg effort bu ne mu def ko ci xam xàmmee yow xamugoo dara nga jékki-jékki rek ñëw ni xamut dara ah te yow xàmmewoo sax ah mubtadaak xabar ah loolu lu doy waar la ala kulli xaal euh, Cheikh Mor tomb bi moom euh, am na solo te defe naa ni liñ ci wax leer na leer goo xam ni jàpp naa ni danañ ci mën a jariñoo di ñaan ñu mel ni yow rek ak masaayix yi tomb yu mel nii même euh, ñu koy répété lu bëree bëri ndax wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin euh, am na solo am solo goo xam ne defe naa ni buñ ko dee gën a waxtaane di ko gën a leeral rek dana gën a am solo bu ko defee laaj yi moom bëri na waaye waxtu itam daanaka jot na bu ko defee dañ ci tànn yenn nag yi nga xam ni moo aju ci ci tomb bi ñu doon waxtaanee ñu jiital ko ci biir lool it yi nga xam ne dañ koo bind ci langue arabe lañ koy jiital yin bind ci langue tubaab ndax yin bind ci langue arabe moom lañ gën a comprendre xëy na ñu joxaale ko Cheikh Mor mu liiraale ko euh, Cheikh Mor euh, kii dafay laaj ci xaddis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni xeet wi dana tàqalikoo juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar ñépp ñu ngi safara ba mu des benn nee na sikk sàkk nekkut ci ni benn boobu ñooy ahlu sunna wal jamaa léegi li muy laaj ndax euh, ginnaaw xeet yooyu dañuy tàqaliko ay kuréel yu bëree bëri kuréel yooyu euh, yan ak yan la maanaam bu fekkee am na kuréel yoo ci xam yoo ci mën a tudd defe naa ni bu fekkee mm-hmm. comprendre naa laaj bi ni mu tëddee dëgg loolu la ci jublu maanaam kuréel yi nga xam ne daal juyoo nañoo ak firqatu naajiya bu fekkee ñi leen di teg baaraam ba léegi yan ak yan la wala boo xamul yëpp yoo ci xam xëy na mu man koo xam mën leen a moytu. kuréel yooyu nga xam ne moom la yonent bi alayhi salatu wasallam wax ci xadis bi wax na juróom-ñaar fukk la ak ñaar yoo xam ni dañoo sànku euh, daf leen melal maanaam daf leen melal melokaanu réer ak melokaanu xàjjeeku ak euh, teggeeku ci yoonu njub loolu la leen melal léegi bu boobaa loolu la nit di jël def ko règle générale ci lay xool xëy na kuréel yi nga xam ne ñoom lay jàpp ne xëy na war nañ mën a bokk ci juróom-ñaar fukk yooyu ak ñaar Euh, li ma waxoon sànq ci jële ko ci alimaamu bi mu wax ne li gën mooy bañ a gaaw ci di leen tudd di wax ne kuréel sàngam ak sàngam juróom-ñaar fukk yooyu bokk man loolu moo a gaawantu di ko def ndax na nooneel lay jur ba pare itam mu ne mbir la moo xam ne nit xëy na dafay laaj mu ko tegtal bu firnde bu leer ne ñii ci lañ ndax mu ne sharia moom bi muy wax dafa rek jox ay melokaan dafa jox ay melokaan mais leer na ne ñi mu doon wax melokaan yooyu ñii la mu ne loolu moom dafa laaj nit ki am ci firnde Cheikhul Islam ne gaa yi wax nañ ci seen i téere waaye dafa laaj def ndànk ndax nit ki waru cee wax te ko ci xam-xam bu leer ndax nit yàlla dafa xaraamal wax ci diine loo xam ne tegu ko ci xam-xam ba tax na borom xam yi ci waxoon bu njëkk ñenn ñi dañuy tudd juróom-benn ne ñooy euh, kuréel yi ñenn ñi tudd ñeent ibnu Mubarak bi ñu waxoon rahimahullah ñeent la wax dafa wax al chia wax al xawarij wax al murjia wax al qadariya al chia mooy kuréel yi nga xam ne dañoo génnoon njub li nga xam ne moom la ahlu sunna nekk di woote woo bëgg ahlul bayt ak ali ibn abi talib daanaka sax ali ak njabootu ali lañu tudde ñoom ahlul bayt wala boog ñenn ci njabootu ali di wax ne ñoom la ñuy jàppale nit ñi dañ leen a jël seen àq di wane ne dañoo bëgg a nangu àq boobu delloo leen ko ñu leen di tuddee firaqu chia ñu nekk ay kuréel yu mag a mag li ciy cosaan mooy ak rafida lañ leen di tuddee ñu waroo ak saxaaba yi am ay pas-pas yoo dañ koy wax xaajale ko waat nekk ay pàcc dégg nga li ci ibnu mubarak wax nee na xaajale ko ñaar fukki kuréel ak ginnaaw loolu al murji'a bu fekkee dañu wax jóge ci ñoom ñu dem ci alxawaarij alxawaarij ay kuréel yu bari lañu ginnaaw bi dañoo tàqalikoo waat ñoom tamit di leen gënoon a mooy takfir bi ñu doon takfir jullit ñi di leen yéefare di leen génne ci lislaam di wane ne nit bu defee bàkkaar bu mag da koy génne ci lislaam ba pare day sax ci safara ñoom ñu nekkoon ay kuréel yu bari kuréel yooyu xëy na ñi si gënoon siiw mooy al azariqa nga xamante ne ñoon topp Naafi ibn Azraq Naafi' ibnu Azraq boobu daanaka ci moom kuréel yi jukkoo ci moom ñoom ñoo ci des ndax kuréel bi nga xam ne moo ci gën a siiw ci des mooy mais day des ba ay kuréel yoo xam dañuy askanoo ci kuréel yooyu mais ñoom ndayu kuréel yi lañ doon wax kuréel yooyu am na yeneen kuréel yu ci ci bànqaasoo bu dee al rafida ay kuréel yu bari ñoo ci bànqaasoo al ismailiya bi ma tuddoon sànq dañ topp Muhammad ibn Ismail ci jamono euh, Jaafar as-Sadiq bi nga xamante ne bii benn ci doomam yi faatu na di ko waroon doon ñu daal di bëgg jël mbir mi yóbbu ko ci Moussa al-Kazim gaa yi bañ ne du dem ci Moussa al-Kazim dafay dem ci doom doomu doomu Jaafar as-Sadiq bi nga xamante ne bi mooy Ismaïl Ismaïl boobu comme dafa faatu ci dundu baayam ñu ne ba léegi ci moom la imaam bi di des mooy doon seen imaam bu fi nekkulee doomu moo ko di Muhammad ibn Ismaïl ñooñu dem topp ko ñooñu nekk kuréel boo xam ne baatini yeey baatini yoon yi ci ñoom lañ bànqaasoo al ismailiya al araxaaniya maanaam ay kuréel yoo xamante ne alxashaashoon yu nekkoon ci yaman ñu leen tuddee les assassins ay kuréel yu baree baree baree baree bare ci ñooñu lañ bànqaasoo al murji'a mooy ñi nga xam ne ñoo doon wax ne ngëm yàlla jëf bokk ci lu pas-pas la bu nit di fas ci xolam bu ko dëgëree jeex na ñooñu tamit ay dëgëre lañ tolloowuñ am nañu tuddee murji'a ak fuqaha yi nekkoon Kuufa ñooñu xëy na jeexitalu nañ ci mais bokkuñ ci ay kuréel lañ tamit ala kulli xaal ñooñu mu wax di juróom ñeent ñooñu buñ leen ci woon wax ne yenn kuréel loolu boobu waa lu ñu mën la mais man du ma mën a wax li ma wax sànq di la ko ci borom moo xam ni ci moytandiku di leen teg baaraam ba noppi di wëlbatiku di limaat naan ay kuréel kuréel sàngam kuréel sàngam kuréel sàngam loolu du ma ko mën mais li may mën mooy delloowaat la ci ñeent yooyu nga xam ni borom moo xam yi wax nañ ko mën nañ wax na yeneen kuréel yi génnaat yépp ci diggante bi la génnee ndax xattal al mu'tazila dafa nekk njaxas bu jógee ci diggante kuréel yooyu muy ñeenti kuréel yooyu al qadariya ak al xawaarij ci kuréel yooyu wallahu macha allah loolu tam day dellu ci li ñu waxoon rek moom daal li ñu war a xërtawoo mooy ñu dem jàng suñ diine ku jàng ba xam-xàmmee daal yu bëree bëri da ko xam maanaam boo xàmmee lu weex ak lu ñuul foo gisee lu ñuul danga xam ne lii bokkut ak lu weex kon daal góor góor lu jàng suñ diine xam-xàmmee te jàng ko fañ ko war a jànge kii dafay laaj Cheikh Mor maanaam ana ban tont bu gën a matale te gën rafet boo xam ne mën nañ koo tontu ci di wax baatub ahlu sunna jamaa ñu ni loolu bidaa la lu ñu sos la ci ci diine maanaam ñooñu ban tontu lañ leen war a tontu. sos du du ndax euh, du caagante ni lépp lu lu gaar rek loo xam ne amul dañuy wax ne bidaa la dégg-dégg boobu kenn du ko déggee bidaa bidaa bu bu mbir gaaree da ngay xam da ngay xool li ko tax a gaar. ndax yonente bi alayhi salatu wasallam bi mu fiy jóg alxuraan kenn dajalew ko saxaaba yi dëppoo ci dajale ko dëppoo bi ñu dëppoo firnde la ci ne kon ko war a dajale ndax yàlla subhanahu wa taala moo digoon ne dina ko dajale dëppoo bi ñu ci dëppoo ijmaa boobu xujja la ijmaa saxaaba xujja la ab lay la firnde la kenn du ko taxe bidaa day am ay mbir yoo xam dafay am ci jamono ndax dafa am lu ko waral war a mën a nekk borom xam ne bi ñuy ràññee wala boog ci jamono ba ñuy ràññee ko di tuddee seen bopp ahlu sunna wal jamaa dafa am sabab yu ko waral ndax li fi nekkoon mooy wax ne muslim ne ki muslim la mais jëfandikoo benn tur ngir ràññat kenn ci kenn loolu ne woon na fi mais newul woon ci anamu pas-pas ndax daan nañu wax almuhaajiruun di wax al ansaar di wax ahlu badr di wax ahlu euh, sulxul xudaybiya yu mel noonu bay ahlu bay'ati ridwaan saxaaba yi dañ leen daan def ay kuréel mais daawuloon nag ay kuréelu pas-pas ay kuréelu tolluwaay la woon ci lislaam léegi bi ñu demee ba jamono ñu gis ne ay kuréel ñi ngi jóg di sànq nit ñi li wax ay wax yoo xam ne dafay réeral jullit ñi di tuddee seen bopp ay jullit bu ñu fa nekkee naan muslim muslim muslim kenn du mën a xàmmet ne ki nekk ci kuréel gi ak ki nekk ci dëgg léegi turu ahlu sunnati wal bi melokaan la gën a doon ko tur jamono yooyu bu koy jëfandikoo melokaan lañ ci gënoon jublu melal seen bopp melokaan bu leen di tàqatle di leen ràññatle ak ñay wax la wuteeg loola lañ ci gënoon jublu que di tuddee seen bopp rek tur pour rek tudd nga xam ne doo xool bi lan la am dëgg mais yow da nga bëgg rek tudd lu nit ko tuddul ba ràññee sa bopp ak moom loolu léegi jamono yi moo fi nekk da ngay gis tur yu kuréel yoo xam tur yañ koy tuddee boo laajoon ñi si nekk tur muy tekki sax mënu la ko wax nga xam ni du melokaan bu muy melal boppam mais tur la boo xam ni ab couleur la bu mu couleur boppam ngir wuute ak ña ca des alors que ahlu sunnati jamono yooyu bañ koy wax dañ ci namm mooy wane ñoom ni ñu mel ne ñoom dañoo mooy ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalam te tàqalikoo wuñu na ko ñeneen ñi defee kon buñu ne dañoo mooy ci sunna yonente bi alayhi salatu salaam ña ngay bëgg a ràññat la seen bopp ak ña nga xam ne dañoo wàcc sunna ci seen pas-pas ci seen doxalin tàqalikoowu nekkuñ ci ay bidaa yu leen di tàqale kon loolu melokaan lañ ci jublu woon boo xam ni pour melal sa bopp melokaan bu lay ràññatle ak ñi sànku ba dëgg ak neen bañ a jaxasoo loolu lañ ci jublu woon mais jublu woon ci tuddee ay tur yoo xam ne ay par par loolu lañ ci jublu ak sos ci diine loo xamante ne nekkul woon wallahu alam macha allah lii laaj la boo xam ni suñ mbokk yi ñuy topp diñ déglu waxtaan wi ci internet moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew euh, ñoo koy laaj kii dafay laaj ni al imaam ali radiallahu anhu euh, ba nga xamee ni xëy na ñi ñuy tudde alxawaarij maanaam seen njiit ba mu ko jàppee maanaam nan la def ak moom daf koo rey wala daf koo tëj نعم علي بن Abi Talib rahimahullah radiyallahu anhu en radiyallahu anhu la ñuy wax loolu mooy doxalin ahlu sunnati wal jamaa bi nga xamante ni xeex na ak xawaarij li ñu ci wax mooy ne rey na ci ñoom ñu bari fi'lan rey na leen rey gim leen rey mooy ne ñi nga xamante ne bi ci ahlul bax yi lañ leen di tuddee dañoo génn mbooloo jullit ñi génn seen njiit bi nga xam ne moom la jullit ñi jaayoonteel ñooñu bu ñu leen jéemee delloo ci dëgg ñu lànk ñu mën a dellu ci dëgg lu dul ak jaasi dañuy jaamaarloo ak ñoom dañ leen di ndax ñooñ booba ahlu qitaal la ñuy doon dañ leen di rey ndaxte seen bew googu ak seen lu googu deesu ko mën a damm li fekk jëfandikoo wu ñu gànnaay loolu ñooñ lañ tuddee ahlul bax yi kuréel lay doon boo xam ne sax duñ leen génn ci lislaam xëy na takfiir leen ne ay yéefar lañ waaye dañuy jëflante ak ñoom comme ni ñuy jaamaarloo ak yéefar yi ci sañu tuur seen deret sañu tuur seen deret googu mooy seen bew googu ñu nekkee ñu damm ko mooy lu mel ne ñuy def soulèvement di ko jëmale ci njiitu ñi nga xam ne dañoo ak moom loolu moo tax Ali ibn Abi Talib amoon sañ-sañu dem faat leen dem rey leen feex leen rey na si ñoom ay ay junni junni yoo xamante ni kenn xamul nu mu toll waaye rey googa nekkul ne daf leen taxe woon daf leen atte woon ay yéefar daf leen atte woon ay yéefar ñi nga xamante ni bi xëy na ñoom la rey rey gu tax ñi mën a wax ne atte su ñoom kéeféer moo tax mu def ko mooy ñu leen woote woo ak yàllaam ñi jàkkaarloon ak moom naan ko anta huwa xaqan yow yaay moom mu ne leen lan li ngeen di wax ni ñu ne ko yow yaay yàlla ñooñu daf leen reylu woon ñenn ci ñoom daf leen a lakk daf leen taal ndax borom xam-xam yi dañ leen di xàjjale ñetti xaaj ñetti xaaj yi ñu xàjjale mooy ñi nga xamante ni bi dañuy jël ali di ko gënale ci kaw saxaaba yépp ñooñu daf leen doon dóorlu ñi nga xamante ni bi dañ daan saaga ak di ŋàññi abu bakar ak omar ak osman daf leen daan rey ñi nga xamante ni bi dañ ko daan yëkkati ba koy yàllaal ñu leen tuddee alxaaliya ndax dafa am al mufaddila as sababa ak al xaaliya al xaaliya boobu nga xam ne ñoo ko daan yàllaal ñooñu la jëloon lakk leen ba ibnu abbas ne man day su doon man la dinaa leen rey waaye duma leen lakk bi mu leen lakkee loolu gën leen a yokk réer ñu ne ko gën nañoo xam ne yaay yàlla ndax yàlla rek mooy lakkaate macha allah kii dafay laaj ni ndax euh, kuréel yi nga xam ne moom la ñuy tuddee almutasawifun ndax ñooñu xëy na maanaam ñu mel ni xëy na ñu nekk ci suñu réew mii di Sénégal ndax mën nañ leen a dogal ngànt ndax ñoom mën naa am ci kuréel yi ñu nekk eh, yu bëree bëri xëy na leen ko yóbbee ci seeni jamono eh, tumuranke gu lislaam tumuranke woon ak noonu lislaam yi tubaab yi niñ leen waree woon ba nga xam ne mënuñoo génn dem sàkku ci xam-xam téerab xam-xam sax buñ ko musaana sàkku ci biir mu ñëw tubaab yi dañ ciy teg loxo sonal leen nga xam leen ci seenu farlu ci seenu góorgóorlu ci lañ amee li ñu amee maanaam lu wër kenn loo xam ni kon ni mu yombe léegi daal ni mu wéree léegi nga xam ni mën a xàmmee xaddis bu wér bu wéru tëg xam liy dëgg ak liy caaxaan ni mu yombe léegi ak ni mu leere jamono yooyee leerewu ko woon ndax ñooñu mën nañ leen a dogal ngànt wala déet allahu alamu bi amrihim allahu alam bi amrihim yàlla moo xam seen mbir ñun li ñuy àtte mooy ay jëf àttewuñu ay nit nit ki sañ na gis réer ne lii réer la gis lu waroo ak sunna ne lii waroo na ak alxuraan ak sunna bu nattee ci nattuwaayu alxuraan ak sunna bu wér mu des nag ne nit ñi ginnaaw loola àtte leen ak xool condition yi war a daje ci ñoom yépp ba tax ñu àtte leen àtte ak réer loolu ndax dajale ak ci ñoom ak déet ka nga fekkentelul xëy na kooku mën nga ne allahu alam ndax li tax mooy boo fekkoon ay mag magi ahli sunna yu fi nekkoon comme ni ñu atte woon jeex Jahm ibn Safwan ca jamono ba muy sànq nit ñi di wax ak réeram ni ñu atte woon diw atte diw ci jamono ay magi ahli sunna yu mag nekkoon fi ci jamono jooju jaamaarloo ak ñoom ba xam nit ñi dañoo réer ñu atte seenu réer ñu ñu gëm loola bu fekkonte ni ñi ñuy junj nii itam amoon na ci jamono jooju ñu amoon ak ñoom taxawaay booba bu boobaa ñun buñ ñëwee mën nañoo sukkandiku ci loolu atte leen mais bu fekkente nit ki dafa ñëw fekkul fi lenn ci jeexital lu koy wan loola lu dul rek lu muy dégg lu ñu leen di askanale ci ay mbir lu mu mën mooy atte mbir yooya mais ñoom seeni i jëmm bu boobaa atte leen nit ki dina ci xaw a def ndànk tuuti mu des nag ne bu boobaa ñàkk a wax ne diw en personne dama koy atte taxe ko nangam loolu tekkiwul benn yoon ne bu boobaa kon du ma atte liñ koy askanele ci ay wax ne du jumte ay wax moom ak jëf ak kuñ ko mën a askanele kum mën a doon bu fekkee njumte la dañuy leeral ne njumte la mooy li alimaam Malik daan wax naan ma minna min ahadin illa wa huwa raddun wa mardudun alayhi illa saaxiba hada alqabr amul kenn si ñun lu dul ne dina delloo ay wax ñu delloo ko ay waxam lu dul borom bàmmeel bee di yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu ku mu mën a doon loolu day am ci yow léegi nag mu des bu ñu la bëggee atteloo ay nit bu dee nit ñi ci boppam loolu boobaa day jafe ndax atte nit ahlu sunna dañ ciy teey dafa am ay yu bëri ñu ciy xool ci ay conditions yi ci war a daje mais nag seen ñàkk attey nit du ter ci benn yoon ne ginnaaw bi wax yi ñu fi bàyyi ay nit di ko topp ñu taxawal ay firnde yu wane ne waxte wax ye njuumte la nit ña continuer di ko topp ñu atte ci mbooloo yooyu nañ dañu lañu nekk réer la ñaari mbir la yoo xamante ni bokkul wallahu alam léegi pour laaju borom français kii la daawa bi war a def ci léeg-léeg xëy na yenn secte yi fi nekk ay secte la jëfandikoo xëy na li mu namm ay tarixaat yenn yoon yi nga xam ne dañu fi nekk di woote ci ay mbir mu ne lan la ci daawa bi war a def ndax dañoo war a liggéey rek tasaaroo ni ku nekk liggéey ci sa côté pour wala dañu war a jaamaarloo ak ñoom ndax mu ne li mu li mu foog moom mooy daal dafa mel ne daaw bi dafa des ci diggante ñi nga xam ne ñoo koy dund àggale woñ ko fi ñu ko war a àggale ala kulli xaal loolu xëy na li muy laaj mooy nit ki waxe wax xalaatam ndax loolu xëy na yëg-yëg bu mu am la moom mais man li ma jàpp mooy ne insha allahu taala sunna mi ngi ras ci dëkk bi man loolu laa jàpp te ku xool dëkk bi ni mu demee ak nit ñi ni ñuy ni ñuy jégee léegi sunnit yi ak ni sunnit yi di jeextale ci dëkk bi dem ba léegi sax langage u nit ñi sax seen yi wax sax léegi da ngay sentir ay baat yoo xam ne sunnit yi ñoo daan jëfandikoo da gis nit ñi di ko loolu day wane ngi am influence ci léegi nit ñi bu njëkkoon da daan toog di wax lu la neex ay xar baax lu la neex nit ñi di fettesu léegi ku ciy wax dangay ngay commencé naan qaala allah qaala rasulullah xadis bi mi ngi ci saxiixul ak yooyu te loolu nekkuloon seen méthode waaw toog di def ay débat di lay di indi ay aay di indi ay xadis loolu nekkuloon seen méthode da ngay gëm gëm nga boo gëmul gëmuloo xelu ñëw mbaa xelu ñëw rek loolu lañ daan wax waaye léegi gars yi ñu ngi commencé di maanaam fexlan daawatu sunna ci boppam mi ngi sax di am doole di tas xëy na nañ gën a góor ko def suñ kémtalaay kàttan ku nekk li si sa cër nga nga nga def ko taxaw ci loo mën a baaxe nit ñi ci njub ak ci ci ci ci dëgg nga baaxe leen ko am yërmande ci nit ñi bañ leen a mais nga yërëm leen nit ñi nga bañ leen a jéppi mais nga yërëm leen beneen laaj bi ci des kii dafay wax ne euh, kuréel yi nga xam ne wax nañ ko ci juif yi wax ko ci chrétiens yi bu dee juif yi 71 bu dee chrétiens yi 72 bu dee jullit ñi 73 parti mu ne kuréel yooyu ndax dañuy wax ne dañuy tegaloo noonu toxtaloo mën na dañuy wax ne ci jamono seen tàqalikoo googu ndax dafa am ci jamono ginnaaw bi nga xamante ni Moussa ak Isa jàll nañ ak bi yonent bi alayhi salatu wasallam jàllee maanaam xëy na boo comprendre laajam bi Moussa demee ñu tàqalikoo soixante douze soixante onze parti bi ñeeti bi Isa demee ñu tàqalikoo soixante douze parti ñun bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam demee ñu tàqalikoo soixante treize parti tàqalikoo gi yàlla moo xam ci période bi ni muy amee périodiquement mais li ñu xam mooy dafa am ay bànqaas yoo xam ne fa lay dafa am ay cosaan yoo xam ne fa lay bànqaasoo fa lay jóge ndey yooyu nga xam ne mooy jur tàqalikoo gi mooy comme li Abdullah ibn Mubarak junjoon ci ñeenti kuréel yooyu boo delloo ci diine ju nekk seen 73 wala 71 wala 72 parti yooya da nga koy delloo ci ay nday yoo xam ne ñoo ko jur ndey yooya nag junju leen teg leen baaraam léeg-léeg dafay jafe mais li ñu xam ba gëm ko wér mooy ne dañ tàqalikoo ci ay wax ak ay pas-pas yoo xam ne yu yaatu la yu mën a nekk ay nday yoo xam ne yeneen da cee bànqaasoo dinañ dem àgg ca kuréel lim bi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasallam wax na ko loolu bu boobaa lañu ci mën a gëm mu des nag bu boobaa euh, mbir ma naka lay amee périodiquement ndax fokk mu am ci yahudi ak nasaraan yi laata Muhammad di ñëw sallallahu alayhi wa sallam wala ndax tàqalikoo gi day continuer ci lim booba ginnaaw bu mu ñëwee sax ba léegi yàlla moo xam ci jamono ji nga xamante ni ci lay amee al ilmu inda allah ki dafay laaj ne lan mooy attew koo xam ne day wax ne moom tënkuwul ci sharia maanaam sharia tënk ko loolu wax la joo xamante ni li ciy cosaan mooy kéefér la ndax nit ki saa bu tinkeekoo ci sharia génn ci sharia mooy génn ci lislaam ndax sharia mooy mooy mooy mooy mooy lislaam sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayk summa jacalnaaka ala shariatin min al amri fattabicaha wala tattabic ahwa alladina laa yaclamuun yonent bi alayhi salatu wasalam diine jëm yor sharia la tudd yàlla da ko koo tëralalal ndax sharia mooy li nga xam ne dañ la koo tëral leeral la ko ak sharia mooy lu leer al bayaan al wuduux loolu ko yàlla leeral la tëral ko lenn ko na nga ko topp yorul leneen lu dul loolu loolu rek mooy diine loolu nag ci jëmmi boppam nga jël ko xajjale ko defaat ko ñaari xaaj lenn li nga tuddee ko sharia li ci des nga tuddee ko beneen tur di ko tuddee xaqiqa wala ay mbóot wala lu sew loolu du dara loolu amul loolu bu boobaa bokkul ci diine diine lépp mooy lu yonente bi alayhi salatu wasallam jàngale xamle ko ñu koy tuddee sharia amul beneen xaaj bu ci nekk bu ñuy tuddee leneen bu dee al bi mu waxoon ci xadisu jibril loolu benn taxawaay la tolluwaay la ci tolluwaayu sharia bi ko yàlla jox muy al ihsaan jaamu yàlla gi ngay def ci biir sharia bi nga rafetal ko rafetal gu mel ne da ngay gis sa borom mais nekkul ne ihsaan dafa nekkat beneen mbir bu génn ak sharia nit di ca ne di ca jëf loo xam ne dafa waroo ak li nga xam ne mooy li yàlla jox yonente bi alayhi salatu wasalaam bu dee loolu am na lu tax moom newu ci woon moom dafa dund ba faatu ci ci bi mu jàngal ni la nekkoon saxaaba kenn ci ñoom musul dem ba jamono mu ne damay génn sharia li ñu sukkandikoo mooy waabudu rabbaka xatta yatika yatiyaka al yaqin jaamul sa borom ba yaqin dikkal la loolu mooy tënkul ci sharia boo demee ba àgg ba gis ba xam dëgg-dëgg mbir yi bu la neexee mën ngaa tënkee ko ci sharia loolu xeyru saxiix yaqin foofu li muy tekki mooy faatu mooy nit ki day nekk ci faatu jaamu yàlla ba faatu ndax jaamu yàlla moo tax yàlla yàlla sàkku la yàlla bind la ndax loolu boo ko déggee noonu li muy tekki kon mooy boo demee ba àgg dootoo jaamu yàlla dootoo jaamu yàlla loolu boo jaamootul yàlla yéefar ngay doon ñuy sukkandikuwaat ci xadisu abu hurayra wala asar bi abu hurayra wax ne ñaari ndabi xam-xam laa jëlee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam benn bi moom laa leen jàngal waxal leen ko ci des su ma leen ngeen dagg sama buli ñu ne kon li muy tekki mooy yonent bi alayhi salatu wasallam ñaati ñaari xam-xam la yoroon benn bi mu jox ko nit ñi sama classe bi ñu xam ko bi ci des mu nëbb ko gaa yi àgg yi ñoo see mën a àgg loolu mooy xaqiqa mooy dëgg-dëgg mbir mi tàqale boobu diine tàqale diine def ko loo xam ne am pëpp la rek mu nekk ci kaw ñi xamul dara ñoo ciy sonn la nekk ca gannaaw ko ci àgg wala neexee nga bàyyi li tàqale boobu mi ngi jóge ci philosophie philosophie ñoo doon wax loolu ci diine yi nga xam ne yonent yi dañ koo indi ne ay mbir la yoo xam ne coonaa ca ne ak tënk ñi nga xam ne seen xam-xam ngir ñu mën a tënku waaye am na leneen lu nekk ci ginnaaw loolu lox mooy réalité bi ku ko xam bu la neexee mën nga bañ a tënku ci dina yonent yi ñii tamit loolu lañ gëm dañ jàpp ne li yonent yi indi jàngale ko son sonn ci nekk ci ci jàngale ba jóge fi ne ci loolu mbir la yoo xam ne ay jumtuwaay la nii rek ci kaw mais ku dem ba àgg bu la neexee mën nga cee bañ a tënku dootoo julli di naan sàngara def bu ñu waxee nga ni àgg nga foo xam ne nit ñi àgguñu fa li ñu nekk xamuloo ko loolu xeyru saxiix Abu Hurayra lam doon wax namu ci benn yoon xam bu ñuy nëbb saxaaba yi lu leen yonente bi alayhi salatu salaam jox ci xam-xam joxe nañ ko Muaad mi nga xam ni daf ko tere woon sax ab xadis ne ko bul ko wax nit ñi ndax boo leen ko waxee dañuy nasax dañuy yàccaaral mooy xadisu xaqullahi ala al ibad ak xaqul ibad ala allah Muaad laata muy faatu da koo jàngale ndax bañ a yóbbaale xam-xam kon amuñu lu ñu doon nëbb Abu Hurayra lim ci namoon mooy ci jamonoom bi fitna di jug ci jullit ñi di juge ci seeni njiit ñu leen di sonal di leen faagaagal da cee xam ci ay xadis loo xam ni nee na bu ko nettali woon xadis yi nettali xew-xew yooyu di wax ne doon na ami ji nit ñi dañ koy rey ndax fitna boobu boobaa dina dal ci kawam moo tax bi nga xamante ni dem nañ ba jamono ñu rey seen xalifa di Ousmane ibn Affan daaneel kaaba gi jamono Abdullah ibn Zubayr li doxoon digganteem ak xajaaj ba xajaaj faat ko ci jamono Abdul Malik Abdullah ibn Omar daf ne bu leen Abu Hurayra waxoon di ngeen rey seen xalifa mabbal kaaba gi da ngeen na ko waxoo dëgg kon dafay mokkaloon ci xam-xam boobu lu bari ci xam-xami fitna ak yi xew yi ci seen jamono jooja loo xam ne nee na bu ko nettali woon nit ñi faat ko loolu la Abu Hurayra junjoon am na ci lu bari daf ko daan mel ne ko koy nëbb daaw ko nangu di tas ndax jamonoy fitna la woon mais nekkul benn yoon xam-xam bu muy nëbb ñu naan loolu xaqiqa la ak nangam la yooyu ay wax la rek li ñuy tënk mooy diine ji yàlla yàlla subhanahu wa taala jox yonente bi alayhi salatu wasalaam yar ci suñu bakkan jàng alquran ak sunna ji mu wér ñu jëfe ko ku nekk ci loolu yaa ngi ci siraatal mustaqim wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Cheikh Omar kon de xam naa kon ñu yemale foofu laaj rek laaj eh, waaw xam naa laaj yi moom bëri na lool te defe naa yu ci ëpp sax ci waxtaan wi la tënku am na ay benn benn rek yoo xam ne génn na mawduu bi waaye kon dañ koy yemale fii euh, bu ko defee ñu jox ko rek mu tëj ci xëy na loo xam ni dana mën a gàtt te tënk mu doon wax yépp nga xam ni xëy na euh, ñi seen xel yaatuwut ba mel ni man ba mu commencé wax ba léegi xëy na lépp ñu jàpp ko mën cee jaaraat dana jafe mais mën na koo tënk rek résumé ko tënk ko ci kàddu yi gàtt rek yoo xam ne danañ ko mën a jàpp bu ko defee surtout ci wàllu saafara ji li ñu tudde al ilaaj euh, boo mënee gën a leeral ci côté boobu balaa booba itam bala ñoo yëkk jotaay bi ñu di leen yëgal ni samedi bii di ñëw Cheikh Ibrahim Khalil Lo mooy def waxtaan incha allah ci at tawassul wal wasila euh, def naa boobi tomb bu am solo la ñu bàyyi ko xel boo ko defee liñ fàttali woon ci ndoortali ci lu waaye mën a def ci iftaaru saaim bi jaatam mu nga ne ca bunt ba ñu jox ko ko incha allah kon Cheikh Mor bismillah mooy sant yàlla subhanahu wa taala ñaan mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla def weer wi mu nekk weeru yiw ak weeru yërmande def ko te mu nekk weeru njëggal li ñuy jeexalee mooy li ñu waxoon ci bi ñuy jox Cheikh Mor kàddu gi mooy xëy na comme wax na ay problème junj leen ci ay solution ndax yonente bi alayhi salatu daf doon wax naan tadaawaw ya ibadallah inna allaha lam yunzil daan illa anzala maahu dawaan alimahu man alima jahilahu man jahila doon na wax ne dee leen faju yéen jaamu yàlla yi ndax yàlla wul benn feebar lu dul wàcceel na ko lu koy faj lu koy saafara ku ko xam xam nga ko ku ko réere réere nga ko kon feebar bu root moo xam feebar yi bakkan la wala feebar yi jëmm la di yaram yàlla wàcceel na ko loo xam ne moo koy saafara comme ci tàqalikoo lañ doon wax tàqalikoo googu problème la yàqute la goo xam ni warula am waaye lu am la luy am la léegi jubluwaay bi ak njariñ li ñuy taataan ak di ko séntu ci waxtaan wi mooy xam yan yoon lañ mën a jaar ba kenn ku nekk ci ñun bañ a nekk sabab buy tax xeet wi di tàqalikoo wala nga góor góorgóorlu ci luy teggil xeet wi tàqalikoo li kenn ci borom xam-xam yi doon wax naan ma minkum min ahadin illa wa huwa ala sagratin min sugari l islam fa man istataa an laa yuta lislaam min indihi falyafal kenn ku nekk ci ñun dafa taxaw ci benn bën bën ci miiru lislaam dafa fatt benn bën bën ci miiru mu ne bu ku ku nekk ci mu ne góorgóorlu ba bu ñuy yàq lislaam bañ a jaar ci bën bën bi mu fatt na ko def kon kenn ku nekk ci dafa war a fatt benn bën bën ci miiru lislaam bi nga xam ne mooy aar lislaam yi nga xamante ni cheikh benn cheikh bu benn cheikh bu bu ci ñu mujjee bind ci al iftiraq ak tàqalikoo ak yi koy waral wax itam ci yi nga xam ne war na mën a nekk ay solution yu ñu mën a sukkandiku ngir moytandiku ko muy Cheikh Nasr al aql Cheikh Nasr Abdul Karim al aql daf ci def benn mu rekkere bu am solo solution yi mu ci wax yu yu ama am solo la bu njëkk bi mu ci wax mooy al-i'tisam bil kitab wa sunna mooy mooy ci alquran ak sunna tënku ci alquran ak sunna li yàlla waxoon ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu li ñu ciy déggee kon mooy al-i'tisam bi hablillahi yunaafi al-iftiraq yunaafi tafarruq moo ne mooy ci téere yàlla bi ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam te foog ñaar yooyu ànd ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ne woon walan yatafarraqa xatta yarida alayya alxawd ñoom ñaar du ñu tàqali ko mukk ba baa ñu may fekk ji ëllëg sama taxawaay ba may taxaw ci xawdu ba kon dañuy ànd ñoom ñaar ndax deesul mën a jëfe alquran te tënkuwuñ ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim tënku ci alquran ak sunna li ñu njëkk ci moytandikul xeet wi ak tàqalikoo saa bu ñu teggee suñu tànk wala ñu gàttandi ci loolu wala tënkuwin ba nekk lu xajam loolu mooy jur ak tàqalikoo loolu mooy règle générale bi yi ci des yu sew sewaan la tudd yoo xam ne benn bi bi ci njëkk ci yu sew sewaan yi nga xam ne kenn ku nekk suñu daf koy jëmmal ci boppam mooy xam njubu yonante bi alayhi salatu wasalam góor góorgóorlu ci sa kémtalaay kàttan mooy ci njubu yonante bi alayhi salatu wasalam njub bi mu nekkoon d'une manière générale ci bunt bu nekk nga xam ko ak di yoon wi nga xam ne mag ñi jàngoon ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak ñi jàngee ci ñoom ñu doon tuddee as salafu saalih mooy njiit yu baax yi fi woon ci lislaam yàlla subhanahu wa taala taggal leen boppam yonente bi alayhi salatu wasalaam tagg leen wax seen tolluwaay ci lislaam nga delluwaat seen doxalin tënku ca ndax ñoom ñoo gën a dégg diine keneen ko dul ñoom ndax ñoom la yonente bi alayhi salatu boppam jàngalal leen boppam li ñu am dégg-dégg ci diine xam ci jubluwaayu yàlla ak jubluwaayu yonente bi alayhi salatu wasalaam keneen ko dul ñoom du ko mën a xamee noonu loolu jàll na léegi ci asar bi nga xam ne Ibn Abbas waxoon na ko ci buñ demee ba nit ñi di jàng alquran te dégg-dégg bañ ca waroon am amatuñ ko ca ku ne di ko déggee ni nga déggee loolu ñu liñ la jullit ñi ci la bokk mu bokkat ci sabab yooyu nga xam ne ku ne war na cee góorgóorlu ba léegi mooy góorlu ci jàng xam-xam sàkkoo ko ci loxoy borom xam-xam yi yaru tàggatu ci xam-xam ci loxoy borom xam-xam yi pas ut xam-xam rek pas ut savoir bi rek pas cultivé wu rek sa yéene nekk rek naa cultivé wu naa am culture naa am savoir loolu bu demee ba nekk suñu yéene ak suñu mbébét ci xam-xam ci la problème yi di bari mais bu fekkente ni suñu jubluwaay ci xam-xam mooy tàggatu ci ak yaru ci dem jële ji ko ca ña nga xam ne dañ koy séntu ci ñoom gis ne condition yi war a tax ñu jële ci ñoom daje na ci ñoom loolu buñ ci delluwaatee ci liñ gën a mën a sàmm ba tax duñ tàqalikoo loolu bokk na ci mu waxaat tamit ba léegi ci yooyu al iltifaat xawla al ulama ar rabbaniyin borom xam yu mag yi nga xam ne yàlla jox na leen cër ci jox leen xam-xam ci diine ak benn dayo bi ci diine ñu jege leen jege leen di jariñ seen xam-xam di jariñ seen yar di jariñu ci lu bari ci loo xamante ne ay njumte ñu war mun a tàbbi ñu ñu koy xànqal ndax gis-gis bi leen di yàlla di defal ak dal gi yàlla di def ci ñoom rëb-rëb yi nekk ci sama classe bi ak tàngoor yu nekk ci ñoom bu ñu nekkee ci wetu borom xam yooyu nañ koy mën di di ko damm ak di ko dalal ndax man am na lu bëri lu ma dund xëy na bañ gënee nekk ndaw tuuti donte ay ndaw lañ ba léegi mais am na ay ay étape jaar yoo xam ne nit xëy na guddul ay man a bokk ay atam bariwul mais am na expérience yu bëri yu am ci loolu yaakaar naa am na mbokk yu teew fi ñoo xam ne xamoon xamante nañu ay jamono yoo xam ne am na fu ñu dëkkoon ci yenn quartier fii ci ci ci nekk fa di góorgóorlu ci sunna nekk ay jeunes nekk suñuy début am na tàngoor wu newoon ci ñun ak rëb rëb ju nekkoon ci ñun ak masaayil yi ni ñu ko doon déggee ni ñu ko doon interpréter noo xam ni jéggi woon na dayoo man sama jëm bopp tey su ma koy fàttaliku ay retaan daf may jàpp loolu bu fekkoon jamono yooyu nit ki nekkoon nag borom xam-xam bu bu teey borom xam-xam bu ragal yàlla bu xam diine am dégg-dégg bu sori nekk ci wetam muy dalal ndaw ñooñ di leen defal loolu ci gën a mucc ci la bokk way la ay ay ay ay rek ngay def ay dégâts rek waaw parce que loo gis rek da nga ciy bëgg a tukkal àdduna yaakaar ne leneen amul lu dul loolu tàngoor wu mel noonu moo tax euh, mu wax ne jege borom xam-xam yooyu nekk seen wet nit ki di tàggatu ci ñoom di yaru ci ñoom loolu am solo la ba ci ndaw ndawu saxaaba yi loolu dafa nekkoon ci ñoom daf leen daan delloo ñu ñëwoon xabtalu këram naan ki ne man dootuma sëyeteeg jigéen ki ne man damay woor rek ki ne man damay taxaw guddi ji rek mu delloo leen loolu bu fa newul woon loolu màgg mën na dem ba jur leen ëllëg Abdullah ibn Amr bi ko yonente bi alayhi salatu wasallam naan ko góorgóorlu weer wane nga woor ñetti fan mu ne ko mën naa lu ëpp loolu bàyyi ma rek ma woor dootuma dog mu ne ko waa kon boo demee ba mu mënatoo daal euh, bañ a def loolu del woor bis di dog bis waaye bul di woor di continuer mu ne xanaa loolu waaye day ñetti fan tuuti na loolu fekk boobu ndaw la Abdullah ibn Amr ibn al-As xale bu ndaw la ci xale saxaaba yi la bokkoon waaye bi mu ne ba màgget daf ne ak neexoon ma déggal yonente bi alayhi salatu wasalam ma waxoon ne ma wàññil waroon naa wàññi ndax li ma doon def mënatuma ci dara te mënatuma koo bàyyi mu bokkat ci yooyu ba léegi moytundiku yëkkatiku ci kaw borom xam-xam yi ñu moytundiku loolu nit ku nekk xam sa dayoo xam sa bopp tane tuuti ci ay masail sama classe yi nekk ci sa tàmbali di jàng gars yi laa jox ñaari loxo naan la cheikh diw comme li cheikh Mor Moussa def gars yi dañuy teel a waxaate ay cheikh ak ay oustaz nga commencé yëkkati ay mbagg yaakaar ni léegi xalaas di ut say xalaqaat fële di commencé di indi say wax di di xàppati di teg yooyu ci li gën a mën a indi tàqalikoo ci xeet yi la bokk nit da ngay xam sa bopp xam sa dayoo bañ di yëkkatiku di dellu ci borom xam-xam yi di jëlee ci ñoom wàcce sa bopp xam sa dayoo yëkkatiku ci kaw borom xam-xam bokk na ci li gën a mën a tàqalikoo buñ ko moytandikoo dina delloowaat mbiri ci yoon borom moom bu ko yàlla cëralee ci lislaam jox ko xam-xam ñu nangul ko ko bañ fee nekk di ko jéem a diir mbagg di ko jéem a suufeel di yëkkati suñu bopp yàq rek lay jur du yàq du changé ci situation bi dara ba pare dafa jur ay yàq li ci des yi nga xamante ne waxaat na ko ba léegi ci yoo xamante ne bi mën nañ ko jàppee ay euh, euh, saafara yoo xamante ne day saafara tàqalikoo jullit nii mooy bu ñu gisee loo xamante ne dafa jëm ci ak tàqalikoo ñu teel koo fay ay uute yuy am comme léeg-léeg mbokk yi léegi problème weer wi dem na ba ñii dañuy julli fële ñii duñ julli fële bu weer wi feeñee SMS yi di daw lu ñu dellu ci lenn loolu dañ ko war a jéem a fexe xeex ndax yu ndaw yooyu ñuy xeet dina dem ba jur ay tàqaliko ndax wute bu bëri baaxul di tàmm di wute ci ay masail donte ay masailu fiq la bu tàmmee bu wute bi di ko tàmm loo xam dañ ko waroon di defandoo di yëg ne ñoo nekk ñoo bokk lu ñu gëm ñoo bokk li ñuy defandoo ñu dem ba duñ ko defandoo léegi te ñàkk defandoo bi day dem ba dootul déranger kenn ndax day mel na lu normal loolu c'est très dangereux ay signe la yoo xam ne bu ñu ko bàyyee mu màgg dina dem ba di jur tàqali ko sans problème day jur tàqali kon yooyu delloowaat ko ci ay boroomi xam-xam ak ay ñoo xam ne yàlla may na leen taxawaay ci diine ji ñu delloowaat ci ñoom waxtaan ko ak ñoom xool ay solution ku ne def ay sacrifice ci sa bopp bu jaree sax say principe yoo amoon nga dellu ci ginnaaw ngir xool intérêt général bi ñu def ko mais bu ku ne campé ci say position di xool say problème say position personnelle na li convaincre ma te xooluloo intérêt général bi ay dafa doon julli ci ginnaaw Ousmane ibn Affan ci minan Ousmane di julli ñeenti rakkaa Ousmane Abdallah ibn Mas'ud ne ak a neexoon mu def ñaar te bàyyi bañ def ñeent nee nañu Ousmane li tax moo ko daan def ñeent dañu loolu moo doon ijtihaadam dafa jàppoon ne dafa waratu julli ñeent ñenn ñu ne déedéet dafa amoon soxna te nit bu amee fenn soxna dootu fa nekk musaafir moo tax mu daan julli ñeent waaye terewul Ibn Mas'ud dafa daan julli ci ginnaaw ñeenti rakka bu doon ñenn la ci ñun tey ak Ibn Mas'ud dayoo bi mu amoon ak xam-xam bi mu amoon dafay génn taxaw mbooloo mi topp ko mu naan ma ko def bu ko defee julli ñu tàqali ko mais daf daan julli ci ginnaawam ñu ne ko limaada tusalli xalfahu mu ne al ixtilaafu shar al loolu la wax mooy dafa xool intérêt général bi ak bu defoon lii ban yàqute lay jur mu wàcc ay principe am moom nangoo dem fekk ji bàyyi noonu xam ne yàlla dina ko ngàndal mais ñun léegi amatuñ fiq boobu da ngay taxaw fële rek affaire yi indi ay problème léegi loolu moo tax kon yi mel noonu ñu war ci góorgóorlu bu baax a baax beneen bi ci benn le am bëgg bi ak yëg-yëg bi xam ne yàlla ñu koo sant dañu war a góorgóorlu ci loolu loolu bu nekkee ci ñun nekk suñu souci dina tax ñuy moytandikoo tàqalikoo mais bu dee loolu léegi nekkul problème day dem ba sax léegi tàqalikoo bi dafa mel ne succès la ndax day wane ne yaa nekk ci dëgg loolu problème la bu ñëwee ba dégg-dégg boobu ñu am ko problème la mu waxat tamit ci euh, mbir yooyu ne koo xamante ni bi da nga bëgg a mooy ci alxuraan sunna alxuraan bu mucc mu delluwaat ci ne na góor góorgóorlu ci takkoo ak borom xam-xam yi ñi nga xam ne dañu ragal yàlla di def lu baax di tegu ci njub mu insisté waat ci loolu allah yaxfadu waxaat tamit Euh, xëccoo ak xiiroog ngaa yi nga xam day am ci biir jullit ñi ku ne di xëcc di jëmale ci sa boor di am ay kuréel ñu ci xëccoo yooyu tamit na ko jullit ñi moytandiku ak tamit di nasixante ci seen biir di def li yonente bi alayhi salatu waxoon ci addinu nasiha qaalu liman qaala lillahi wa li rasulihi wa li kitaabihi wa li aimati almuslimina wa ammatihim di def nasiha seen diggante bi laayante biir ci anam bi nga xam ne moom moo yàlla ci lislaam rawatina seen i njiit yi leen jiite ñu leen di nasiha ndax buñ dul nasiha seen i njiit ay problème lay jur seen biir bu ko defee ñu tàqalikoo ci loolu beneen bi ci des mu ne ñu taxawal al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar mooy di lu baax di tere lu bon yooyu ay solution la ay proposition la yu mu def pour jàpp ne bu ci nit ñi góorgóorloo yàlla mën na leen cee musal ñu moytundiku tàqalikoo yàlla nañu yàlla sàmm ba ñu tàqalikoo yàlla nañu yàlla bennale kàddu ñu fi wax yàlla ko yàlla barkeel te jariñ ñu ci wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain macha allah jazakallahu xayran yal na yàlla faylaw yiw te nangul la te nangul ñu dafa naan daal waxtaan wi tubaarkàlla eh, leer na leer goo xam ni eh, danañ ci mën a jariñoo incha allah di ñaan yàlla ñu mel ni yow yàlla baril seen kem te dolli leen ak leer te mooy leeru xam-xam te saxal leen ci diine eh, ni ma ko waxee woon rek problème bi yépp mooy ñàkk xam suñ diine kon nañ góor góorlu jéem a jàngi suñ diine xam-xam it doo xëy benn bis rek am ko dafa amul yoon escalier yi boo ci jaar doo tëb rek egg ca kaw da ngay commencé ci suuf kon loolu ñu xam ko lu mel ni cheikh na docteur Mouhamed Ahmad Lo li muy def seet téere bu am solo boo xam ne jullit ñi danañ ci mën a jariñoo mu ñëw wàcce ko ci niveau boo xam ne dana tollook seen dégg-dégg jàll nga leen ko njàngin mu leer loolu ñu jiite ay mboolo yépp di def lu bëree bari gën a saafaroo waaye bëri na mbooloo yoo xam ni eh, mbir yi ay formalité ki ay conférence rek loolu buñ baax na waaye buñ ci yemee suñ diine dana des kon diine daal fokk nga gàddu sa téere dem jàngi ko lu la lënt nga seet borom xam-xam ba nga xam ni am nañ ci moom yaakaar nga laaj ko mu leeralal la wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu kii nag ban la. ordinateur. ah pour ordinateur.